mbokk yi ba jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média ca suba ak léegi ñu ngi leen di gunge ak euh, programme yu am solo lépp rek ngir euh, jagleel leen ko yéen ñi ànd ak ñun ci weeru koor gile ñu ngi profito di gërëm ñëpp moo xam animateur religieux yi fi nekk moo xam rédaction bu télévision Futur Média gërëm itam partenaires yi maanaam sponsor yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy accompagner ci bépp programme boo xamante ni jagleel nañu leen ko ci weeru koor gi boobu nag ba tey yéen a ngi jàmbat ngir ñuy tàmbali teel quartier général bi ndax yenn saa yi day jafe euh, ci yéen euh, diggante euh, ndogu seetaan ba xëdd yenn saa yi mu guddee moo tax tey ou à partir de tey dinañu jéem tàmbali quartier général bi parce que ku ne xam ne ni quartier général mooy Sénégal loolu moo tax sénégalais yi képp koo xamee ni def nga réclamation par rapport ak programme bi ñun itam dañuy jéem a ajusté ngir jox leen li ngeen bëgg ndax nag suñu diggante ak yéen li koy dëggal mooy dañ leen di jox bis bu jot xoolee euh, tey ni démb ak bërki démb euh, daañu amati euh, guddi bu spécial dinañu recevoir ki nga xamante ni moo di maître Alioune Badara Cissé médiateur la borom xam-xam la mag la xale yi considéré ko comme seen way jur moo tax lu ñu dëgër bopp dëgër bopp saa yi waxee ñu déglu ko bërki démboo njaay rek bi coow li bëree bi mu génnee def discours am ba sénégalais yëpp dañu ko rafetlu moo tax ñu tànn bis bi tey ngir mu doon ganu quartier général ñu fas yéene waxtaan ak moom ci réew mi doxalinam ak it ay ponk yu am solo yoo xamante ni journaliste yi nga xamante ni ñoom laa ci nar a ànd al tey euh, dinañu ko ko laaj bu ko defee mu mën a jëriñ képp koo xamee ni euh, da ngay ànd ak ñun ci quartier général et je répète encore quartier général mooy Sénégal bu ngeen noppee noppi nañu mën nañoo tàmbali léegi euh, jotaay bu mag boobu la nga xamee ni moo leen di gunge guddi gu jot ci télévision Futur Média tout en vous rappelant que seeni sukkaru moom ala kulli al dañ leen koy baaxee donc dès à présent euh, numéro téléphone yi dañu koy ibbi euh, benn bu ci nekk bu ngeen ko composé di ngeen mën a euh, bokk ci ñi ñuy jox seen i sukkaru koor moo xam ay enveloppe yoo xamee ni yii def na deux cent mille am na yu ma tege nële am na ñu fi itam ay piis dañuy maye nag ba maye euh, billet euh, billet Fès yéen ñi bëgg a umra ji euh, nañ leen may billet yéen ñi bëgg a aj Makka dinañ leen may billet waaye ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem ziar Cheikh Ahmed Tidiane ci dëkk bu ñu naan Fès ñu ngi ànd ak conciergerie Maroc Sénégal conciergerie Maroc Sénégal nag ñoom at bu jot dañuy organiser ziara Fès bu mag ci boobu le euh, dañ ci bëgg yóbbaale ay téléspectateurs moo tax ñu teq benn ci seen ay billets ñoom euh, pour may leen ko yéen ñiy seetaan euh, ñoo leen di res billet d'avion aller-retour hébergement bus bi leen di yóbbu ngeen def seen ziyaar ak lekk bi ngeen di lekk foofee ca Maroc loolu bokk na ci suukaru koor yi bu ngeen wootee léegi nii ñu jox leen ci loolee nga xamante ni moom la tuddee suukaru koor ci quartier général bi dinañ ci teg itam yeneen yi xéewal yoo xamante ni moo ngi toggee xam nga sobowa nag dafa bëri euh, produit dafa bëri boisson yoo xamante ni ñun moom la ñu tàmm di ko jëfandikoo euh, boisson bi nag moom laa jëlanteel ren mu ngi tudd top Euh, sakkan na ba noppi itam téeméer kese la nu koy jaayee gis ngeen butéel bu mag bi boutique bu ngeen dem euh, di ngeen fa fekk top euh, top orange bi itam bëri na vitamine bu ngeen bañee loof parce que yenn saa yi seetaan quartier général dafay xaw a métti mën ngeen teg seen benn butéelu top seen wet rek di ko naan par ndànk di ko sureté li xale yi naan kurumtu ba daanaka fajar donc lii mën na leen a accompagner ci seen i ndogu accompagner leen ci seen i xëdd donc am na ay teraanga yoo xamante ni Sobowa moo leen ko nar a jagleel ci suukaru koor yi ñu fas yéene séddale dans quelques minutes en direct ci télévision Futur Média donc butéelu boisson baa ngi 500 la ñu koy jaayee top la tudd am na top ananas am na top orange et y a beaucoup de vitamines par contre euh, bu dee da ngeen mel ni Sophie lekk ba seeni biir fees ngeen am problème mu digestion je vous conseille cette bouteille d'eau c'est une eau gazeuse maanaam da koy naan ba noppi ngeen baal ma ci kàddu yi air bi nekk sa biir mën naa génn parce que souvent euh, dañuy jàmbat ballonnement euh, yenn saa yi nga ndogu euh, ndogu bi fees del ci sa biir ba doo ko mën a digérer ki ren nag daf ñoo jagleel non seulement ay eau plate comme par exemple bi nga xam ni ndox kese la Euh, xam ngeen ni Kirène mooy première eau minérale euh, fii ci Sénégal eau minérale yu bëri nañu te uute bii moo gën ndax siluissé na ba noppi itam euh, am na qualité donc Kirène eau plate maanaam ndox kese bii nag mooy eau gazeuse bi elle est pétillante boo ko naanee da ngay mën a digérer donc je vous le bu dee da ngeen ndogu euh, ba seeni biir fees ngeen am problème mu digestion mën ngeen jënd bii nga xamante ni euh, Mont Bleu bouteille bi ni mu mel bokkul ak beneen bouteille bi boutique bu ngeen dem wala grande surface mën ngeen fa fekk Kirène eau gazifiée bi euh, muy ndox moo xamante ni boo ko naanee di nga mën a digérer. du ay waxu possibilité nag euh, du ay waxu publicité nag ay waxu euh, euh, dama ko testé ba pare gis ni baax na moo tax ma leen di jox conseil quand ngeen dem jëndi ko muy eau plate bi ak eau gazeuse bi yéen ñi bëgg di grignoter comme Awa mbay de temps en temps ci guddi weeru koor bu ngeen dogoo ba pare entre temps yi xam nga entre temps mooy li nga mën a nekk lekk lu bokkul ak plat de résistance parce que da ngay ndogu reer pare xëdd entre temps yi nag am na ñoo xamante ni euh, ñoom ñoo ñu ko jagleel muy Xelkom Pizza Xelkom euh, Pizza nag ñoom dañuy defar ba defar ay beignet Nutella beignet yi dama koo mos sànq moo tax je me suis dit je vous propose ça euh, naa leen ci xelal comme ça ngeen wuti ko gis ngeen beignet yi ci biir <laughs> dañ koo def Nutella bon xel baaxul. mais mais dama leen koy présenter rek pour au cas où ngeen bëgg pizza wala ngeen bëgg par exemple beignet Nutella n'hésitez surtout pas waa Xelcom Pizza ñoo ma koy yónnee bis bu jot ma ndogu ci donc du coup je vous le conseille je vous donne le numéro de téléphone de Xelcom Pizza mën ngeen leen woo ci 77 545 54 97 77 545 54 97 du ay waxu publicité de man maa ko mos mu neex ma moo tax ma leen koy conseiller xam naa loolu mooy sama rubrique ci quartier général voilà donc euh, c'est des c'est des bons plans que je vous propose en attendant quartier général tey dañuy teel a tàmbali dans quelques secondes rek euh, ñu tàmbali jotaay bi ak gan gi maître Alioune Badara Cissé moo na a nekk ganuk quartier général ñu ngi gërëm itam waa euh, Katia Katia fi mu tollu tembe euh, dañuy proposer service traiteur bu mucc ayib xam nga fii Sénégal léegi ku ci ñàkk jot mën ngaa woote chez Katia ak loo foo bëgg ñu livrer le ko ils font des plateaux salés ils font des plateaux sucrés ils nous offrent même un buffet euh, pour équipe bi saa yu ñu jëlee pause ñun itam dañuy dem xëdd xëdd bi nag ñu ngi ci ànd ak euh, euh, che Kacha Kacha ngi nekk fii ci almadi bi sénégalais yëpp miin nañu ko bu la neexee nga déplacé wu dem fa en famille ndogoo foofu bu la neexee itam ndogu Kacha nga commandé ko ñu livré lu ko à domicile donc ñu ngi gërëm tamit Kacha ci àndam ak euh, télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal on se retrouve dans quelques instants pour Quartier Général en direct ci télévision Futur Média xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg a namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg a waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg suukaral sa koor ubbil sa kalpe Free Money ngir mën a bokk ci ñi ñuy séddale un million bés bu ne ci weeru koor gi rawatina ci seen émission quartier général teral ak Sedima ñoo leen di may seen émission quartier général Sendwave seen application yónnee ak jot xaalis buy jóge bitim réew ñëw fii ci Sénégal te doo fay dara moo leen di may seen quartier général. bëggul dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë def seetu Sénégal yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëggul dara. seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu TFM bagun dara seetu Sénégal un ramadan en famille, c'est toujours mieux avec l'eau minérale naturelle Kirène et la pétillante de Kirène. Profitez des minéraux nécessaires pour rester hydraté et en forme. L'eau minérale Kirène vous souhaite un excellent mois de ramadan. Kirène, soif de vivre mieux. Un goût comme à la maison avec Presea Bissap ak Presea ananas gingembre pour faire le plein de vitamines et d'énergie à chaque ndogu. Prenez soin de vous. Ramadan Moubarak. Presea, vive et fruitée. Pureté, générosité, partage. ngëneelu weeru koor yaa ngi ci meew Kandia. taamu leen cafkaam bu sell bi si entier wala demi écrémé ak la saveur gourmande de ses laits aromatisés vanille et fraise si brico 500 ml yi gën a yomb jëfandikoo Kandia le bon goût du lait avec vous pour un bon ramadan yónnee xaalis warula jafe ñun waa Senwave neneen lañ koy defee bu gën mën nga yónnee xaalis say soppi si lu gaaw foo munti nekk te doo fay dara waaw waaw dégg nga bu baax doo fay dara noonu la yombee mën nga doxi sa soxla si taw féex tànnal liy gën a yombal sa àddina si lu amul benn sikki saka wala xel ñaar yónneel xaalis si lu gaaw wóor te doo si fay dara télécharge seen application Senwave ngir yónnee xaalis bu jóge bitim réew diñu la may juróomi euro ci sa transfert bu njëkk ak code bi di diaspora ànd si ak suñu partenaire bi di UBA. mer topp nga laal de. waaw waaw topp bu mag kese. kese. nag waaw. waaw lii ba jàmm la. nga yor de. bu mag 500 francs nga ni. li la laal de. saa ki topp bu mag bi la 500 francs kese. nga ni. ay baax na yomb na de. neen de. andi naa leen ba xuus. waa kay xool day gisee. day mooy yàlla mi nu sàkk yaa naka te ñëpp ko bëgg tegal butéel bi topp mag 500 francs kese te am na orange wala ananas ramadan mubarak si weeru koor bu sell bii poulet teral ñëwati na ak ginaar gi ñëpp taamu waaye itam ak lu bees tàkk ay pak ramadan yu yomb te riche taamu leen seen poulet teral ngir bëggal seeni njaboot ak ay togg yu neex te barkeel lii si blanc de poulet ak brochette bu si nekk ak façon boo ko mën a toggee teral daal moo yombal liggéeyu jeeg si biir waañ ndogu li du neex te teral teewul ak teral da ngay togg si bànneex yekk si bànneex teral moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm teral ñoo ko bokk bi ngay soog a ñëw. yow daal dañ la fi bàyyi lu la neex nga def mel ni ku yor ay bàyyi ma ci eh, radowee yow may ma jàmm heure bu la neexee nga ñu taaja reer takkal ñaareel moo gën maman baal leen ma de xam naa ni guddi na trop mais chéri reer bi léegi mu pare maa ngi koy ñëw defar yaa xam pare nga jox ko sa kii ak na fayda trop ay maam eh xam nee na yaayam sama sët bi billaay dama lay ñaan nga nga nga gudd fan lool ma xool li nga yore ni lekk lekk lekk lekk may ma maam may ma bisimilaay yow lii daanee fan ngeen jëm fan ngeen reer bi pareel. moom bébé s'il te plaît yóbbu reer bi nga indi yeneen poche wel si. vous parler de ces produits de la gamme Sotrapal que j'affectionne tant. La gamme Ardo, ces merveilleux produits laitiers d'une fraîcheur inégalée, fabriqués avec tact et expertise, laissant paraître pour chaque produit un emballage sécurisé, soigné et à l'intérieur duquel on retrouve enfin cette blancheur éblouissante du pur lait au goût unique, sain et riche en vitamines pour notre organisme. Ardo vanille, le pot Ardo Chakri, Ardo Réolé, le sachet Ardo Taftaf, le pot Labneh fromage blanc, le nouveau Ardo nature sucrée et les seaux Ardo et 17 Passez un excellent mois de Ramadan en compagnie de notre gamme Ardo. jàmm la waa Sénégal ñii naan laa leen indil tey diw bi gën ci diw yi diw bu baax te neex te sell fii lañ ko nalee kii bokkut ak diw yi lay jox kuré bët jàngoroy kajoor biir buy mett nii nal na i nii waa soxna si na ngeen def <laughs> waa lii lan la nii yow lii li ma ko wër mi ngi li ma ko nammee li mu ma jaral eh, soxna si dooma dal ak a noppale sell te sa kanam la ñëwaat di leen bégal du fuur du laq te du way ah. nii nal la tée leen ko nii nal e ku baax li nga wax yëpp moom ci biir mi ngi ci du ma ci sax boole wax jox ma camion bi yëpp te loo ci xamul amul cholestérol yow xam nga ne jaaykat bu nekk bénéfice ma koy arrangé ak wér-gënu askan xaar ma indi la ci EDK Oil ku ko xam-xam ni dafay relever ay défis ci défi yi muy relevé fii ci réew mi fan yi ñu génn dañu doon inauguré station service EDK Oil bi nekk ci autoroute de l'avenir ñu koy wax EDK Oil Yeba ubbite EDK Oil Yeba nag dafa yemboog ay borom daraj yu mag ñu koy wax sëriñ Thierno Samassa sëriñ Habib Sy ibn sëriñ Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidjanes sëriñ Abo ibn sëriñ Muntaxa xalif général des Mourides et de sëriñ Baralat Mbacké daal di ñëw fesal seen mbégte ci liggéey bi doomu Sénégal def aire de service bu rafet bi mi ngi nekk ci autoroute à péage bi waaye jàppal am na supermarché bu mag supermarché low price maanaam njëg yu baax amit restaurant fast food ci Chicken mi xew lool ci Sénégal amit cafétéria amit jàkka joo xam ne mën ngeen ca julli ndax ku dawal oto ba dugg ndakaaru mën a taxaw fii nga xam ne moom moo di ci EDK Yeba julli fa ñaan fa amit li nga xam ni moom moo di jardin boo xam ni mën ngeen faa toog féexlu noppalu tuuti balaa ngeen di jëlaat péage bi amit ay toilettes yu moderne am aire de jeu be de lavage ak d'entretien point d'assurance foo xam ne mën nga fa renouveler sa assurance am bâtiment administratif bu yanj guichet automatique ñu ko naan gàpp nga xam ne da ngay ñëw dugal sa carte xaalis bi daal di génn ba noppi nag lépp ñu daal di koy amal ci sécurité bu doy e mi ngi nekk après poste péage bu Toglu boo génnee aéroport international Blaise Diagne. la ca maam Seydou Hadji Malick xam. yàlla xamal ko ko ci cërale ci. Ah. loolee ci jataay bi ko yàlla bokk. amiin amiin jaahi rasulullah si amiin. waaye moom la mu ca doon sàkku ci yàlla. wallaahi yal nañ ko yàlla bokk. amiin amiin amiin ko defalee. amiin bëgg lépp di wax kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci senegal ñu xool doomu Sénégal bu mel nii nga xam ne ñoom ñi sonn pour am ay emploi moom muy créer at mu jot nangami centaine de emploi teg ko ci seen loxo nga xam ne amaana jafe-jafe bu jëm si woon ci yéen téyel na leen ko kon nag ñu bàyyi xel doomi réew mi ñi nga xam ne ñëw nañu pour liggéey réew mi ndax am nañu am waaye feneen la jëm dañ koy ñaanal tamit moom mi jëm boppam yéene ji mu am ci réew mi suñ borom kàttanal ko ba mu mën caa àggale lu kawe njortam nee na kon mi ngi sant bu baax nee di ko ñaanal yokkute gu sax ak barkeelu liggéey bi. EDK Yeba mën nga faa taxaw reprendre sa souffle la daal di jëlaat péage bi. EDK Oil doomu Sénégal moo ko fi def EDK Oil ñun Sénégal dañ koy ndamoo bu baax. ndax man jaaxle naa de gën ñëw nañu de préparé wu ma dara daxa dara dara dara waa léegi nu may def ndax xaw ma sa door mi ngi ñëw sa door a ngi ñëw moom mi ngi ñëw indaale vermicelle sa door mi ngi macaroni j'adore ku bugg lu baax lekk j'adore a ngi vermicelle j'adore a ngi dama ci doyal doo ci doyal jëlal ku bugg lu neex lekk j'adore a ngi vermicelle j'adore a ngi macaroni moo j'adore lëmbe na dëkk bi yow xooloo neex j'adore moo lëmbe suñu réew j'adore j'adore indeeti na vermicelle ak macaroni ah jëm certains, c'est le fond qui compte. Pour d'autres, c'est la forme. Mais pour moi, c'est un tout. Une cuillerée de luxe, une coupe de design, sa tranche avec le décor. Le tout soigneusement décoré bien sûr, pour en mettre plein la vue et surtout plein la bouche. Un luxe éclatant qui se reflète sur votre sourire, sur le sourire de ceux que vous aimez. C'est tout cela la vaisselle chez Prestige Déco. Du luxe pour le goût, au goût du luxe. À vous de choisir. Prestige Déco vous souhaite un bon ramadan. weeru kooru ren jii lu bees tàq moo ci xew ak Kabirex da ngeen di ndogu naafi la doxantu ndànk ñëw ci suñu showroom ànd ak sax njaboot gi bu leen neexee ñëw xool li nga xam ni kat moom mooy bégal seen xool ci showroom bi gën a mag fii ci Sénégal waaw waaw Kabirex dafa fas yéene leen dalal ba minuit dañuy ubbi maanaam ba minuit Samsung S21 baa ngi fii di leen xaar frigo ak réfrigérateur yu garanti te yomb micro-ondes ak mixeur yi nag bu leen fàtte PlayStation 5 yi xale yi gën a bëgg su leen neexee sax ci biir Kabirex ngeen jouer tuuti ngeen di soog a jënd kon nag ci biir weeru koor gi ci guddi gi Kabirex dafay ubbi Kabirex nekk rond-point Sacré-Cœur boulangerie jaune taqaloo ak magasin Auchan bi ñëw leen ci koor gi ak Kabirex fii ba le 5 mai dinañu am réfrigérateur combiné 210 litres ci 189 000 francs Samsung Smart TV 43 pouces ci 219 000 francs micro-ondes Haier 20 litres ci 42 900 Samsung Galaxy A32 ci 139 900 francs kooru jàmm ak Kabirex Kabirex your electronic destination TQG Touba quincaillerie général te Sénégal yëpp xam ko ci njaayu matériel quincaillerie yu baax te mucc ci ayib indil na leen ay poignées pour bunt yu dëgër yu wër yu ànd ak design yu rafet ànd ak qualité am na yu laiton yu inox ak yeneen am na itam ay canaux ak i serrure de sécurité ci marque TQG ay vachette ay bricard ci qualité yu mucc ayib yu nangoo yàgg te seeni caabi du mos a càng ci biir mukk am na ay bunt ay charnière ay poignée armoire ak yu meuble de rangement soo di entrepreneur mbaa ngay ouvrier mbaa nga tabax ba toll ci finition demal TQG loo soxla ci qualité ma nga fa ci njëg yu xéewale Touba Quincaillerie Générale TQG mi ngi 65 rue du Diouf à Dakar mi ngi itam extension Kër Damel lot numéro 3 derrière stade Léopold Sédar Senghor téléphone 33 879 28 28 TQG notre force la qualité n'est pas un slogan, naka nga mën a defee ziyaara bu am baraka àndandoog agence bii di conciergerie Maroc Sénégal di leen defal ay package yu yiw yu baax yoo xam ne da ko àttan ziyaaru Fès bi mu ngi tàmbalee fii ci ndakaaru ci teewaayu Chérif Hamza Atijani ak officiel yi nga xam ne yépp ña nga bàyyeekoo Maroc. Et cette relation exceptionnelle qui unit le Maroc et le Sénégal. c'est quelque chose de spirituel, c'est une fraternité. Le Maroc, le Sénégal, c'est le premier partenaire, à tous les niveaux. Le Maroc vous accueille à bras ouverts. ñu daal di jóg daal di àndandook Royal Air Maroc seen billet aller retour ci la bokk ñu daal di dem Casablanca équipe dalal ñu dugal ñu ci ay bus climatisé yóbbu ñu ci hôtel 4 étoiles hébergement bu dal bu exceptionnel restauration bu mucc ayib sous forme de buffet jóge Casablanca daal di dem Rabat daal di dem Fès capitale Tijania la ville impériale daal di fay jóge dem ci mausolée tarixa Tijane dem ziyaare ji Cheikh Ahmed Tijane Chérif Rabi dem def waxtaan ak oustaz Ahmed ci dundu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu da ngay connecté wu ak sa borom suñu client dañu am satisfaction ci 100 pour ngir bokk ci loolu yëpp mën nga ñëw woo ci 78 604 66 66 78 604 66 66 wala ngeen ñëw ci suñu place avenue Bourguiba ci manège bu mag bii nga xam ne mooy Africa Park. ci réew mi gox yi ak gox-goxaat yépp ñi ngi jëfandikoo doolay ndox mi ak ngelaw li leeraayu jant bi. xarañteefu jumtukaayu xarale yi ak liggéeyu ndawu Senelec yi ngir jox askan wi courant bii tax ñuy mën a sanc ay bërëbu liggéeyukaay courant biy tax ñuy mën a fent ay mbir yu bees di yombal paj mi ci bërëbu fajukaay yi te di leen mën a dalal ci ay anam yu mucc ayib ci seen kër gii di Senelec courant biy tax ñuy mën a jog ko ci xarale yu yees yii ak di mën a gisante saa sune courant bi yombal daje yi ak gise yi ci jàmm ba ñuy mën di bégee courant bi yombal njàngum xale yi bi tax soxla yi di lijjantiku saa ne courant bi jëmale réew mi kanam ak di leen jox yokkute ak koom-koom Senelec courant bi tax lépp jàppandi Tous les jours, le bonheur frappe à votre fenêtre dès le matin. La Villa Natangué, c'est un maximum de confort avec un grand salon bien éclairé, une grande cuisine fonctionnelle, une cour arrière carrelée. Située seulement à minutes de Dakar, la Villa Natangué f c'est aussi un jardin ensoleillé. Une façade magnifique en fer forgé. Les villas Natangué à Diamniadio offrent le cadre parfait à votre famille. Ces cinq chambres spacieuses et ces cinq salles d'eau vous procurent une grande mobilité à chaque instant tout au long de la journée.

buñ lay teeroo ni buur boutique lay dalee ne ni chef sant yàlla boutique may say frère xeetu boo bëgg am na fa lépp loo bëgg ci tissu góor lépp loo bëgg ci tissu jigéen fii la glace fil à fil ya bàyyi ko Angleterre coton suisse brocart ya ma ne prince de Galles nag ah waay Samba Jesner ya loo namm ci bazin riche ma ne soit ya nga xam ni ma nga bàyyee ko Paris soit Christian Dior nag lépp loo namm ci crêpe ana lu Chanel defar ana lu Givenchy defar dama ni lép luy paillette ak brocart waaye yamuñu foofu de ñu ne alan ngeen bëggati ñu ne brodé Autriche loo bëgg ñu ne voile brodé loo bëgg ñu ne chantôme loo bëgg ñu ne teal design ah cëm wala teal arc style grande dame lépp nga fa dama ni sant yàlla boutique may sa frère ne lépp luy qualité da nga koy fekk fii lépp luy toppatoo sa client da koy fekk fii woo ñu ci 77 906 28 95 wala 77 935 73 47 wala 77 503 45 99 yegg si leen Colobane marché Gambie Janoa caserne Samba Diéry Diallo wala Touba marché Ocass pack food Sénégal yëpp ñoo àndandoo ni pack food dara fayu ko weeru koor gi moutarde ak vinaigre pack food dañu taxaw ci seen wet suñu équipe yëpp noppi nañu loo jënd ci moutarde ak vinaigre pack food ak suñuy pat ñu daal di la koy livrer fa nga ne xoolal suñu arsenal suñu équipe yëpp pare nañu lépp noppi nañu fu ay mën a ne ñu livrer la li nga xam ne moom nga jënd ci waa pack food pack food nag ah dañoo mënee suñu boor dañu lay liggéeyal lii dara fayu ko pack food am nañu nag li nga xam ni moom moo di maanaam vinaigre de qualité supérieure am moutarde de qualité supérieure loo taamu vinaigre loo taamu moutarde pack food laajal lalla lu mu togg mu neex lu mu togg ci jën mu dem ci yàpp mu dem ci ginaar mu dem ah pack food dëgg-dëgg dara fayu ko vinaigre moutarde macaroni ak produit pak food yi qualité supérieure la lii dara fayu ko weeru kooru jàmm ak moutarde ak vinaigre ak équipe bu pak food yëpp juróomi xale yow jël ñett yi dañu manqué fer manqué deret moo tax ngeen war di jox seen njaboot ñam bu ñu dooleel ak fer bés bu nekk. Nestlé Gloria bi ànd ak Nutriforce dañ ko dooleel ak fer ak vitamine C loolu mooy dimbali seen njaboot ñu am fer bi seen yaram yi teew ak kattan bi tax ñuy teewlu taamu leen wérgu yaram gu ne keng ni fer. sukkaral sa koor bés bu ne ak Free Money Free Money dafay séddale un million de francs bés bu nekk ci weeru koor gi ci seen émission rajo ak télé yi ngeen gën a sopp ngir bokk ci ñuy gane danga nga war a am carte Free Money ba pare soog a woote ci seeni émission quartier général wareefu Ramadan et dëggantaan. Free Money kalpe buy suukar sa koor. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen def seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média euh, bég lool dellu si ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot euh, ci quartier général bi télé tàmbali gi mënul ñàkk réclamation bu ngeen def la ñu dégg ko ba tax rek ñu ngi jéem rek di ajuster daanaka guddi gu jot ndax ku ne xam ne ni quartier général mooy Sénégal li ñuy def rek mooy tàmbali première partie bi ak service bi bokk na ci xibaaru jaww ji ak li nga xam ne ni moo jëm ci taux de change yeeg waxtu loolu ay njëriñ la yu ñu leen di jagleel bis bu jot eh, ci première partie bi ci quartier général bi li ñuy def mooy xool tableau bi nga xam ne ci lañuy sukkandiku eh, pour eh, gëstu ci température yi dëkk yëpp fii ci Sénégal ak li ñuy yeewoo minimum yi d'abord Dakar ji na ak température yu toll ci 19 degré Saint-Louis 17 degré Podor 20 degré Matam 28 degré Linguère 20 degré Diourbel 21 degré Kaolack 22 degré lay yeewoo suba Kolda 24 degré Ziguinchor 21 degré Tambacounda 28 Euh, Kédougou euh, suba ci samedi bi euh, minimum dina toll ci vingt 28 degré bu ñu demee nag ba naaj bi gën jóg daañu am ay pic yu nar a yéeg ba 41 jàpp 42 ba presque 43 degré boori fi nga xamante ni moo di Matam Tambacounda dina yendu suba ak température yu toll ci 41 degré Kolda 41 degré Kédougou 42 degré Ziguinchor 36 Kaolack 40 degré Diourbel 39 degré Linguère ak daanaka biir Sénégal 40 degré. Saint-Louis 26 degré Saint-Louis dëkku euh, maître Alioune Badara Cissé mi nga xamante ni tey mooy nekk ganu quartier général euh, dëkkam di Ndar parce que c'est un très grand Saint-Louisien donte euh, Ndakaaru dañ ko miin lool ak la mu daan def ca lycée Blaise Diagne Euh, on a bien enquêté sur lui je vous raconterai beaucoup d'histoires yoo xamante ni euh, dañu ko nettali ci suñu euh, baay bi nga xamante ni moom la ñu nar dalal bu ca kanamee di maître Alioune Badara Cissé ñu koy woowee ABC voilà donc dëkkam Saint-Louis suba dina ñu yendu ak température yu toll ci vingt 26 degrés fi nga xamante ni moo di Dakar capitale u Sénégal maximum am ëllëg dina toll ci vingt cinq degrés bu weesoo température yi mën nañu dem ci géej gi xool yëngu mag tekk tekkaaralam muy marée haute ak marée basse alors marée haute yi Euh, bu njëkk bi météo nga ko prévoir euh, fajar gi bu 6 heures 9 du matin jotee marée haute bi ci topp daañu ko am ngoon gi euh, laataa ndogu boor yi 18 benn marée basse rek le météo prévoir suba dinañu ko am exactement bu midi pile jotee bu ñu desandee ci géej gi itam mën nañu leen baaxee waxtu yi nga xamante ni moo nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi ñu tuddee ko meilleur moment pour la pêche waxtu yu njëkk yi ci suba si lay doon jëm diggu bëccëg entre 10 heures 6 du matin ak midi pile ci mi journée bi ci diggu bëccëg bi et puis guddi gi mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi diggante 10h28 ci guddi jàpp minuit 28 donc entre 22h28 ak minuit 28 mën naa baax pour suñu mbokk yi nga xamante ni ñooy faral euh, di dem géej bu weesoo géej gi ñu baaxee leen euh, jant bi xëyam ak tëreem maanaam lever ak coucher de soleil jant bi dina xëy suba euh, bu ñu salaatoo ba noppi 6h50 du matin nara tëddi ngoon gi boori ndogu bu 19h25 jotee donc loolu mooy lever ak petit soleil ñuy gërëm bu baax Bamar Diagne ci jàppandalam puisque guddi gu jot moom moo ñuy baaxee euh, xibaaru jaww ji ñu koy def nu mu gënee simple euh, ci première partie bi ci quartier général liñ ciy toftal mooy taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak euh, yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique ñoo ngi koy weccee ak CFA lu toll ci 547 virgule 307 360 Euh, francs CFA en euro euh, ñoo ngi koy weccee 655 virgule 957 francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 754 virgule 590 francs CFA un yuan Chine ñoo ngi koy weccee 83 virgule 940 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 61 virgule 288 francs CFA one dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 10 virgule 733 francs CFA xam naa ni euh, sàq mi ngeen sama lanc ndax saa yu may waxtaanee xaalis euh, surtout devise bi euh, dama leen di fàttali yéen sénégalais yi nekk ci diaspora bi que désormais am ngeen possibilité yónnee xaalis fii ci Sénégal te du ngeen fay dara grâce ak Sendwave on vous montre l'application Euh, ci suufu écran bi dans quelques secondes euh, mën ngeen ko télécharger ci bépp plateforme boo xam ni euh, dañu fay télécharger application moo xam Play Store Google Store App Store donc mu ngi noonu dafa jaune. bu ngeen ko téléchargé wee du jarati bu ngeen dee yónnee xaalis ngeen di déplacé wu di dem di rang ci ay agence il vous suffit juste de faire seen transaction en quelques secondes ki ngeen koy yónnee jot ko fii ci Sénégal moom it euh, bu télécharger application bi dafay gën a yomb ci moom et période bi Sandwave euh, dafa am euh, ay teranga yoo xamante ni ci transaction bu njëkk bi dina la ko defal donc mën ngeen ko télécharger et puis ci bépp réseau Wave képp ku nekk fii Sénégal dina mën a recevoir xari xaalis bi yow mi yónnee doo fay kii jot xaalis bi itam du fay dara voilà donc c'est pratique pour tous les Sénégalais yu nekk ci diaspora bi États-Unis euh, France euh, Italie euh, Belgique Euh, dëkk bu ngeen mënti nekk rek en tout cas ku lim juum euh, mën ngeen euh, yónnee xaalis jaarale ko ci fi nga xamante ni moo di Sendwave alors Sendwave nag mu ngi ndokkeel tey njukkal clients yi nga xamante ni déjà présent commencé nañu ko jëfandikoo ndax moo gën a pratique et doo fay dara te Sendwave la tudd c'est en jaune pouvez télécharger ça ngeen am application bi ci seen ay téléphone portable liñ ci toftal nag mooy waxtu julli yi baaxee leen euh, horaire de base bi ndax dëkk bu ne euh, daanaka waxtu julleem souvent dafay faral di uute waaye mën nañu sukkandiku ci tableau bi euh, fajar geeg suba teel seeni julli mu ngi toll ci diggante 5h39 du matin ak 5h54 du matin. lu ko jiitu daañu salaatu ëllëg ci samedi bi exactement bu 5h34 du matin jotee Tisbar ñoo ngi koy julli 14 h takkusaan 17h pile la ñu koy julli euh, timis euh, bu ñu dogoo ba noppi 19h32 la ñu koy julli euh, gée daañ ko julli 20h32 ndogu bi waxtoom mu ngi toll ci 19 vingt cinq ëllëg. Euh, ci euh, samedi bi liñ ciy toftal mooy naafila yi bu dee defagu leen ko ñu baaxee leen ko ak oustaz Papa Anne yaa oustaz ñu ngi lay nuyu euh, di la ziar ndokkeel la ginnaaw les cinq minutes de Papa Anne <coughs> on te ci les heures de oustaz de oustaz Papa Anne dans quartier général mi ngi noonu alaaj Pape am nañu mbégte di la nuyu di la ziara di la ndokkeel bu baax a baax ñaanal xalif généro yi na ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu yàgg fi lool te wér ñaanal jiitu réew mi ñaanal kilifa yi réew mi ñaanal kilifa kër gi président Youssou Ndour nuyu ko ndokkeel sunu kilifa yi alaaj Pape nuyu la ndokkeel la bu baax a baax ndokkeel sama xarit sama soppe euh, Seyd Alhaaji Pape Djibril Fall di ko nuyu di ko ndokkeel bu baax a baax euh, di nuyu Yaawa Mbay di ko ndokkeel bu baax a baax soxna Awa Euh, Adja Kebs Thiam. nu seet euh, doguma la seetlu woon ni Pape Djibril tey maam ji lay toppandoo maître Abdoulaye Wade. mais benn lañ. tey maître Abdoulaye Wade la indi dafa dem ci coiffeur ba ne ko daggal karaw gi yëpp dafa xuufu comme maamam maître Abdoulaye Wade. pourtant loo ci xamul kaala gi jël naa ko ba ci yàgg ma tegaat ko. toppandoo bu ëpp baaxul yow yemal ci bopp bi rek. <laughs> tey maam ji lay toppandoo tey maamam lay indi maître Abdoulaye Wade mais nii la gën a yàjji waaw yàjji na yàjji na ah ñu <laughs> ngi koy ndokkeel <laughs> euh, di nuyu soxna Sophie di ko ziyaar bu baax di eh. nuyu euh, sunu soppe sunu xarit Mouhamed Ndiaye mm. euh, nga xam ne moom sama xarit spécial la ah, ah. <laughs> yaa Mouhamed su may wax sa tur damay kontaan maa ngi lay nuyu di la ndokkeel alaaj Pape uh-huh. maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax Diallo di la ziyaar bu baax kontaan nañu mi ngi noonu xam nga tey ñi nga xam ne naafilaaguñu mm-hmm. alaaj Pape ñeenti rakkaa alay doona ah. waaw ñeenti rakkaa dafay nekk ñaari sëlmal uh-huh. rakkaa bu njëkk bi fatiha la nga jàng euh, ayatul kursi yi uh-huh. ayatul kursi yi yaakaar naa jullit bu ne uh-huh. war na koo jéem a jàng Euh, jafewul mhm. moom ayatal kursi yu mais dafa diis mhm. moom ayatal kursi yu li ci nekk ci léem mhm. li ci nekk ci muslaay li ci nekk ci ñaan borom bi subhanahu wa taala kenn kenn xamul nu mu toll alaaj pap euh, nga jàng ko benn yoon bi nga rukoa taaye daal di euh, sujoo nga ko sujoot daal di jugaat nga jàng ina anzalnaahu waaw mooy ñaari rakkaa bi nga def ko douze fois fukki yoon ak ñaar nga jàng ina anzalnaahu fii laylatil xadri alaaj pap moom itam li ci nekk kenn xamul lu mu toll mhm. euh, alaaj pap ngay dugg ci oto sax jàng euh, ina anzalnaahu yàlla mën na laa musal mhm. benn mag ma ko waxoon ne ma doom saa yoo duggatee oto mhm. jàngal ina anzalnaahu juróom-ñeent juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon ina anzalnaahu da lay muccal alaaj paap mm-hmm. ni dafay ñaan yàlla mm-hmm. waaw ngay dugg oto daal di léemu mm-hmm. waaw booy dugg sa biir néeg daal di daal di daal di ne bismillahi rahmaani rahim booy génn sa kër daal di muslu sooy dugg oto daal di muslu waaw loolu alaaj paap euh, nit dafay muslu di ñaan yàlla di ndax yàlla nee na ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen comme que yàlla seetaanoon sayyidina Muhammad ñu liggéey ko mu jàpp alaaj paap yàlla seetaanoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu liggéey ko mu jàpp kon yàlla euh, ba yonent bi Euh, saa yu xëy di muslu di ñaan moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lu yàlla bind mooma mhm. kon ñun nit simple yi euh, war nañuy muslu di ñaan yàlla fu nu tool alaj Pape macha allah bu ca kanamee daañu euh, recevoir maître Alioune Badara Cissé Pape Djibril Fall ñu ngi lay nuyu ganu tay gi bokk na ci mag ñi ñuy jox tiir lool fii ci réew mi moom nag Euh, dañuy xaar toujours xalaatam mhm. euh, ci doxalinu réew mi mu nar ñu defal honneur euh, fas yéene passé ak sénégalais yi guddi gi tey mhm. maître Alioune Badara Cissé référence la maître Alioune si Cissé borom xam-xam la ca kanam ñu fas yéene tàmbali waxtaan ak moom Pape Djibril jërëjëf El Hadji Pape Cheikh di la ndokkeel ni ko oustaz Pape Anne waxee di la gërëm bu baax di la féliciter waat encore une fois ci tawféex bi nga am ba am koo xamante ku mag la ndax xam naa ne plateau yi ko bëgg bëri na mu nangul ñu ko ndax au vu de sa trajectoire déjà mhm. jaar-jaaram aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan politique mhm. les combats démocratiques yi nga xamante ni mëne na ko mhm. ak fii nga xamante ni fa la nekk tey muy euh, médiature de la République mu nekk loo xamante ni lu am solo la ndax euh, on parle beaucoup d'apaisement de tension sociale de médiation ak euh, on a frôlé Euh, ay mbir daal yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla yàlla defal na ñu ci sutura mhm. dinañ ko laaj taxawaayam dinañ ko laaj liñ ko dénk dinañ ko laaj aussi les perspectives mhm. yi nga xamante ni foofu la jëm ak relation bi mu am ak Ndar wax nga ko euh, nekk aussi nit koo xamante ni c'est un homme de consensus. Mhm. ndax tey gis nañ ne amul sens interdit fu baree bari. Mhm. mën na jëflanteeg ñoom sans problème loolu nekk loo xamante ni lu am solo la. Mhm. di gërëm bu baax Alaaji euh, Pape Anne moom tamit di ko ndokkeel bu baax ak euh, soxna yi ñu bokkal plateau yëpp ak Mamadou Ndiaye. di kontaan trop di beral nuyoo nag tey soo ma ko mayee su ko xam suma papa la. muy Serigne Mansour. bu maam Abdou si Sy Dabakh. Serigne Mansour Sy Dabakh waaw moom suma papa la. suma xarit la di ñaan suñu borom mu wéral ko yàggal ko fi soxnaam tamit doomu Serigne Mansour si borom daara ji moom tamit euh, sopp ko di nuyu Bachir doomam di euh, sant yàlla bu baax aussi ci euh, tawfeex bi ñu ñu defal boole maag moom bi ma suñu borom defal boole maag moom may ñaan yàlla mu yàgg fi lool di gërëm bu baax aussi Serigne Abdoulahat Gaynde Fatma ak njabootu borom Touba ak yëpp ndax jamono bi ñoo ngi jëm ci laylatul xadr laylatul xadr ku ko wax sa xel dem ci soxna may mun soxna may ci atub Serigne Bamba voilà mhm. donc euh, sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma nag di ci am taxawaay bu am solo avec des journées culturelles ay plateau yoo xamante ni sax euh, commencé nañ ko fii tey jii ci télévision Futur Média mhm. mu nekk bés boo xamante ni bésu màggal guddi laylatul xadr la mhm. ak euh, alquran bi ñu wax ne ci la wàcc ak ni nga xamante ni noonu la ko sunu borom màggale ne moom moo gën junniy weer mhm. waaye guddi fàttaliku mhm. jàmbaari lislaam jooju la tamit muy soxna Maymuna mhm. ak liggéey bi mu def ak euh, ni mu def alxuraan ak euh, ni mu jëlee dundam yépp déjee ko à cette cause waaye nekkoon tamit ci formation ak éducation surtout des fii waaw donc di ñaan sunu borom fa mu nekk mu yokk ko leer di ñaanal aussi ñoom sëñ Abdou Lahad ak njaboot gi yëpp sëñ Modou Mahfous ak ñëpp suñu borom defal leen ndam ci bés bi ñu jëm ni allahuma amin mm-hmm. xam nga leelatul xadr moom saa ci yegsee rek mm-hmm. eh, xel yëpp day dem ci eh, soxna may mm-hmm. caatub sëriñ Bamba waaye dafa am ay jigéen ñoo xamante ni ku ci mel ni soxna Baali Muntaxa ñëpp xam nañu ni référence am soxna may caatub sëriñ Bamba la moom eh, leelatul xadr bi daf ko def daanaka yëfi boppam ku mel ni soxna Momi Kebe mu sëriñ Saaliwu Euh, moom ab Ablaye Tagué euh, mhm. moom it noonu lay waajalee euh, laylatul xadr bi nga xam ni camion yi fii lañuy ñuy dakaar mhm. wàcc Touba ci ay bernde waaye mhm. au de bernde yi jàngat bi nga xamante ni mën nañu ko am ci jigéen ju yiw ju sell ju sell jooju du soxna may caatub Sëriñ Bamba kenn kenn kenn kenn dootu ko werante oustaz Pape Anne kenn dootu ko werante laaj Pape cofeel ga mu ci amoon ci guddi gi nga xam ni Sëriñ Fàllu Mbàkke ginaar yi ñu ci njëkk a rey moo ko joxoon ah. moom soxna May mu Seexul Xadiim mhm. euh, ñaanal doomam ju baax ja soxna Baali nga xam ni ba mu fi bàyyi ko tamit moom itam mhm. euh, mu taxaw ak ay ay magam ak i rakkam mhm. euh, ñaanal comme ñi nga tudd léegi soxna Baali Muntaxa nga xam ne ñoom itam bisub leelu taxadri bi coono gune dañ ko ci daj soxna Baali moom jàmbaari lislaam la soxna Ablaay Tage soxna Ummi Idrissa ñu baax ñooñu leen nga xam ni alaaj Paap bisu yu yiw yooyu bis yu baax yooyu coono gu nekk ko daj ngir doomu aadama yi bëgg ngir doomu aadama yi Euh, ku maanaam maanaam bég di fàttaliku borom bi subhanahu wa taala mhm. Mhm. rawatina ay xéewal yu bëree bëri mhm. soxna may nag mu cheikhul xadim alaaj pap ñoom maanaam da ci am jigéen ñoo xam ni duñu wax mukk ni su ma doon góor waaw dañuy dañu am dañuy taxaw taxawaayu góor te kenn du ne leen it boo boo boo doon góor waaw mi ngi noonu te kenn du jàkkaarloo ñoom it ne leen boo doon góor ndax taxawaay bi góor di am ci wàllu lislaam taxawaay bi góor di am ci euh, défendre l'islam ak taxawaay bi góor di am ci bëgg yàlla ndax bu mhm. yàlla ne mhm. innal mus muslimina mhm. wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitiina wal xaanitaati ñun Sénégal ñu ne góor baax na jigéen baax na jigéen baax na ila axiri <laughs> waaw fu yàlla ne am na jullit ñu góor mm. am na jullit ñu jigéen wayu gëm ñu góor wayu gëm ñu jigéen wayu dëggal ñu góor wayu dëggal ñu jigéen noonu noonu la ko yàlla di toppee alaaj pap nga xam ni am na ci jigéen ñoo xam ne euh, nitu yàlla yi dañuy wax sax ni boo leen fekkee xadaratul ilaahi mhm. mooy fa gaa yi yàlla yay daje mhm. am na jigéen yuy fekkee xadara ba mhm. am na ci jigéen ñoo xam ne daa dañuy bëmm comme gaynde si bi dañu xam ne yaa arut yokk leeram daan na wax ne soxna roqee njaay mii mu si bi mooy comme comme ñoom soxna may nitu yàlla waliyaat mhm. waliyaat yu ma mhm. waliyaat yu jigéen yooyu nga xam ni soxna kinne si da baax sama sama sama yaay mi ngi noonu mi ngi ah, noonu ah. Ah, soxna soxna soxna fat soxna fat si da baax soxna fat si da baax soxna umu kulsuum soxna umu kulsuum da baax sa yaay bopp nga xam ne jigéen yu yiw yu tedd yooyu nga xam ni tey boo leen fekkee xadara ba ci jaamu yàlla boo leen fekkee ci yiw boo leen mm-hmm. fekkee ci sellal mm-hmm. li góor di def ci jaamu yàlla alaaj baab moom moom la ñuy ba pare nekk jigéen bu bëgg a taaru rek xam nga suñu jigéen ñi dañu bëgg taaru ñoom kepp si dañuy defaru waaw ndekete taara ngi ci alxuraan mais alaaj boo fekkee euh, jigéen yooyu man soxna Bali bu ma ko gisee mu uuf kaamil da ngay gis rafetaay bi ak yiwam nga waaw alxuraan taar ndeke mais alaaj pap yiw ak sell boo fekkee soxna Sofiyatu mu sëriñ Maodo euh, maanaam ni mu déggee alxuraan nga fekk maanaam jigéen nga fekk mu yiw mhm. jigéen nga fekk mu sollu sell muur kanam nga alaj pap gisoo benn karaw ah. mu muuru ah. nga fekk mu toog yu feranku laa yor kaamiil ah. mbaa nga gis ko mu yor kurus mbaa yorul kaamiil yorul kurus nga bett ko fekk ko mu yiwu sa xol day sedd mbaa du loolu moo tax yàlla wàcceel leen saar parce que góor ñi amuñu saar mais góor ñi yàlla jigéen rek la wàcceel saar mais jigéen la yàlla tuddee saar alaj loolu mbóota ngi ci biir di mbóota ngi ci maa ngi lay wax ni jigéen mooy jël góor teg ko ci mon tañ ne ko gis nga loo bëggul mu yàqu mhm. loo bëgg mu yàqu rek mhm. bu ci boole jigéen mhm. waaye loo bëggul mu yàqu boole ko ci loo bëggul mu yàq boole ko ci am na benn benn waay bu ñoo jibi sekk dañoo formé woon benn daayira ca Thiès mhm. ne ma oustaz yaa koy waxtaan mhm. ma ne waa bismillah alxames ñu programmé ma mhm. ma ñëw ay vingt deux heures ma ne fa ba vingt trois heures ma ne ko waa jibi an waa daayira bi boobu jigéen benn jigéen newu fa mun ñun suñu daayira jigéen du ci bokk ma ne ko ah loolu pour lan moo ko mu ne ma non ñun daal ñun góor yi kese ah. jigéen bokk ci ma ne ah loolu de waroon ngeen ko bañ a def de comme que ñëw naa ba noppi ma waxtaan beneen alxames ba ñu woo ma man leen dee dama am fu may dem daayira ba yàggul daayira ba tas daayira ba tas ñoom loo xanaa xamoo jigéen dafa baax ci nga war a sañse rek fekk jigéen taxaw apprécier mais maa ngi lay wax ni loo bëgg loo <laughs> sa grand mbubu yi eh, boo demee ci daayira bu jigéen nekk doo am ku la ne allah ji sa mbubu mi rafet na mi ngi noonu gis nga loo bëgg mu yàqu bul ci boole jigéen waaye loo bëggul mu yàqu nag nga boole leen ci eh. alaaj Pape Rabia atal ya jigéen la woo joon yoo xam ni buur bu daan am ganu buur day invité Rabia wallaahi nga défileel ko eh. Rabia daal défilé ndax boobu Rabia dàq ci jigéen ñi àddina nga fay ko mu dem bés mu défilé dajeg benn góor benn jigéen ju mag ne ko Rabia doom may ndox Rabia ne ko nit ndox nu ko nit di ñàkkee di ko ñaan di ko wër di ko ñaan nii mu ne ko Rabia loo defal yàlla ba mu jox la sa taar bii Rabia tiit alaaji Paap dem jàngi ba xam nu ñoo sangoo farata jàngi ba xam nu ñoo nu ñoo julli jàppee jàng ba xam saar yoo jàngi alquranul karim guddi gu jot mu julli juróomi téeméeri rakka am ñu wax ne junni rakka par nuit ne yàlla bëgguma aljanna ragaluma safara yow laa bëgg mais rabia moomu xoolal fa mu déparé mm-hmm. Mm-hmm. dem na ba fa gaaw yàlla yay daje mm-hmm. rabia dafa bokk na ca te la waxoon ne hëjërtul xalqa turan fi hëwaak wa ay tamtul iyaala li kay araak tong naa mbindeef yëpp ngir bëgg la rek yow yàlla kon alaaj tab jigéen yàgg naa tedd ñoom umul xayri ah. ñoom sayda nafisa ñoom ñoom rabiatul adawiya suñu jig xoolal maam jaara bu soxna jaaratullaahi eh. mam fa wadd wele mam asu jànq mag ñu tedd ñooñu alaaj pap eh. ba jural ñu wëlu yu yii ah jigéen ñaa ngi ci réew mi ba tey dëgg la de ku ci góor góorlu mm. yàlla boole la ci boppam wallaahi macha allah jigéen ñaa ngoog jërëjëf yaa oustaz loolu am na solo eh, li taxoon parenthèse yi Pape Djibril la ndax moo tudd soxna may ndax ñu ngi dëgmal laylatul xadr sukkaru koor yi nag ci laa bëgg a tàbbi léegi ci 88 628 72 86 ñu teel leen ko jox ndax tey dañoo bëgg a tàmbali euh, teel waxtaan wi ñu nar a amal ak euh, ABC maître ba Badara Cissé euh, tey mooy ganuk quartier général ci télévision Futur Média bu dee téléphone yi ibbeeku na ma ñaan rek yéen ñi ne ci ginnaaw équipe yooyu tonton Mac Pape Samba Thiam ak ñoom Eva ñu teel a duggal téléspectateurs yi comme ça ku dugg léegi ñu jox ko 200000 am luñ ko ci tegal am na ñu fii piis am nañu fii bagage yoo xamante ni mu ngi jëm ci wàllu électroménager ñoo ngi ko jëlee Cabirex ay machine à laver téléphone portable euh, yi mujjee génn iPhone 12 Pro Max defe naa la tudd lépp rek dañu koy maye am nañu fi itam euh, ay billets euh, yii billet umra yii billet Makka ba ca des di billet ziar Cheikh Ahmed Tidiane ca dëkk bu ñu naan Fès ñoo ngi ko jëlee nag conciergerie du Maroc ñoom dañuy organiser. Euh, pèlerinage euh, ca fi nga xamante ni moo di euh, Fès téléspectateur bu ci nar a dal nag xam naa boo demee di nga ñu ñaanal donc ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 boo amee téléspectateur léegi nii ñu jël ko ma may leen quelques secondes le temps ngeen composé. bay dugg si en direct permettre tamit Sophie nuyoo très rapidement ak partenaire yi mu àndal ndax gis naa fa Sobowa ah ak Boisson Top. gis naa fa itam. Euh, Gloria. Uh-huh. Euh, gis naa fa itam niinal ardo gis naa fa ardo gis naa fa xel comme pizza waaw mi ci beñe yu neex yi <laughs> waaw ma daal la ma fa gis bëri na te xam nga xel comme pizza mi waaw sama doom joo xam ne dafa leen di toppandoo Amina mu keps déedéet Amina déedéet day service traiteur léegi waaye ba tey sotti ceeb daa ci bañ ne comme neex na waaw moom itam neen day def service traiteur ñëpp xaj nañ ma ne ko yéen jigéen ñu màgget loo rek kañ nga fi judd bay def service traiteur <laughs> mi ngi noonu Amina ñu ngi koy fóon bu baax macha allah <laughs> bonjour Sophie wala bonsoir boo ci wax rek boobu la sotti <laughs> ceeg def ci la Baye Cheikh mi ngi noonu maa ngi lay jaajëfal rek kontaan rek ci ànd ànd ak yéen ci suñu plateau bu yaañi bi nga xam ne chaque jour dañuy kontaan rek taxaw fii andi leen benn plat boo xamante ne dina leen mën a servir di ziar bu baax rek euh, oustaz Pape euh, ñi nekk ci plateau bi yëpp Baye Cheikh maa ngi leen di ziar euh, comme ni ñuy def nag saa su ne andi leen benn plat boo xamante ni soit di ngeen ko mën a reprendre pour xëdd wala ngeen mën ko def pour seen ndogu kër tey nag Baye Cheikh omelette tropicale la andi boo xoolee plateau bi nii am naa laitue am naa poivron rouge poivron vert olive noire am na ñu nen am na ñu euh, saucisse de poulet am na ñu benn macédoine de légumes boo xamante ne mooy composé tey plat bi ñu leen di proposé am nañu fromage tomate citron piment de Cayenne Baye Cheikh ci kanam rek ñu mélangé loolu yëpp daal defar li nga xam ne mooy plat du jour tey bi ñu ko defar mukk nag te jaajëfaluñu suñu partenaires yi nga xamante ne ni moom la ñu àndal waa euh, pâte j'adore ñu andil ñu vermicelle ak macaroni escaza mi nga xam ne ñoo ñu andil euh, thon Welsi bi nga xamante ne Baye am na bu nature am na huile de tournesol am na bu am ail ak garlic am nañu nag waa pack food mi nga xam ne ñoo ñu andil moutarde ak vinaigre mi nga xam ne bàyyi booy mariner sa jën wala sa yàpp moo ci gën ñu ànd aussi ak waa Sonacos ñoom ñu mhm. andil ñu diw niinal bi nga xamante ne bàyyi comme ni ma koy waxee rek du lakk du way te du fuur loo ko jox mu delloo la ko mhm. ànd waa ardo ñi nga xam ne dañ lay teel a yóbbu ardo ñoom it ñu andil ñu ardo vanille ardo taf-taf ak li nga xam ne mooy ardo fraise ànd aussi rek ak waa Helcom Pizza comme ni ñu ko waxee ñoom nag euh, ñu ngi fële ca euh, Soprim euh, Fatou Dime numéro de téléphone bi rek bàyyi Cheikh 77 la 545 54 97 boo leen woowee rek ñu livré la à domicile ñu ànd aussi ak waa Kandia ñoom it ñu àndil ñu meew boo xam ne Baye Cheikh bu seddee dafay neex bu tàngee day neex ñu ànd ak waa Presea Fresque ñoom tam ñu àndil ñu boisson bu macha allah Baye nga xam ne fruits ci nekk yëpp c'est 100 pour cent naturel ci kanam rek boo fi dellu si waatee ñu daal di la ne da ngaa jongama ba tey dañoo am parce que boo tàmbalee wax doo arrêté. bàyyi waxoo ma lii si njaay tooñ yokk loxo. dee ma defal nii tey. <laughs> mu sóor ma mu dem. li ma ne li ma ne ajatu aw mbay léegi il faut colonel ñibbisi. waaw waaye it njaay indil nañu problème. njaay day dolli bañ la ne da ngaa jongama ba tey boo tàmbalee wax doo arrêté Sophie ah, sonal nga ñu. kon bàyyi ah. waaw kon waaw kon kon ñu def noon ba ci njaay day dolli. day dolli njaay day dolli mu ngi lay dégg njaay yaa ngi dégg. njaay dolli mu bari nag dama laa yërëm na na kii rek garaawut <laughs> allez

en plus allez Marie-Louise euh, dama koy bàyyi mu dem toogi euh, bugguma dem tant que invité bi ñëwul voilà du ma toog tant que invité bi ñëwul pour qu'on puisse démarrer tôt euh, waxtaan bu am solo bi ñu nar a euh, jagleel euh, ki nga xamante ni moo di maître Alioune Badara Cissé pendant ce temps mën nañu leen jël ci téléphone yi 88 628 22 22 22 Mamadou Ndiaye il faut rappeler que téléspectateurs yi comme dañuy tàmbali teel mën nañu teel a yónnee seen ay questions ñu baaxee ko gan gi dans quelques minutes n'est-ce pas. miin nañ ko kay maa ngi lay nuyu El Hadj di nuyu ñi ma bokkal plateau nuyu oustaz Pape Anne. nuyu euh, Pape Djibril nuyu euh, Adja Awa ak soxna yi nga xamante ni ñoom moom laa bokkal euh, plateau bi sama yaay Yacine maa ngi koy nuyu Keps maa ngi lay nuyu bu baax internautes yi ñoom actuellement ñoom ñëpp ngi taxaw ci depuis bi ñu wane affiche bi que ni tey kii di El metre maître Alioune Badara Cissé mi nga xamante ni moom la ñuy invité tey hashtag bi min nañ ko QGTFM 2021 wala QG5 muy euh, Facebook Twitter wala Instagram ci suñu plateforme yëpp euh, Facebook man nee nag ñu ngi bëgg a dolleeku ci liñ doon wax keroog El mooy euh, internautes yi ñoom tamit ci suukaru koor yi la ñu bokk ndaxte à chaque fois ñi ngi commencé di def seen ay capture di ñu ko envoyé waaye bu ñu ko envoyé man. wala keneen ak keneen parce que vraiment ñenn ñi dañ ma koy envoyé mais mën nañu dem ci suñu plateforme yi surtout ci suñu page Facebook bi nga xamante ne Euh, def seen capture daal di ñu koy envoyé ñu choisir kenn daal di partager ak ñoom je pense que mën nañu jël kenn ndaxte euh, vraiment message yi ñuy jot bari na bi ñu annoncé ne waa Facebook tamit lu tax ngeen yi ngay wax yëpp jëlal nga may leen xaalis <laughs> may leen loolu la bëgg de instant yi ñu bëgg ñu may leen jëlal jëlal nga may mayel cent mille ay cent bàyyi ma xool euh, kenn ki nga xamante ne naa ko sur Twitter yaa ngi yéexal de. noonu bàyyi ñu jëlee xam naa damay bañ ñu daal sama kaw voilà kenn ngi nii. voilà kan la kii Mbengue Alassane. na ko envoyé légi ci ginnaaw ñu partagé ko. Ah. ñu mu daal di euh, ñu daal di koy may 100000 francs. allez on lui offre 100000 ñu on lui offre jëlaatal keneen jëlaatal keneen jëlal maximum. léegi le uh-huh. man ma nuyoo fii. voilà loolu ah comme ñun nuyoo mbër la ñuy def. <laughs> dama nuyu Marie Louise maa ngi nuyu waat <laughs> Adja Awa maa ngi nuyu Pape Anne maa ngi nuyu Pape Djibril comme nuyoo mbër la ñuy nuyoo. nu <laughs> ñu nuyoo rek ndax mënul ñàkk Abdou Ndiaye ko woyoon. ma nuyoog ñoom nuyool ajota am mbay ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay euh, fay yàlla ci Pape Cheikh di nuyu comme ni nga ko waxee te nga bàyyi ma door nuyu nuyu mbër. waaw dañu nuyoo nuyu mbër rek mënul ñàkk lépp ci Sénégal la bokk en fait. <laughs> ma dooree ko ci euh, ki nga xamante ne mooy madame Cissé Marie Louise. Euh, sama compagnon de guerre. comme man ak moom a bokkoon campagne bi ba bëlee compagnon de guerre laa koy tuddee terrain. waa gis nga <laughs> c'est ça aussi le journalisme le terrain c'est important. Euh, di wax ne maa ngi nuyu euh, ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Ndiaye ak Keps ak Yacine. di nuyu suñu càmmiñ yu baax yi. di mm. nuyu ki nga xamante ne moom mooy Oustaz Pape Anne ak Pape mm-hmm. Djibril. ak ñi nga xamante ne ñoom lañ fi euh, fekk di rafetlu jataay bi. Mhm. Euh, di wax ne tey Pape Cheikh li nga xamante ne moom mhm. moo xew mhm. ci wàllum wér-gu-yaram daañu ci wax ndax boobu ba léegi. Euh, daanaka wàccuñu ci mbirum garab la ñuy wax gannaaw bu faat ki na noppee daañu wax tamit ci li nga xamante ne mooy njeexitalu garab kon ba ci kanam. voilà donc on va parler des médicaments mënul ñàkk ak Adjota Mbaye Marie-Louise yow it ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi Kebs tey moom tey naar la ak Yacine <laughs> Mauritanie la ñibbi ak sama seexu campagne ñun waa Idi Ari <laughs> Awa Mbaye ak Mamadou Ndiaye ak oustaz Pape Ad ak Pape Djibril Fall di amaat mbégte toog ci plateau quartier général te nag Pape Cheikh comme ni nga ko waxee dañu am invité bu alaaw wi parce que comme ni nga ko waxee alaa daw ne na daw daw mi ah <laughs> alaa daw mi na parce que euh, Alioune Badara Cissé dafa nekk koo xamante ne c'est un grand homme de la République en plus d'allier éloquence élégance courtoisie et euh, euh, et nan la tuddati connaissance dafa nekk koo xamante ne c'est un très bon client et am na yoo xamante ne xewoon na fi tey dernièrement ci ci dëkk bi am na ay kàddu yu mu ci amoon nekk na koo xamante ne wax nañ sax ne moom c'est le géniteur de l'APR tey dinañ ci ñëwaat ci compagnonnage am ak le président Abdoulaye Abdou Macky Sall du moins Macky Sall ak taxawaayam ci ci dëkk bi. voilà et puis diplomate la loolu dafay intéressé euh, dafay euh, intéressé euh, KEPS ci diggante Sénégal ak bitim réew wala ci diggante Sénégal ak jaspora bi ñu ngi lay nuyu KEPS. Baye Cheikh. ah tey dañoo nuróole ay couleur ah, gis nga giri <laughs> xol lay gisee maa ngi lay nuyu di nuyu ah, sama sista yi ma bokkal plateau bi mm. Marie Louise Awa mbay c'est toujours un plaisir Yacine ah, di nuyu également Oustaz Pape Anne Pape Djibril dooree nuyoo bi tamit ci yow ak toute l'équipe ak Mamadou Ndiaye mm. ah di kontaan ci teewaay bi comme à chaque fois le plaisir est le mm. di nuyu nag comme ni nga ko waxee sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew waaye itam ñi nga xam ne ñoo nekk fii tamit mu concerné leen directement Baye Cheikh yi nga beral loxo tey waaw waa gànnaar tey moom parce que tey ndogu xayma nga def waaw <laughs> waaw tey moom Zeyna xat tey moom moom moom Mauritanie waaw Mauritanie <laughs> ah, kii euh, Mouhamed Diallo ah, borom le bon choix Mouhamed Diallo waaw ñoo ma yónnee ah, lii yëpp ndeysaan jox ma ko xam nga ñoom dañuy seetaan télévision Futurs Médias dañoo bëgg depuis bu yàgg donc nag c'est une manière à nous won leen ne Afrique ñun ñëpp benn lañu mm. te tubaab yee ñu sàkkali frontière rek mm-hmm. donc tey may jël yëpp rek QG bi yëpp waa Mauritanie laa ko may tey Mouhamed Diallo ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax wënni bii quoi ak Sidi ñu ngi leen di nuyu ak sama rakk ji fa nekk euh, Milk Thiam uh-huh. donc ak soxnaam euh, Pape nag tey dañuy ñëw ci euh, sujet boo xamante ne bii bu ama am solo la uh-huh. ndax boo xoolee vingt uh-huh. li nga xam ne moom moo di Barça Barça dafa dellu si waat bien que mosu fee jóg sax waaye dañoo gis ci période corona mu ñëwaat bi mu ñëwee nag am xale yu bëri yoo xam ne dem nañu xale yi bi ñu demee ba nekk à l'étranger ñoom ñëpp dem euh, rawatina fi nga xam ne moom moo di Espagne fan yee ci ginnaaw ñuy coow di wax affaire accord yoo xam ne signé nañ ko pour ñu delluwaat mhm. bi xale yi déggee loolu ñoom ñëpp genn wàll gi dañoo daw daal di tasaaroo ndax bañ tamit ku leen delloo si waat mhm. euh, donc du ku loolu la ñu bëgg waxtaanee tey ak euh, tamit lu jëm ci wàllu développement mhm. di wane ne en période de corps Euh, métti na trop ci seen côté ah mm-hmm. nga nekk koor ngay fanaan ci biteeg yu demee noonu ci loolu la ñuy ñëw waaye ñu ci yem di dénoncer rek mm-hmm. dinañ ñëw tamit ci li nga xam ne moom la ñu xalaat euh, muy ay solution mm-hmm. ndax gis nañ ne boobu ba léegi am na forum boo xam ne euh, nguur gi ñu ngi koy tenir jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di emploi des jeunes te loolu xëy na dina tax mu saafara wu Pape loolu lañ fas yéene waxtaanee tey voilà on va en parler ci kanamu invité bi j'aimerais que ñu préparer ko mu ñëw yegg si rejoindre ñu ci plateau bi très rapidement ñu mën a tàmbali waxtaan bi tey teel mën leen a teel a libéré ngeen mën a xëdd parce que que da ngeen fonk programme bi ba nga xam ni euh, da ngay jayeexu sax di ko seetaan Euh, loolu itam euh, yëg nañu ko ba comprendre ko moo tax on va tout faire euh, pour di ko tàmbali teel waaye ñu nit ay nit lañu dañuy ndogu ñu nit ci kër yi doog a mën a ñëw <laughs> liggéeyal leen yéen ñi fidèle ci programme yu télévision Futur Média mais on va démarrer ak Yacine quand même ci point bu am solo ginnaaw bi ñu la nuyoo Yacine ñu ngi lay ziar ma petite cousine waxtaan ci bërki démb maa ngi gis ab reportage boo xamante ni rédaction bu télévision Futur Média def na ko ci bonbonne de gaz yi. ndekete ñu bëri na ci ay bonbonne de gaz yu ñuy euh, yu ñuy yu ñuy jëfandikoo euh, yu bëri am na manque de respect de normes euh, pour aar suñu bopp voilà donc on va en parler ci bonbonne de gaz yooyu naka la ñu mën a def ba éviter mu exploser suñu kaw maara day yi kenn ñaanu ko mais xoddee ko balaa ngay lakkle xoddeeku balaa ngay lakkale Pape Cheikh si tu me le permets rek comme li may def saa di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatuhu di nuyu euh, les téléspectateurs de la TFM mais bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi ñuy suivre wala yaa ngi yeew euh, ci réew mi euh, di nuyu ma sœur Marie-Louise di di nuyu Awa di nuyu Keps Bijou oustaz Pape Anne maa ngi lay nuyu di la ziar Pape Djibril di wax effectivement man saa su ne Pape Cheikh soo gisee thème yi ma koy choisir damay que temps yi soulever nañ question euh, bonbonne de gaz ou 12 mm-hmm. kilos yi ñu ne dafa manqué c'est en rupture même sur le marché mm-hmm. léegi man saa su ne damay ñëw si aspect sécuritaire bi parce ah. que gis nañ ne très souvent année bi soo xoolee statistiques yi incendie yu bëri yi am si biir kër yi si mm-hmm. gaz lay joge soit dañ koy fàtte euh, tëj wala euh, biñ koy monter xooluñu qualité gaz bi ñu am am na benn reportage bu ma def avec toujours un expert consultant si rubrique sécurité bi muy commandant Diop bi pare ñu dem seetaan ko vous commentez que sur le plateau. Allez. Déjà trois catégories de gaz dafa am le gaz euh, asphyxiant am le gaz inflammable et le gaz toxique ñun li ñuy gën a bari fi Sénégal ci li ñuy wax ni gaz inflammable la gaz inflammable mooy butane surtout li ñu gën di utiliser fii mooy le gaz butane en fait problème bi nekkul ci sécurité bi nekkul ci douze kilo beeg kilo bi ak Euh, neuf kilo bi sécurité mi ngi ci transport bi stockage bi ak manipulation bi foofu la nekk mais nekkul ci euh, volu poids wu gaz bi mais ci comment le transporter comment le stocker et comment l'utiliser foofu la sécurité bi nekk. en fait stockage bi dafa am deux volets maanaam mooy stockage grande nature yi ñuy stocké ci marché yi par exemple wala ci dépôt yi foofu la stockage bu primaire bi nekk foofu. dañ ne d'abord gaz yi waruñu koy tëral bu ñu koy stocké dafa war a taxaw ci air stockage boobu bâtiment bi ñu koy stocké aussi dafa war a am aération au moins cinquante centimètres carrés ci suuf ak aération ci kaw aération bi ci kaw nag warut a nekk à moins deux mètres quatre-vingts ci suuf donc foofu la foofu déjà problème aération bi daf ci am ak noonu lañ ko war a installé dafa war a taxaw warul tëdd second cas bi mooy stockage wu sa kër euh, ci sa kër euh, mënoo dajale ay bouteilles de gaz yu bari te par exemple arrimé wuñ leen maanaam boolewuñ leen te ñu taxaw ñu téye leen fa bu fekkente ne alimentation kii bi noonu nga koy defee comment dire encore cuisinière bi mais bu dee nag da ko nekk lool par exemple ay 6 kilos 9 kilos yi nga amee fii fi koy stocké aussi dafa war a am ngelaw dafa war a am aéré mais warul nekk ci naaj bi loolu mooy principal problème stockage bi warul nekk ci naaj bi te dafa war a am ngelaw waroo fa dajale aussi bouteilles yu fees yi ak yu vide yi yu jeex yi dafa am fenn foo leen yu fees yi mën nga leen di stocké feneen mais yu bokk fu ñu nekk beneen bi dañu am tendance stockage bu bouteille bu vide bi. rek dañ koy sànni ci bitti moo gën a dangereux sax bouteille bu fees bi ci en terme de stockage beneen bi aussi euh, ci fem mooy en terme d' utilisation euh, benn bi boo comme fu ñu koy stocké warul jege source saleur chaleur maanaam warul jege tàngoor donc boo ko utiliser it da ko war a sori rek tàngoor bi utiliser ni ñuy def nii di taal fourneau fii di taal gaz fii ci ci waañ loolu rafetlu wuñ ko ndax fekk sax gaz baa ngi tàkk problème bi mën naa bañ a garaaw mais bu fekkente ne fee par exemple togg nga fa ba pare ci gaz bi ba fay ko fourneau bi continuer di fonctionner tàngaayu furno bi bu koy laal mën na koo dilaatewaat ba mu indi euh, problème donc loolu kenn rafetlu ko beneen bi nag ci tuuti utilisation bi ci ëpp solo. mooy des fois du tëj gaz bi ba mu jeex te boo ko tëju ba mu jeex dana am lu fi fuite di dem loolu di génn di dem nag te fekk tëj bi seerewul na mu waree mën na indi problème parce que mën naa indi takk tàkk mën naa indi safara mën naa indi aussi explosion bu amee source de chaleur bu ko bu ko bu ko bu ko jege. voilà ginnaaw dañuy jëfandikoo ay gaz nag nañu moytu bu baax ndaxte euh, mën naa jur. mën naa jur jëyee te saa su ne euh, ñu gis ko euh, bi ci njëkk pour ñu commencer wax en terme de prévention mooy ne que tey ku nekk am nga euh, responsabilité si gaz boo xamante ne explosé na wala tàkk na si këru jàmbur mhm. parce que fañ koy remplir fañ koy stocké ki koy transporter ba ki koy utiliser loolu yëpp chaîne la boo xam ne ci diggante bi gaz yi mën na am problème te nit ki du ko xam mhm. moo tax ñuy wax ne soo jëndee li nga xamante ne mooy bouteille de gaz indi ko sa biir kër da nga koy teg mu taxaw benn place gaz kenn du ko tëddal bàyyi cher na accident am loolu moo koy indi parce que soo ko tëddalee mën na transformer wu en liquide te su boobaa day nekk un produit inflammable explosif diggante fa nga koy jëndee ba nga koy yëkkati ko mën na daanu ci diggante bi da ngay xool buteelu yi rek boo ko yëngalee yëngal boo ko ibbee rek tu as tout compris moo tax soo ko jëndee ba indi ko sa biir kër teg ko quelques minutes ba mm. xam ne dal na mm. léegi soo ko branché tamit am na vérification boo war a def daan nañ gis ñu koy def soo ah. disee bouteille de 6 kilos bi euh, dañ suñ ko daan seere ba pare da nga daan gis ñu jël allumette taal ko wërale tout autour léegi nag loolu soo ko defee wërale tout autour flamme bi dis ne tàkkul jë kiiwul xamal ne bouteille bi nga jël en tout sécurité mën nga ko utiliser donc ñu bàyyi si xel bu baax a baax beneen bi ci des mooy bouteille de gaz kenn waru ko teg ci naaj. Mhm. soo ko tegee ci naaj euh, gaz moo nekk si biir mën na det euh, mën na euh, toll foo xamante ne comme ni ngay expliquer boison bi ñuy utiliser nga xam ne heure boo ko taalee rek day exploser def li nga mhm. xamante ne mooy ay ge de feu indi li nga xam ne mooy incendie si biir kër gi beneen bi si des mooy. Euh, gaz bu jeex moo gën a bouteille de gaz bu jeex moo gën a dangereuse que bouteille de gaz bu fees ndax bouteille de gaz bu fees su amee incendie muy enflammé wu day continuer di tàkk ba keroog muy jeex alors mmh. que bouteille de gaz boo xam ne dafa jeex dafa am benn liquide buy nekk si suuf moom lañ doon wax sànq à éviter ñuy tëddal gaz yeeg yooyu boobu mën na nekk projectile explosif bu dangereux te très souvent nos bons moment dañuy dajale plusieurs bouteilles de gaz ci waañ bi wala ñu def ko si li nga xam ne mooy ëtt bi muy confronté ak li nga xam ne mooy naaj bi donc nga xamante ne tey incendie su amee projectile yu graaw a ngi noonu si biir kër gi ñu teg ko mm-hmm. beneen bi si des mooy bouteille de gaz tout le temps dañoo war a vérifier ndax tëj nañ ko wala tëjuñu ko mhm. parce que gaz boobu tey soo ko tëjulee mën na indi dis nañ ko ay cas yu fi doon am si période du sedd beeg yooyu ay cas d'asphyxie parce que butane bi am na nu muy toll noo xamante ne xale mën na nelaw si biir kër mag ñoom ñëpp ñu euh, yàlla tere décédé te fekk ne liñ ko inhalé euh, moo tax beneen bi ci des aussi dañuy wax ne xale yu ndaw yi très souvent euh, cas de brûlure yi man dem naa yaa deux ans fi nga xam ne mooy Albert Royer li fa nekk ci accident par brûlure kenn xamul nu mu toll donc ñuy éviter xale yi aussi ñuy am accès si li nga xamante ne mooy wàññi beneen bi ci des expert bi wax na ko c'est qu'à partir de 6 ans euh, bàyyi cher jëm 7 ans xale bi moo ngi ci phase de mémorisation kon war na nañuy ànd ak moom ci waañ bi explique ko nan la ñuy utiliser gaz expliquer ko les mesures de sécurité yi nga xam ne tey moom rek su retrouver woo en face d'une situation dangereuse dina si mën a génn euh, beneen bi may jeexale mooy euh, les vérifications dans les marchés te loolu day ñëw si lépp li nga xam ne mooy code de wax na ko muy stockage yi ñuy def des produits dangereux code de ñëw na ci te tey soo gisee Baye Cheikh soo demee sax si boutique yi ci quartier yi bouteille de yi dañ koy tàncale te bouteille de gaz dañ ko war a séparer warul laal suuf warul laal kaw parce que su laalee suuf mën na tàng tàng boo xam ne dilaté wu na ci suuf ba yow moment bi nga koy utiliser mën na tàkk sa kaw donc euh, ñuy wax rek ñu bàyyi xel bu baax si type de stockage yi type de transport yi dañuy fara di gis charretier yi ni ñu koy defee c'est très c'est interdit da ngay gis ne su suñu ñëw aussi di ko décharger dañuy jël gaz bi di ko sànni gaz bu daanu amul lu ko gën a euh, dangereux euh, beneen bi si des Baye laajte mooy dans les stations d'essence très souvent on a vu euh, falay euh, jeexale ci émeute yi mhm. te soo ma mayee sax si brèche la pour expliquer pourquoi rupture bi parce que def naa si benn gëstu bi ma wàccee sur le terrain dañuy gis ne euh, problème su amee wala manifestation rek dañuy jubali directement ci station de gaz yi émeute yi passé beaucoup de stations de Total ont été attaquées may fàttali ne station nag d'essence moo gën a wóor ci àdduna parce que dañoo def système de coupe boo xamante ne si suuf la essence bi di nekk mais li si dangereux mooy tey ngay ñëw di attaquer station d'essence fekk fa citerne bi loolu aussi très souvent damay gis ci station yi ñu koy def dama naan où sont les propriétaires parce que amul lu gën a dangereux tey portable di tàkk téléphone nekk à côté nit ñi nekk à côté ngay ñëw di remplir li nga xam ne mooy euh, sa euh, kii sa essence si au niveau des stations donc tey euh, su ma ñëwee si si rupture bi en fait 80 pour cent gaz douze kilos yi total moo koy euh, produire donc bi émeute bi amee yenn station am na yoo xam ne sax fonctionné ba tey loolu bokk na ci li indi rupture bi parce que le ministre Gladima de l'énergie et du pétrole wax na ne gaz am na effectivement gaz am na mais su tey euh, station yi nga xam ne tey 80 pour cent si quantité bi ñoom ñoo ko doon indi dañoo arrêté mhm. seen remplissage mhm. foog ñun population bi ñu yokk donc ñu bàyyi xel bu baax si attaqué yi nga xam ne ñoo ngi koy faral di jëmale si bien yi nga xam ne tôt ou tard ñun ñooy yëg conséquences yi Baye Cheikh ci gërëm bu baax mieux vaut prévenir que guérir tubaab da koy wax ko balaa nga euh, lakkale euh, ñu euh, gërëm la am na beneen alerte boo xam ne dañu koy def léegi bii jëmul ci gaas yi waaye ci faux médicament yi parce que ñun moom dañu bëgg lu yomb garab buy jar junni ca pharmacie yenn saa yi nga jënd ko ci mbedd bi 1000 francs euh, da ngay jàpp ni mën na laa faj fekk mën na indi ay loraange am na circuit boo xamante ni foofu la garab war a jaar loolu mooy norme bi am na gëstu ñu ci def laata euh, ajaratu aw mbay di ñu ci jox ay conseils mais j'aimerais aussi parallèlement que yi ñuy waxtaane yëpp gan gi fekkee ko ndax mënuñu ñoo wax teel leen a tàmbali te gan gi <laughs> toogagul. loolu itam def ci joué euh, nañu euh, ko wàccee mu ñëw toog ñu euh, tàmbali jotaay bi ci jotaay bi Ablaye Cissé on m'a dit qu'il est là va nous rejoindre aussi c'est l'un des plus grands journalistes de ce pays je le dis et je l'assume ndaxte saa yu toogee ba def ay jàngatam ak ay ganam ci édition spéciale yi ñu leen di proposé ci télévision Futur Média njëriñ rek la ñu koy gis il fait partie de ces journalistes qui prennent des risques loolu maa ko témoigné ci Abdoulaye Cissé donc on a bon choix tey boole ko ak gan gi tey di euh, maître Alioune Badara euh, Cissé euh, le temps ñu koy installé Oustaz Pape suba la samedi te guddi gi dafa nar a rëy te nar a garaaw ndax ki ñu fas yéene waxtaane di Seydi Hadj Malick jar na waajtaay moo tax tey duñ la téye dañu lay teel a libéré nga mun koo waaji <laughs> jërëjëf tey moom doo toog ak ñun ba xëdd alhamdulilah yow mën ngaa tàggoo léegi dem waajal guddi gi suba insha allah jërëjëf jërëjëf alaaj Pape am nañu mbégte uh-huh. euh, di euh, nuyu bu baax euh, maître Alioune Badara Cissé uh-huh. moom itam Euh, di ko ñaanal yal na yàlla yokk ko dëgëral. amiin euh, moom boo ko dégloo xam ni borom xam-xam la. Mm-hmm. boo ko dégloo euh, xam ni borom xam bu am pédagogie la. Mm-hmm. waaye itam boo ko dégloo xam ni kilifa gu baax mag kenn wax ko yaru la waaye ko mm-hmm. yaru la. waaw ndax bari na mag moo xam ne bu waxee rek. doo bëgg mel ni moom. waaye moom nag kàddoom ñëpp dañu koy yàkkamti. di ko ñaanal yal na yàlla defal ko jàmm. mais laaj Pape am nañu mbégte suba nag nu war a waxtaanee jàmbaar ji. Cheikh Seydil Hadji Malick. léegi rek maa ngi liir li ko Serigne Xéri Touré waxoon euh, abal habibi salil xutbi Ousmana waxida asrika te yiran wa irfana ne ko waaye fa mu daanee la ma ci gën a neex dafa ni ko moom daal li nga def ci réew mi ak li nga gindee doomu aadama yi yàlla mi am fa yàlla na yàlla fay la xam nga loolu wax ju jeex la waaw waaw li nga rafetal yow Maodo fa mu daanalee mu ni fallaahu yujzika bil ihsaani ihsaana ñun daal amuñu sa fay ki am sa fay mooy rafetal ki nga rafetal yàlla rek moo am sa fay yàlla na yàlla fay la la way ko tax arab boo waxoon Seydina Muhammad ne ko ni ma mel ci yow duma ko seedaloo kenn yàlla xam na ni bëgg naa la waaw <laughs> yàlla xam na ni bëgg naa la wallaahu yaalamu annani ahwaak kon alaaj Pape ba suba rek incha allah suba ku ñuy waxtaane nga ni moom laay wax ni jàmbaar ja mooy kan Cheikh Sidil Hadji Malick moom la ñoo waxtaanee suba incha allahu taala uh-huh. la ko alhaj Mouhamadul Mansour waxoon ne ko ne ko bàyyi géej nga waaye ay dex rek la wër ah. tey njaboot gi koo ci jël rek mooy alhaj Malick mm-hmm. waaw ne ko kon suba dañuy gàmmu da gàmmu la ndax Souleymane Ba mooy ñëw uh-huh. ndax xam nga Souleymane day conférence day gàmmu uh-huh. waaw dañuy conférence ba mu yàgg mu ànd ak Samboub nag Samb mooy ñëw euh, euh, mi ngi noonu saam daal mooy ñëw uh-huh. buuba ndijaayam mooy ñëw ndax saam nee na uh-huh. yuusu sama jarbaat la uh-huh. njaga sama jarbaat la buuba sama jarbaat la biraan nag may maamam waaw kon saam buub mooy ñëw suba and ànd ceeg Souleymane Ba nu war a waxtaanee jàmbaar ja Seex Sil Haaji Malik nga xam ne moom la sëriñ Babacar waxoon ni ko ma dëhru jaada bi malikin wa ka maliki ka dëhri marra bi malikin lil maliki nee na jamono tabe ngaa tabe tabe tabe ba indi alhaji Malik dem na dootoo tabe waat indi waat ku mel ni Maodo jeex na ne ko bàyyi géej nga mi ay dex rek la wër wal baxru wal anhaaru fi janabaatihi kon ay yax sa zama man kaana fi janbihi l baxru nee na ndox mu neex bu nekkee sa buntu néeg donte bu rëbbi na tëjee ndax di ko yëg nee na mooy Seydil Hadji Malick da nga bëgg a commencé émission bi nii suba lay doon bàyyi ba suba rek yow saas yal nañ ko yàlla fayal <laughs> allahumma am nañu mbégte allahumma laaj Pape euh, gërëm bu baax a baax ñu baax ñi nga xam ni ñu ngi ñuy ci sañse yi ah? euh, tey xam nga lii ma sol Oumy ah. Idrissa bëggul ma wax ko sax ah. moo ma ko jox ah. jox ma ci yu bari nag Oumy Idrissa Gueye dafa baax moom waaw yaayu xaadim yaayu xaadim nee na Pape Cheikh sama dooma yàgg na waaw di ko ñaanal yàlla guddal fanam uh-huh. mais ak Adja Mominatu Kébé mooy yaayu xaadim xaadim chéri maître Ngenaar waaw surtout moom Alfaye Mayoro boobu Adja Momi uh-huh. moom itam ni ma ni ma du ma wax dara waaye moom itam mi ngi ci bu baax yal na yàlla fay ko allahumma yal na yàlla fay leen ñu baax ñi allahumma Maxtaar Samb sunu xarit moom itam kenn amul fayam uh-huh. ñu baax ñi daal alaaj Pape taxawunu yal na yàlla taxawu leen mais balaa ngay dem dama bëggoon maître euh, euh, euh, Euh, ñuy tàmbali waxtaan bi parce que bëgguma ngeen juyoo bëgguma nga dem mu ñëw waaw waaw dama bëgg ngeen joxante loxo maître moom xam nga ñëpp ko sopp maître Alioune Badara Cissé maître moytul moytul marché bismillah <laughs> dégg nañu lool lool lool lool ci teewaay bi ngeen jëf macha allah papa ji bi macha allah màggal naa la Cissé Cissé Cissé ngi jégalu ñu ngi lay ziar soxna yi papa Cheikh ñu ngi lay nuyu papa respect déférent ah ben merci d'être venu les hommages un plaisir d'être là kontaan nañu kontaan nañu merci oustaz merci ba ca ba ca kanam wala ba suba incha allah voilà kontaan nañu lool ci euh, teewaayu maître Alioune Badara Cissé mhm. di suñu euh, jur Euh, Pape Djibril xam nga ni maître dafa terrible loon bi mu nekkee xale. Ah bon ah si dafa terrible loon ba ñu ba ko mu def mécanique mécanicien bu mag la nii. non il faut ma ah, commencé ah, dóor ko ay coups. parce que je discutais ay des amis. Uh-huh. temps bii coow li uh-huh. ñu ne kilifa yëpp wax nañu kenn déggu leen. Mm-hmm. pourquoi maître Alioune Badara Cissé wax rek ñëpp déglu ko. Mm-hmm. ma ne ko c'est parce que dafa maîtriser ndaw ñi. Mm-hmm. il a été jeune. te il fut un jeune terrible paraît-il mm-hmm. Mm-hmm. voilà donc du coup xam na bu baax taxawaayu ndaw ñi mm-hmm. euh, moo tax ndaw ñi dañuy bëgg bu ñu ko dee dégg euh, muy euh, fësal ay kàddoom tey nag mu defal ñu honneur nekk ganuk quartier général li ñu ko bëgg a laaj bu Djibril defe naa bëri na nest lu am solo nga wax ne li nga ne li nga ne xam naa ku terrible la woon waaye xam naa ne pànk bi moom mu ngi fi ba tey <laughs> waaye waaye waa lycée Blaise Diagne à waaye waaye li li nga wax euh, te mu nekk te mu am solo mooy keroog sorti bi mu def bari na ñoo xamante ni xëy na du ñu bokk ak moom xalaat mm-hmm. waaye yëg nañ ne am na élévation boo xamante ni def na ko mm-hmm. ba nekk au-dessus de la mêlée y a des discours qui entrent dans l'histoire waaw kay daal di wax ak en réalité discours yi ñoo ñoo dañu dañuy sax façonné histoire mm-hmm. donc mu am ci taxawaay bu am solo damay wax ne dafa am benn glissement boo xamante ni dañu ko am depuis les années 2000. Mhm. mooy ñu commencé di dénk ndaw ñi ndaw ñi. Mhm. dama jàpp ne ndaw kenn du ko dénk ndaw. Mhm. ndaw mag mu am solo nga koy dénk. mag tamit kenn du ko dénk mag. da nga koy dénk ndaw yu am solo ñu gunge ko. donc la transition il faut savoir les gérer il faut savoir les négocier. waaye léegi li xew à partir de 2000. mooy ñuy jël ay jeunes. di leen dénk ay jeunes. su ko defee jeune bi ngay dénk jeunes yi jeune bi ci biir parti am sax day am sens interdit mhm. waxuma la coalition waxuma la nag jeune réew mi yëpp mhm. donc finalement ñu commencé nekk ci ay vase clos mhm. ba nga xamante ni pour ñu mën a waxtaan dëgg dafay jafe donc mën nga jël ay xale nga dénk leen mag mu am solo mu gunge leen comme ni ngay jëlee mag dénk ko xale yu am solo mu daal di koy gunge bon mois j'en parle avec euh, en connaissance de cause parce que suma maam moo ma yar ma nekkoon ak moom ci benn kër te mosuñu am conflit de génération donc c'est des choses qui sont importées encore une fois mais ñun ni ñu dëkkee sunu mag ñi mooy la transition elle est naturelle il faut que xale bi rassurer mag mi ne ko mën ngaa dem tool bi du booy tool bi du booy ginnaaw gi dinaa ci taxaw taxawaay bu am solo mais keroog moom discours bi mu def je pense que ne discours rassembleur la woon waaye daal di apaiser. moom mooy médiateur de la République il était dans son rôle. il est politique mais il a participé à tous les combats démocratiques te dinañ ci dellusiwaat ci biir waxtaan bi. mu ngoog euh, ñu ngi lay nuyu man xaw ma ndax maître rek laay wax wala ma ni papa. <laughs> parce que suñu suñu waajur la ba pare euh, tey daal dañoo kontaan lool. Ah, ñu ngi ñu ngi bég ci sa euh, teewaay. bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk yi nga xamante ni ñooy xaar depuis sànq. Ah. sa yegg si ci quartier général bi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi jégalu ci yéex a ñëw bi naam bu weesu naa toll ci fanweeri minute ci waxtu wi ñu waxoon waaye dama jàppoon horaire bu njëkk ba rek ne xam naa dañ ma fi tëj rek <laughs> dugal ma ci néeg bu tàng jër ma toog di xaar ba ñaari waxtu <laughs> ndekete am na coppite mhm. ñu ngi leen ciy félicité bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu soxna yi nekk sa wet d'abord mhm. bokk ak ñun émission tey bi mhm. ñu ngi ziar ñoom Mohamed ñu ngi ziar Ablaye ñu ngi ziar Papa Djibi mhm. c'est des gens que j'apprécie beaucoup mhm. je ne les vois pas souvent mais je les vois beaucoup mhm. à la télévision et ils participent oh départ naa ci loolu lakk boobu dañu bokk ci ñi nga xam ni ñooy façonné suñu xalaat di façonné suñu jëm nekk ay seetu ci suñu kanam ñuy gis jamono fan la jëm nekkuñu xaleelu kenn lu ñu mën rek mën na lu ko raw mhm. lu ñu xam rek xam nañu lu ko raw mhm. seen loxo set na mhm. ba jegi dayoo yal na suñu borom gën a leeral seeni xel gën a setal seeni loxo gën leen bàyyi ci fi ngeen nekk ci seen place ngeen di yóbbu réew mi ca kanam yow papa Cheikh sama doom nga ah vraiment je suis très heureux très très heureux je te le dis de te voir évoluer de manière extraordinaire loolu nag courage moo ko mën xam fan nga bëgg dem xam itam lan mooy sas bi mhm. nga ànd ak ñoo xam nag ñu ngi sawet mhm. rogganti la mhm. ngay doxal donc ñu ngi leen di ziar bu baax Adjaye je vous présente tous mes devoirs déférents Et que Dieu fasse que nous ayons une belle émission. incha allah boo xam ni du ñu ko rëccu. incha allah merci en tout cas euh, ci euh, teewaay bi Ablaye ñu ngi lay nuyu. waa Cheikh maa ngi lay fay. kontaan nañ ci sa teewaay yow itam tey. am mbégte ñëw fi trop mais dama lay euh, féliciter yow ak euh, ñi def euh, casting bi mm-hmm. parce que danga ñu may loo xam ne tey maitre al Badara Cissé maam Cissé <laughs> ak madame Cissé Marie-Louise dina am koo xam ne dina xat ci plateau bi ma ma séntu ko sax Adja Awa ah, Mbaye waaw moom xam naa tey triple peine lay am <laughs> duñu ko bàyyee dara mais c'est plaisir vraiment de se retrouver ici ci plateau bi mm-hmm. Pape Djibril moom xam na mm-hmm. maa ngi nuyu aussi Adja Yacine dafa am lu ñu boole ci fan yu fan yu mujj yi rek mm-hmm. et c'est très important ci li muy yëngatu mm-hmm. nekkee ci passion mm-hmm. di ci gëstu di ko xóotal aussi je pense que c'est très important mais nuyu Kebs aussi Kebs xëy na ci plateau bi fii peut-être que ñu bëri duñu ko xam mais peut-être que ñett xamuñu mais ñaar xam nañu yàgg ngeen voilà exactement <laughs> entre deux journalistes vous vous connaissez. <laughs> et puis ñu bëri dañuy fàtte son ñu bëri ñu son passage à Sud FM. Sud dans cette grande maison de presse. Mm. voilà am lu mu def ci moom ba tey xëy na mu yegg si fi mu yegg si nii. Bijou am naa moom peut-être euh, euh, gise bu gaaw. Mm-hmm. Ah, ci suñu année France. waaw moom xam nga dafa. ba léegi loolu daf ko topp nag. parisienne parisienne ah, la ah, waaw mais mais on assume. Ah. bijou loolu faut assume waaw on assume on assume sa fait partie de nous waaw et puis. Maodo Ndiaye bien entendu maa ngi nuyu ñëpp vraiment c'est un plaisir de se retrouver ici. maître Alioune Badara Cissé évidemment bu ñu la nee mooy gan gi. da ngay nangu sax mu dalal la. wallaahi c'est un dandy. Mm-hmm. dandy boo ko déggee mooy nit ku bëgg boppam la. Mm-hmm. bëgg bopp nag. Mm-hmm. bàkk la. waaw bëgg sa bopp. bàkk la bu ñu bàkkee nit ni da bëgg sa bopp mooy xëy na bëgg nga lu baax ci yow bëggal nga nit ñi lu baax te loolu c'est très important maintenant li ñu fi boolee dinañ ko waxtaanee tolluwaayu réew mi dinañ ko waxtaanee mhm. man na laaj boo xam ne depuis vingt ans mhm. maa ngi ko gardé non non mais non mais non mais c'est vrai j'ai une question depuis vingt ans mhm. euh, gisewuñu euh, mais the last time we meet together it was on March 2001. that's true. mais dinañ ci ñëwaat. on va garder la question voilà dinañ ci ñëwaat. léegi bu ñu jógee nag. waaw waa ñu ñu ñëwaat ci yeneen. incha allah voilà on va garder question euh, parce que am na yu mënul ñàkk maa ngi wax sànq alerte boo xamante ne Awa Mbaye daf ko bëgga def euh, ci euh, coowal garab yi. Mhm. on nous parle de faux médicament mhm. lu foo kay baaxul. Mhm. waaye comme ñun dañu xaw bëgg lu yomb yenn saa bu ñu gisee garab gi ñuy jaayee junni bu ñu ko jaayee téeméer. ñu jël waaye li mën a indi ci ay loraange Euh, ndeke dafa metti laata ajut awa mbay di ci euh, bu njëkk bi d'abord circuit wu médicament circuit wu médicament Pape Cheikh maa ngi lay fay nuyu waa plateau bi yëpp kontaan ci partagé ko ak euh, ñi fi nekk ñëpp une fois de plus circuit wu médicament dafa am mais ñun dañu xaw a bëgg lu yomb ba nga xamante ne dinañ jënd li ñuy tuddee faux médicament wala médicament illégaux alors Sénégal dafa am benn réglementation ba nga xamante ne bépp garab balaa mu fiy dugg war nañ ko saytu xool ko mu topp réglementation boobu ba pare balaa ñu koy jaay nit ñi tamit war nañu wóor ne jaar na ci réglementation bi nga xamante ne teg nañu ko pour bépp médicament bu fiy dugg loolu nag terewul ba léegi am na débat buy posé wu ndax euh, boo leen fàttaliko le 14 avril bi passé am na ay médicament yu ñu saisi ci benn kër euh, te biñ fa demee di ko xool condition de yi ñu ko doon conserver daal dëppoowul ak normes yi nga xamante ne euh, scientifique yi teg nañ ko pharmacie teg nañ ko kër docteur teg nañu ko tey nag fenêtre santé ci loolu la dem intéressé wu jéem leen a médicament balaa muy dugg fii Sénégal fan lay jaar ak lan lan lañ ci war a xool ñu ànd ci ak Fatou Kiné Deme ak Mbaye aussi ci bi. taxul nga mën koo dugal ci réew mu la neex yoon wi dafa leer direction de la pharmacie et du médicament des su ko jéggi. pour mu dugg fii da ngay déposer ay échantillon ci biir échantillon yooyu nga joxe tam li nga xam ne moo ne ci biir garab yi. nga boo ko joxee ñu woo ay expert ci biir direction ba ñu saytu ndax li nga ni moo nekk ci garab yi moo ne ci biir laboratoire de contrôle vérifier ko ñu mën a certifier ni li nga wax ci garab yooyu nekk na ñu door la mun jox li ñu naan autorisation de mise sur le marché. lu soxal mbirum garab nag dañu ko tënk ci ab charte charte boobee ana lu mu ci wax. charte bi dafa ni grossiste répartiteur yi ñoo ko mën a indi Sénégal ci sa tur grossiste yooyu dañ ci am benn public muy PNA ak ñeent yoo xam ni privé lañ ñoom ñoo mën a dugal garab gi. nga door a mun nag positionner sa garab mën commencer di ko jaay ci Sénégal mu ñu fekk si yeneen garab yi fi ne. ak lii xew ci mbirum garab yi jur coow lu rëy ci ndakaaru rëkk-rëkk yi ñu ne sax dafa bari. liñ ci mën a jàpp benn mooy ki fi dugal garab gi du grossiste répartiteur donc amul sañ-sañ. war a jël conteneur yàpp ci ay garab dugal ko Sénégal garab yii ñu gis donte ay perfusion daf ci ne parce que perfusion du ndoxum robinet ndox la muy dugg ci yaram yi doomi aadama donc am na qualité yu ci war a nekk pour mu war a mën a dugg ci doomi aadama donc dañ ko war a saytu loolu amul beneen ba ca des garab pour nga denc ko dafa am charte yu ñu tëral ci naka la melokaanu fañ koy denc war a mel naka lañu war a tegalee garab yi ak garab bu ci nekk la muy yell moo xam ci lu sedd ci lu féex wala fudul tàng fuñ ko war a def te loolu yëpp dañ ko norme te gis nañ ni ci liñ ñu won ci image yi loolu respecté wuñ ci lenn mbirum garab nag dafa laaj ab saytu bu wóor ndax yu bon yi nag dafay lor ba tax na askan wi la lépp luy garab nañu ko jëndee ci officine nii ñiy yëngu ci njaay mi it nañu doon ñu ko xam dëgg. voilà loolu mooy kàddu bu am solo bi. kàddu ñu ko jëndee fi ñu ko war a jëndee. moo gën a wóor. Pape Cheikh nañu ko jëndee fi ñu ko war a jëndee parce que Sénégal rek ngay dox taseeg nit mu na la ndax médicament nga bëgg mhm. ville def nañ ma ko ah, da ngay choqué wala ngay gis kenn ku yenn ay garabam wër di jaay te du médecin du pharmacien du lenn xamul ban circuit la garab bi jaar te pourtant teg nañ circuit yi nga xamante ne dañuy mën a aar population bi ndax garab déjà bi nga xamante ne baax na sax soo ci ëppalee mun na nekk poison waxantuma laak benn garab boo xamante ne xamuloo fan la jóge amul traçabilité jaarul ci circuit bi mu war a jaar testé wuñu ko avant ñu koy dugal ci biir dëkk bi échantillon yi jëluñu ko def ci test jaarul euh, fi nga xamante ne fa la war a jaar pour ñu mun ko dugal ci biir pharmacie yi mu tas ci dëkk bi mm. donc garab daal war nañ ci def attention bu baax ñuy remercier Fatou ne dem euh, ci gëstu bi mu ci def ndax euh, effet secondaire da ci am ci di bu dee bu baax bi waxumala ak boo xamante ne xamul fan la jógee Pape Cheikh. voilà conséquences yu métti jeexital yu doy waar. la euh, la nit mën a mujjee euh, bu dee mu ngi jëfandikoo lii tubaab tuddee faux médicament. voilà moom baaxul ala kulli yàlla wa. Mhm, faux baaxul alaaji Pape Cheikh jëm ci euh, garab yi ndax ñoom pharmaciens yi ñoom ñoo ko wax ndax loolu mooy seen liggéey jëm ci garab garab dafa am foo xamante ne foofu lañ ko war a jëndee waaye nag bu nekkee lii fàttali ne pare. nga xamante ne bu nekkee am na garab parce que yoon moom mooy tranché bu nekkee am na garab kon pharmacie lañ koy jaay ak euh, fi nga xamante ne foofu la ñuy fajoo su mm-hmm. boobaa dañuy tooñ consommateur bi mm-hmm. parce que ñoom bu ñu nee consommateur bi na dem jëndi garab Pape mm-hmm. Cheikh ci pharmacie muy circuit légal mu dem l'hôpital tamit ñu bindal ko fa mu dem jënd ko ci pharmacie hôpital kon bu ñu ko fa jaayee garab goo xamante ne nekkul euh, topp euh, maanaam toppul norme yi kon dañuy tooñ consomateur bi waaye nag kon balaa ñoo egg ci tooñ nañu consommateur bi am déet parce que loolu yoon moom moo koy euh, tranché dañuy wax ne garab mën naa am njeexital ci wàllu wér-gu-yaram ndax ñoom pharmaciens yi ñoo koy wax garab bu fajul mën naa doon tooke tooke bi mooy xam nga garab dafa am dosage maanaam dafa am loo xamante ne mi ngi ci biir moo tax ñu naan garab bu duggee sa biir nag mu maanaam day def li nga xamante ne moom la ñu ko soxla woon loolee nag euh, bu ko deful mën na koo yàq am feebar yu bari yoo xamante ne mën na ko indi am na benn article boo xamante ne sax professeur Abdou Niang moom moo ma ko defaraloon jëm ci li nga xamante ne moom mooy le conséquence euh, sur la santé jàngoroy roño bi ñuy wax Pape nga xamante ne mm. lëmb àdduna bi xam naa sax euh, sunu gan Alioune Badara Cissé dina ci wax ndax jàngoroy roño day maanaam dayo bi foo ko natt weesu na ko li ko waral mooy am na ñoo xamante ne ñi ngi dox ak feebar bi xamuñu ko donc loolu moo tax ñu ne dayo bi foo ko natt maanaam insuffisance rénale insuffisance rénale moom mooy les maladies euh, rénales chroniques am na boo xamante ne aigu am na boo xamante ne c'est chronique mhm. léegi nag euh, li ciy topp mooy dialyse te xam nga dialyse faj bi cher na yàgg na ak itam garab gi bu nekkoon sax dialyse bi rek baax na mais dangay jënd garab mhm. kon maanaam loolu lépp nag balaa ñu ci egg ndax garab mën naa indi jafe-jafe roño roño bi segg liy jaar ci euh, yaram donc euh, loolu bu fa garab ga eggee mën na kaa indi ay yàq yàq yu bari kon nga doon faju fa jëlee fa loo xamante ne day yàq sa yaram nañuy jënd garab fu ñu ko war a jëndee euh, ba noppi ñuy bàyyi garab yi nga xamante ne dañu koy jënd du ñu am ordonnance ak yooyu yooyu maanaam dañoo yeb garab ab Cheikh ñun garab dañ koo yeb maanaam dañu koy bindal sa sa bopp wala Pape am garab jox ma ko wala ma am garab jox ko Marie Louise ñu di ko paasanteeg yooyu yëpp baaxul parce que am na garab yoo xamante ne boo ko yàggee jël day yàq yenn ci say Euh, si say organe euh, néphrologue bi wax na ko professeur Abdou Niang moom itam ñu koy sargal ndax xam nga ne ay bés bi mhm. euh, moom la ñu fal mu nekk président commission dialyse bu société internationale. c'est un combat qu'il porte depuis très longtemps. voilà voilà donc c'est un combat qu'il porte depuis mhm. très longtemps donc il est porté à la tête de mhm. di ko sargal moom itam ndax yàgg naa wax ci doy di rañoo moom boo ko laajee sax. ci wàllum doy di rañoo danaan nañu wax ci fagaru bi. ndax faj mi cher na métti na goo xamante bu ñu wax nit ñi sax ne dialyse ak leneen am na ci nan leen wax ne nan la ñuy def ba moytu ko maanaam lekk gaa ngi fi daf dem def sport mais mais am na loo xamante ne Pape Cheikh mënu see ñàkk mooy garab yu ñuy jëfandikoo ndax euh, bu roño bi ñu waroon a jariñ bu bu ñu demee ba mu manqué nga xamante ne Sénégal tollooguñu foo xamante ne euh, dañ lay def greffe loolu lépp tollooguñu ci kon nañu fexe ba garab bu ñu koy jëfandikoo nañu xam fu mu jógee ki ñu koy jaay li muy jëriñ bu ñu ci noppee ñu bañ ko utiliser waat ndax am na garab yoo xamante ne euh, dafay faj wala dafay rey ay microbe yooyu bu ñu ci ëppalee wala ni ko war a jëfandikoo jëfandeewuñu ko ëllëg dinañu dalaat ñu bëgg koo faj ñu naan ko duñu jariñ dara te xam nga loolu nag jafe-jafe la parce que infection bu duggee sa biir yaram mën naa yàq lu bari donc nag boo jëlee garab gi nga xamante ne moom nga jàpp ne moo war a rey virus bi microbe bi wala leneen nga naan ko jëriñu la dara kon bu boobaa beneen jafe nag moom mooy am mhm. boobu moom paj mi day topp feneen beneen jafe-jafe ngay am di wax ne euh, tiitalu ñu nit ñi mais euh, chaque jour dañuy nekk si ñaax bi te ñaax boobu am na solo nañuy dem pharmacie di jind garab ak itam circuit yi nan koy xoolaat ndax coow yu mel nii li tax euh, euh, Pape Cheikh coow lii rëy mooy dañoo xamul dëgg-dëgg lan moo nekk ci biir mhm. foo médicament xam nga histoire yooyu yàgg na am Sénégal mais aujourd'hui on a cité plusieurs parties maintenant nag loolu yoon moom moo koy euh, régler di ko lijjanti waaye di wax ne képp koo xamante ne yaa ngi doomu yaa ngi yaa ngi nekk doomu Sénégal nekk ci biir réew mi na ngay xalaat wér gi yaramu euh, sa yeneen naataangoo yi parce que mën naa am ne bokk ak nit dara waaye su feebaree mën naa fexe ba yegg si si yow ñaan la loo fajoo mm-hmm. te bu boobaa tamit da nga koy yëg voilà mm-hmm. kon ñuy wax ne sénégalais yi nañu bàyyi xel ci garab yi ñuy jëfandikoo ndax loo xamante ne bu duggee sa yaram bu la fajalu boo moyul tooke lay doon tooke bu duggee si biir yaram da koy yàq kon nañu fexee ba bu ñu koy jëfandikoo nañu ko jëfandikoo ci anam yoo xamante ne que docteur moo ko digle di dem di ko jënd euh, fa ñu ko bëggee ba noppi di ko jëfandikoo tamit euh, nañu ko bëggee. voilà maître lan moo tii sa sa xalaat walla sa taxawaay. man dama am njàqare parce que réew moo xam ni dañ ko organiser. Mhm. warul mën a nekk ñu di fi dugal ay garab bu dee benn benn. Mm-hmm. oui parce que am na ay ONG yu ne ay garab am na ñuy voyager ñu may leen ay garab bon par tolérance ñu bàyyi ko mu jàll mais ñi nga xam dañu indi garab en quantité presque industrielle dañu war a am même des autorisations du ministre de la santé te garab yi indi waruñu ko booleeg ay fauteuil ay canapé mm. ay affaire dañ ko def mm. séparément waxuma nag li ñu wane nii des milliards et des milliards en valeur dugal ko ci réew mi ba pare kenn bëggul taxaw jël la responsabilité mhm. je pense qu'il y a une faille énorme dans ce système la et on continue encore de nous empoisonner avec des médicaments yu jógee Chine yu jógee bëgguma tudd dëkku jàmbur mhm. mais mais Nigéria Inde et cetera comme si ñun daal ñooy mbalitu addina bi mhm. lu waaye defar te mënoo ko jaay feneen nga indi ko gis nañ ay garab yoo xam ne mënoo ko xàmmee bu baax bi ak bu baaxul bi soo ko dajee nag ba xëcc ko fekk wëtteen la bu ñu comprimé xam naa ni farine bu ànd ak dàkkaande ñu def ko ci kaw pressé ko muule ko di la ko jaay da koy jënd parce que jaaxle nga di la ko jënd à à bas la bii mooy générique bi bii et cetera alors que yooyu yëpp dañ ci war jóg jël ñii nag dugal ci kaso bi c'est un acte mais du loolu ñi nga xam ni ñoo ko fi dugal ñoo ci profité ñu ngi ci biti mhm. et ça vraiment il faut que on s'en occupe nekkul rek ci garab mi ngi ci ñam yi ñuy lekk mi ngi ci poisson yi nga xam ne dañ koy naan lu ne lu ne lu ne lu ne kenn toppatoowul daara jàpp ne nag war nañ ci wax ni ngeen tàmbalee ni c'est très bien ma sœur a bien agi elle bien campé le problème parce que dafay mel ni Ablaye dañ ñu bëgg a rey xanaa mais sëñ bi dañuy rey nga naan dañ ñu bëgg ah, dafa mel ni dañ bëgg a rey kay ñu ngi ñuy tifaare c'est pas normal wallahi la direction de la pharmacie et du médicament dafa war taxaw ñu jox ko ay jumtukaay muy tester di def ay ay kii ay échantillons mhm. dans les cartons di prélever mhm. di tester balaa ñu koy nangu la douane taxaw su fekkee c'est un c'est un médicament prohibé ou dont l'origine est contesté ñu teg ko de côté ñi ko fi dugal ñu ni leen ñu teg leen loxo ñu xam ne ñun kat ña ñu dénk suñu bopp ña nga ñuy aar suba ak ngoon guddi ak bëccëg du ñàkk nag mu am yore ci ne bu rëccee ñu xam ne rëcc na nanka la rëcce ñu lijjanti ko waaye loo xam ne jaxaraan indi ko stocké ba kër gi fees ñu denc ko ci saldo yi teg ko ci kaw siège WC yi waaw mais ñii tam ils sont même pas sérieux li lay won ni dafa garaaw dafa am convention internationale boo xam ne Médicrime la tudd Médicrime Médicrime mhm. maanaam dañuy criminalise trafic de médicament ak lépp luy faux médicament boo déggee criminaliser mooy dañuy yéegal xeetu tooñ yu mel noonu teg ko ci tooñ yi gën a kawe pour nit ñi gën a comprendre bu yàggul li ñu fi mujjee criminaliser ci biir mi mooy viol loi bi nga xam ne day criminaliser viol nga xam ne kon teg nañ ko fu kawe trafic de médicaments dañu ko criminaliser donte sax donte sax convention bi Sénégal ratifié gu ko waaye jàpp nañu ni dugg nañu ci convention bi ratification bi nag procédure la ñu ngi ci waaye xamuñu lu tax ba léegi sax defuñu ko mais loolu moo lay won gravité bi nga xam ne nii am na ko te dañu dafa am xewee ci contexte boo xam ne c'est très important dañu génn ci suñu célébrer soixante et unième indépendance 4 avril thème bi lan la woon force de défense et de sécurité et la protection des frontières protection des frontières da nga ciy dégg état major da nga ciy dégg forces armées forces armées maanaam militaire moom lañ ci gën a ràññee mais da ngay dégg ñii nga xam ne ñoom la ñuy wax les soldats de l'économie mooy douane mooy watt suñuy frontière ci lépp loo xam ne bitim réew lay jóg war fee dugg est-ce que xel mën naa jàpp ni kuy dugal ay conteneur loo xam ne nii amu ci droit da koy dugal ba pare toog ci xottu nen naan yàlla na jàll mhm. loolu xel mënu koo nangu li am mooy lu ñuy lijjanti la ci yoon pour xëy na am ku gëmm mu jàll parce que bu ñu naxantee xaalis bu toll nii kenn du ko importer di yaakaar ni da ngay toog ci xottu nen pour naan ah bu yegsee fa mu war a jaar yàlla na jàll yàlla bu ko kenn gis complicité mënul ñàkk ci lii te téyewuñu ko fa nga xam ni fa la jàpp ni fa la jaar bu doon dafa ñëw ci port ñu téye ko ok def nañu seen liggéey mais fa ñu ko téye mooy dugg na ci biir dëkk bi ba dem ba ñuy tàmbalee dispatché ba nit ñi di ci servir wu te réew mi nag lu xew dañuy bàyyi jaan di topp ci watit wi dóor fa ñuy seet du foofu te xëy na aussi bëgguñoo seet mais lii waroon nañ ci taxaw de telle sorte que dès les premières heures dana am ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla danañ leen laaj ay compte ndax ñi yor frontière économie douane la wala waroon waruñu leen da mën a teggi di seeti feneen ña nga xam ne nag bu fekkee ni dañoo joxe autorisation pour mu dugg ci lu warul am autorisation ndax ay garab la du ay produits paramédicaux yoo xam ne nii mën na bañ am autorisation loolu tam ñu lijjanti ko mais li ci jiitu mooy fi mu jaar ak naka la def ba génn fa nga xam ne nii fa la euh, duggee ci réew mi ba mën a dem foo xam ne ni fa lañ koy denc pour dispatcher ko ba nit ñi di ci jot. garab amul kenn ci ñun koo xam ne mën ngaa seetlu garab xool ndax bu baax la am baaxul. Mm-hmm. moom kay yaqin ngay am ci jënd ko. Mm-hmm. jëndee ko fa nga ko war a jëndee. Mm-hmm. te nee nañu. ñi doon serviru bokk na ci ay établissement public nit da ngay am yaakaar sax feebar nga am yaakaar ci garab gi nga xam ne moo la war a faj mais sa feebar toll foo xam ne garab bi du la man waa léegi bu ñu demee ba la ñu lay sol ci garab non seulement faju la dana retardé faj ba parce que ña la koy jox dinañ yaakaar ni dina wàññi feebar bi mais boobaa ñu ngi lay lor loolu moo tax ñu criminaliser ko. te crime la dafa am nag lu fi jaar ci taarix Sénégal jaruñu ci dellu siwaat parce que jàpp nañu fi trafiquant faux médicament ñu dëxañ turam ci liste boo xam ne gracier nañ ko président de la ci boppam taxaw na wax ni ñu njort nangul ko ko ci ne xëy na dañu ko tromper de bonne foi ndax moom président buy gracier nit. vraiment du nekk di wër liste 600 personnes yi ñu ko tegal yëpp di xool ku nekk kan la mais que dëxañ turu trafiquant de médicament boobu mais ci listam est-ce que mhm. wër nañ ko ba léegi mhm. xam nga loolu mooy tax du ñu am yaakaar ci ne mhm. lii itam danañ ko topp ba mu sës loolu yu fi nekk la rek mais lii lor askan wi dañ cee war a taxaw redevabilité publique aussi loolu la te loolu médiateur dinañ ci ñëw ak moom lu bari ci redevabilité publique. voilà donc heureusement ba médiateur baa ngi fi. moo tax euh, sujet bu ñëw rek euh, bu ci waxee dafay jëriñ am na beneen alerte itam euh, bu am solo bu ñu jagleel xale yi bëgg dem. Euh, Barça wala Barsax yàgg nañu koo dégg si un autre point bu bokkewul ba tey ak garab yi euh, daañu ci ànd ak Kebs merci Adjatou Awa Mbaye bi ju ñu ngi lay gërëm bu baax ak Fatou Kiné euh, mi ñuy defal gëstu boobule quartier général nag comme mooy Sénégal waxtaan wi neex na waaye suukaru koor yi itam xam naa ni seen i xel a ngi ci am na ay internet yoo xamante ni ci ndimbalu Momadou Ndiaye dinañ leen jox ay suukaru koor yu toll ci cent mille waaye yéen ñiy seetaan bu amee téléspectateur yu nekk ci ligne bi nañu leen jël très rapidement ci 88 628 20 30 60 wala 88 628 04 05 laata euh, ñuy tàmbali euh, waxtaan bi ak euh, maître Alioune Badara Cissé maa ngi gis suñu ay soppe yu bëri yoo xamante ni ñu ngi yàkkamti waxtaan bi tàmbali Yaxam caam ñu ngi koy nuyu télévision nationale moo ñu yar donc elle nous regarde avec beaucoup de fierté ñu ngi koy nuyu fàttewuñu itam Fatou Francesca Diafouné moom it suñu suñu suñu suñu xarit la ñu ngi koy ndokkeel Bijou Tuuti elle fait partie de ces jeunes entreprendre depuis très longtemps nekk à cheval entre Sénégal ak bitim réew euh, di entreprendre euh, Ibou Ibou Diop Ndiaye moom it euh, suñu mag la intellectuel nekk ca France toujours day xool lan moo war a baax pour Sénégal mu ñu ciy mu ñu ciy jox ay conseil ñu koy jëfee moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax Adja Dieng Astou Sow moom it suñu yaay la ci dëkk bu ñu naan France ñu ngi koy ndokkeel bu baax Alice Newman ak toute cette communauté sénégalaise bi nekk Canada ñu ngi leen di nuyu moom ñoo bokk fans club cinq minutes de Pape Anne euh, donc bu amee téléspectateur léegi nii ñu jël ko jox ko sukkaru kooram très rapidement deux cent mille trois cent mille cent mille un million euh, ngeen ziyaari ji fees euh, wala sax billet pour dem Makka wala Umra lépp dañ koy maye ci quartier général bi c'est pas pour rien tout le temps may sonal laate naan leen quartier général mooy Sénégal oui QG mooy Sénégal li koy dëggal mooy seen taxawaay allo allo allo. allo salaam. dégguma la bu baax soit ñu yokkal ma la wala nga yokk euh, nga yokk baat bi rek ñu gën la dégg noo tudd ak fan ngay wootee kon nañu ma ko yokkal fii euh, noo tuddu Mouhamadou Diallo Mouhamadou Diallo ñu ngi lay ziar bu baax waaw yàlla yàlla nangu allah nu ngeen def ak koor gi waaw ah, jeex na yéen a ngi veillé ak quartier général waaw ñu bi ngeen di veillé nag du suñu faute insomnie la. waaw waaw ci lay kenn mënul nelaw kenn mënul nelaw épidémie d'insomnie moo am fii ci senegal ñu teel la libéré rek bàyyi la nga continuer euh, seetaan bi am nga fi sukkaru koor bu toll ci deux cent mille. Eh, ay waay deux cent mille. deux cent mille lañ la may sukkaru koor. ay waay ah. loolu xaaruma ko woon ci at bi waxuma la weer wi de ci at waaye ci at bi jamono ah. neexul jamono neexul moo tax teraanga Sénégal Ramadan may na la euh, may na la deux cent mille euh, yoo dimbali kook sa njaboot amiin boo amee calpe free moo ne nag dafay gënati waaw yor naa ko am nga numéro free waaw am am nga am nga kal ubbi nga calpe free moo ne mbaa déplafonné nga ko bon c'est pas grave mën nga ko vérifier ci dièse cent cinquante vas-y vérifie. waaw d'accord voilà mën nga ko vérifier ci cent cinquante dièse comme ça ma yónnee la léegi nii 200000. d'accord d'accord voilà 200000 yi daal yaa ko moom ak sa njaboot. ok jërëjëf ma la cee tegal tissu boo boo boo xottil soxna si. kon de kon tegal naa la ci tegal naa la ci tissu. Euh, pour euh, pour soxna si ñu ngi ko jëlee sant yàlla boutique. moo ngi noonu di reetaan ci kaw. mbaa kontaan na. kon mu ngi noonu di man dama kii mu ngi xam nga lu may def sax te ba koo jox cuub bële parce que jigéen ñi cuub la ñu gën a bëgg de. waaw jox ma cuub bi xadi bàyyi ñu jox ko cuub bi cuub bi nag par contre benn xaritu benn xaritu buuba nduur moo ñu ko may. aywa voilà suñu benn xarit bu inconditionnel ci quartier général. Ah. waaw cuub bii raf mbaa dina ko jàpp moom ban teen la yore. ah xees <laughs> kon bii dina ko jàpp de bii de bu ko. Ah. bii bu ko yóbboo ci kati création. <laughs> waaw dama koy may sax ñaw bi na ko yóbbu kati création ñu ñawal ko. waaw oh, waaw mën na na de. voilà deux cent mille cuub ak njëgu ñaw ci kati création. ay <laughs> lii daal suñu benn yaay bu tudd Ulay Dukure. Pape loolu lay ñaanal xaw ko. maire bi day seetaan TFM ba dañu koy mere Adja Ulay Dukure. voilà moo ñu ko may ñu may la ko dégg nga. aywa plus plus deux cent mille. dina baax mbaa. kii <laughs> romb na foofu de. yaa ko moom yaa ko moom merci <laughs> yaa ko moom merci d'avoir rappelé xaaral ma vérifier ndax ndax jot nga deux cent mille yi ci sa calpe euh, free money parce que man tamit am na calpe free money. naa ko vérifier ko léegi nii am nga deux cent mille plus tuuti euh, boo ñawlo mu ngi jóge ci Adja Oulay Doucouré ñu koy gërëm bu baax merci d'avoir rappelé. jërëjëf jërëjëf merci euh, ñu jëlaat beneen téléspectateur joxaat ko wàllam ci suukaru koor yi euh, ci télévision Futur Média Oulay Doucouré ñu ngi koy gërëm bu baax très fidèle euh, ci télévision Futur Média moom dafa mel ni samay waajur sama papa ak sama yaay dañuy couplé rek di seetaan TFM ñoom TFM ou rien du tout voilà donc bëri ngeen ci ay morom ay kilifa yoo xam ni dañu bëgg loolu programme yi télévision Futur Média dañuy seetaan cest dire bu seen sët yi zappé sax ñu mer. voilà donc euh, ñu ngi gërëm bu baax Adja Oulay Doucouré euh, ci euh, lii mu ñu terale ñu may ko suñu xarit bi bu amaatee téléspectateur léegi ñu jël ko très rapidement pour gagner du temps ndax nag sukkaru koor yi yéen rek la ñu ko jagleel ci quartier général bi alo kooku. waaw. waaw la. maa ngi man la Lamine. Lamine na def. waaw maa ngi. yaa ngi wootee fan lamin maa xanaa koor gee la jàpp. waaw waaw instant bi gi xaajagul de ñu ngi ci dix et de defe naa doy dollar. doy dix ah koor gi jeexagul de bul loof waay. Ah, yàlla baax na nanga def. Oh, maa ngi fi. yéen a ngi bég ci quartier général. waaw jaajëf léegi dama lay bàyyi nga dem seetaani euh, euh, teel la jox sa sukkaru koor quartier général may na la euh, sukkaru koor bu toll ci. deux cent mille deux cent baax na. Ah, ah, jeex na am nga fi deux cent mille. Ah, waaw mooy sa suukaru koor boo amee calpe free moo ne ma yónnee la ko fa léegi lu ko mooy mun nañ la ko jox itam ndax yaa ko moom. waaw waaw am naa ko waaw. am nga calpe free moo ne. waaw waaw. jeex na xaaral ma yónnee la léegi nii ñeent fukki ñeent fukki ñeent ñeent fukki junni deux cent mille waaw. waaw waaw kontaan nañ trop macha allah. Sénégal Ramadan may na la deux cent mille. yaako oh, na macha moom yaa ko moom. yal na yàlla yokk xéewal yi. allahumma amin. ok yal jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci woote bi. voilà donc deux cent mille yi euh, laa ko yónnee nii war na koo jot ci téléphone am ñu jëlaat très rapidement tey dañu ko accéléré rek pour euh, bégal waa dañu bëgg a bégal ñëpp rek. ndaxte euh, xaalis bi ñuy joxe bu doon suñu sago ñëpp la ñu koy jox waaye mënuñoo jox ñëpp euh, dañuy jéem guddi gu jot rek génne ay euh, enveloppe yi leen mën a jëriñ yéen ñiy seetaan tey woote 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 Ali Bandel Nia moom suñu collègue la ñu ngi koy nuyu nee na mu ngi rafetlu teewaayu maître Alioune Badara Cissé tey ci quartier général bi maître Khadija Ali Kane moom it bokk na ci njabootu euh, maître Alioune Badara Cissé moom dafa teel a organiser tey nuit blanche moom borom këram ak doomam pour mën a euh, veiller ndax quartier général bi quartier général am la donc maître Khadija euh, Ali ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak sunu xarit ci ànd ak ñun ci guddi gi allo. allo allo. kooku. Passé Diallo man la Binta Ndoye. naka. Binta Ndoye Silla. Binta fooy wootee Binta. Yoff. naka waa Yoff. ñu ngi si jàmm bu baax. mbaa yaa ngi waaj quartier général Seydina Limamou. bu baax a baax a baax. waaw boobu jar na fee de. lan nelawaguma ba tey. incha allah kon ma libéré la ak deux cent mille très rapidement. waaw loolu dina ma neex de. voilà teranga Sénégal Ramadan may na la deux cent mille. la ilaha illallah passé jërëjëf. mooy sa suukaru koor. ah loolu neex na. fi nga toog léegi laa la koy yónnee ci sa calpe free money. yal na la fay. amiin yaa ko moom bi. yaa ko moom may la gudd fan. amiin amiin dina wax nuyul ma Bouba Ndour sama taalibe Seydina Limamou Laye boobu. mu ngi mu lay dégg mu ngi lay dégg. voilà merci d'avoir appelé donc 200000 yi mooy sa sukkaru Euh, téléspectateurs yi ku nekk 200000 wala 300000 internet yi joxal ma leen ku nekk 100000 ba sama loxo féex Mamadou Ndiaye ak hashtag bi di QG euh, TFM choisir nañu ñaar kay damay jël euh, kenn Twitter kenn Facebook. ci kanam mi ñu doog a jël chaîne YouTube bi. ba doo jël xaalis bi jox leen. 100000 100000 rek nañu nag. waaw ku ne internet dañu xarañ te gaaw. macha allah commencé nañu jël nañu déjà choisir naa Mbeng Mbeng Moro. mi ngi Twitter te xam nañ lu ñuy aussi. donc moom mën na choisir nañ ko je pense nañu gis nekk ci donc joxal ma leen cent mille euh, cent mille francs ah, ak xarit <laughs> ah ñoom de ñii ne xaw ma leen xale yi da ngeen garaaw de mbiru internet Ah. moom xam nga ni doo mën a lépp mën nañ ko vérifier d'accord lépp mën nañ ko vérifier Khady Diop tamit choisir naa ko ndax moom dafa def capture am appel yi mu def yëpp la def capture def screen ko très bien daal di koy posté ci page joxal ma leen euh, euh, dañuy jàll ci euh, diaspora parti bu am solo la ñu ci ànd ak Kebs Thiam ginnaaw mooy seen ambassadrice man souvent excellence laa ko tuddee mm-hmm. ndax taxawaayu ambassadrice la ñu ñëw ci situation wu jeune sénégalais yi. Euh, xale yi euh, nekk un peu partout à travers le monde et ils sont arrivés malheureusement clandestinement. Mhm. Euh, dans beaucoup de pays. Mhm. dëgg la Pape Cheikh ni ko waxee noonu la xam nga fan yële paase rek ñi ngi gis ni xale yi dañoo titré bi premier ministre Espagne bi ñëwee mm. fii d'abord li ko jiitu ministre des affaires étrangères ñëw na fii dajeek ministre des affaires étrangères bu Sénégal ñuy wax nag ni dafa am ay accords yoo xam ne dañ koo signé pour rapatrier sénégalais mhm. ñuy wax nag ni loolu ay accord la yoo xamante ne euh, dañ ko doon ratifier rek ndax bañ ko signé depuis 2005 la mhm. na nag ñi ngi wax ne am na sew-sew bu ci am ndax am na yeneen accord yoo xam ne sërëxal nañ ko ci mhm. euh, xale yi nekk Espagne nag la ñu ciy gën a wax ku mel ne euh, Awa Ndiaye daf ñu ciy jàppale lu baree bari waaye xam naa ne dinañ teg élément am ndax moom mi ngi Tenerife bu xale yi excès moom la ñuy woo léegi léegi nii du ñu nekk rek di dénoncer Pape di wax naan xale yi dañuy génn di dem kenn ku ci nekk foo mën a doon domaine bi nga nekk da ngay xool solution booy mën a def ba dëkk bi euh, mën leen a kiib téye leen fii euh, ci dëkk bi wala boo leen a munta téye it ku jug bay tukki nga dem booy tukki nga jaare ko euh, ci yoon bu légal ndax nag kenn ku ne sa xol yëngu na tooy na ndax boo déggee ni nit jóge na fii bravé li nga xam ne moom moo di maire bi def fa ay bisi bis daj lu nekk am ay coono am métit yàlla sunu borom moo ci teg loxo sax ba mu am ñoo xam ne rëccu nañu ba egg kon ñooñu bu ñu rëccee tey egg ñu ne dañ leen di delloo si dafay xaw a doy waar waar ndax euh, moo tax nag ñu ne nañu dem xool yi ki nga xam ne tam mi ngi liggéey lu am solo muy Cheikh euh, Bamba euh, moom nag dafa yore le village du migrant boo xam ne dafay jéem a teg ay mbir yoo xamante ne day nekk ay activité génératrice de revenu waaye itam jéem a xool xale yi nan lañ leen di sensibiliser ba ñu mën a am beneen alternative bu leen di permettre nga toog sa dëkk tekki sa dëkk ñu dem déglu ko ñëwaat waaw euh, village du migrant moom euh, structure sociale la boo xam ne euh, objectif principal la mooy day lutter contre l'immigration irrégulière ñu gën ko xam ci immigration clandestine mais am na ñetti mission yoo xam c'est une mission essentielle benn bi mooy mission de sensibilisation sur les risques et dangers de l'immigration irrégulière boobu suñuy cible mooy les potentiels candidats à l'immigration irrégulière Euh, beneen mission mooy c'est une mission de d'accompagnement et de réintégration pour les migrants de retour maanaam ñi nga xam ne euh, dal leen di dëpp euh, ñu tukki ñu indi leen moo xam retour volontaire wala rapatriement ñooñu ñun dañuy jéem a liggéey ci li nga xam ne moom mooy seen réintégration sociale économique et psychosociale. beneen mission bi mooy mission de conseil et d'orientation pour les Sénégalais de l'extérieur. bëri na ay ndaw yoo xam ne tey jii suñu réew ñu ngi ñu ngi bitim réew waaye tasaaroo te ci biir tasaaroo bi. Euh, gis ne ne ñu ngi fay dund ay méttit yu yu yu tara tara tar pas plus tard qu'hier rek jot nañ ay appel yoo xam ne ci sous région bi la yoo xam ne tey jii maanaam dañ fay nekk nekk nekkin woo xam ne jaaduwul ñun nag liñ ci am mooy dañuy alerter dañuy alerter état jox ko les informations Euh, bu ñu paree aussi accompagner jeunes yi ngir ñu mën a ñu ngir ñu mën a maanaam maanaam génn ci yooyu jafe-jafe euh, noonu la ñuy def tamit am na ay migrants yoo xam ne dañuy nekk à l'extérieur maanaam dañuy woo ne ñoom dañoo bëgg a ñëw waaye bu ñu ñëwee dañu xool naka la société bi di leen di leen di di leen taxawoo ak di leen jàppee ñu dañuy liggéey ci ñooñu sur leur réintégration psychosociale de même aussi euh, ñi nga xam ne dañ fa nekk à l'extérieur ba pare bëgg a ñëw waaye bu ñu ñëwee dañuy bëgg ay investissement te ñu xam fu ñu koy jaaree ñun dañuy teg ay politique dent maanaam de renforcement yoo xam ne tey jii da leen di conseiller orienté leen ci domaine bi ak domaine bi ngay jaar ba mun a def lii def lii de ce fait que di nga mën a di nga a tekkee ci réew mi waaye suñu mission essentielle bi ci gën a rëy mooy ñu xool naka la ñuy def ba xeex li nga xam ne tey jii moom mooy immigration irrégulière maanaam immigration clandestine ngir ñu stopper li nga xam ne moom mooy phénomène immigration clandestine il nous faut impérativement de développer des politiques structurelles dans le milieu dans le monde rural parce que il faut ñu xam ne l'immigration irrégulière n'est le prolongement de l'exode rural donc nañu développer ay politique d'emploi et d'employabilité des ngir mën a camper yi fi nga xam ne moom mooy dans les terroirs def de telle sorte que jeunes yi dootuñu am bëgg-bëgg ngir dem fenn donc question bi ñu war a poser du tax lu tax gone yi teg ay jéego yoo xam ne maanaam jeunes yi dootuñu am bëgg-bëggu di jéggaan yi di dem feneen ndax lu ñu war a wuti am nañ ko seen réew Sénégal am nañ naaj Sénégal am nañ taw Sénégal am nañ am nañ am nañ ressources humaines am nañ lépp donc tey dara manqué wu ñu am nañ jeunesse mais bu fekkee jeunesse boobu nag maanaam dañoo ils sont animés ils sont animés par benn benn désarroi benn benn benn benn désespoir finalement ngir nga retenir la jafe donc vu que ak conseil bi nga xam ne moom président bi def. démb dégg dem nañ ci teew nañ ci en parce que moom moo ñu invité boppam teew nañ ci te biñ ci demee dégg nañ fa yoo xam ne tamit bu fekkee appliqué nañ ko à la lettre donc mën nañ ci euh, maanaam xaarandi ne ah jeunes yi kat war nañ leen mën a maanaam maanaam def li nga xam ne mooy euh, jàppale leen ci wàllum emploi jàppale leen ci wàllum insertion voilà wax na lu am solo ci euh, xale yi nga xamante ni ñooy faral di dem. sànni mm. dem ba kaaw. comme dëgg la sànni dem ba kaaw Pape Cheikh euh, ni muy euh, ñëwee rek am na lu ñu Awa Ndiaye wax lu am solo moom mm. day nekk sur le plan psychologique lay wax xam nga dégg nga mu naan mm. ñu ci bëri bëgg nañoo ñëwaat mu ngi waxtaan ak ñoom mais le regard de la société one est dans une société boo xamante ne pour ñoom. tukki wala dem moom mooy synonyme de réussit donc boo demee kenn ku ci nekk am na jafe-jafe nga dem rencontrer la réalité du terrain xam ne àdduna fenn neexatul boo waree ñibbi si tamit da ngay xalaat nan lañ lay euh, xoolee mm-hmm. ci kaw loolu tamit euh, dafa nekk tombeek période koor maa ngi lay wax 400 xale yi nga xam ne ñi ngi Tenerife ñii ñi ngi euh, Las Palmas ba ñu déggee ne mi premier ministre bi ñëw na fi am na accord yu ñu signé parce que ci période Covid bi bi ñu jógee fii jël gaal yi dem dañ leen a teeru wax dëgg ak croix rouge mm-hmm. dugal leen ci fi nga xam ne moom mooy hôtel yi parce que période boobu hôtel yi dafa nekkoon loo xamante ne mënoon nañ leen fa dugal mm-hmm. mais bi ñu yégee loolu dañoo daw ñoom bi ñu dawee nag ñu génn parce que ñuy xalaat ne dañ leen di andi donc mu am benn appel boo xam ne rek pour jeexal dañ koy lancé Awa Ndiaye wax na ko dinañ ko tegaat euh, nañu bàyyi di tiital xale yi naan dañ leen di delloosiwaat parce que 400 rek la ñu wax ci euh, li nga xam ne mooy euh, nombre de yi ñu war a indi mais ña fa des te nekk ci situation bu irrégulière métti na période koor yi image yenn yi ngeen di gis mooy ñoom ñoo dem di leen fay fekk di leen jox lu ñu lekk ñu ci bëri ñu ngi fanaan ci mbedd mi wax naa ceeg sànq kenn mu ngi tudd Jili Seck moom tubaab ñoo ko fekk ci mbedd bi mu fay fanaan cinq jours parce que bi mu yëgee ne dañ leen di andi tubaab yi am yërmande boo xamante ne dañ koo dimbali ba nga xam ne dafay bëgg a tukki mais bu ñu waree dem rek dañ naan yeneen nationalité yi la bàyyi ñu circuler ci dëkk bi mais ñoom dañ leen di tere pour ñu circuler euh, mu nekk nag loo xamante ne doy na waar waaye xëy na espoir mun naa juddu ndax kenn ku nekk euh, bëgg nga fexe lu dëj nit ndax nit boo ko naan bul dem wala bul nekk ci situation bu irrégulière day fekk nga am alternative loo xam ne tegal nga ko ko ba ñu mën a toog ndax comme ni mu ko waxee rek am nañu lépp Afrique toutes les ressources naturelles yi nga xam ne war nañ ko am am nañu ko mais jusqu'à présent suñu ndaw yi bëgguñoo toog fii te yaakaar naa ne toog ci sa dëkk ba tukki jot nga dem moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, li war Pape Cheikh. voilà point bu important. Mm-hmm. Euh, dinañ ci ñëwaat xam naa ci kanam. Euh, parce que euh, euh, maître musoon musoon nga nekk sénégalais de la diaspora am na ay at yu bëri yoo xamante ni def nga ko def nga ko bitim réew. est-ce que nekkuma ko ba léegi sax. naa ni boo boo jëlee nangami at yi nga xam ne def nañ ko ci ci France di jàng. Mhm. jël jege fukki at da nga xam ne mottali nañ ko ci Amérique. Mhm. jàng fa itam liggéey fa. Mhm. yàlla may ñu fa ñetti bant yu fa juddoo. macha allah. ñëwee ñu dénk la affaire étrangère xam ni wër àddina rek ngay def. Mhm. boole ci sénégalais de l'extérieur. Mhm. jàpp naa ni bu saxee sa xol. Mhm. nga gis suñu rakk yi su suñu doom yi nañuy dunde bitim réew. doo mos a bëgg a teqalikoo ak ñoom. wallaahi yaafus yóbbuwu leen fa ah. ay jàmbaar fàkk tëdd lañu. ku nekk sa wërsëg. te ñu njëkk ña daan jóge Médina wala Rëbës dañ daan dugg inserville tëdd ci kal bi bu ñu demee ba diggu géej ñu fël ñu den di liggéeyloo ba ba ñu egg Marseille ñu libéré leen dara gënu koon metti léegi nag xale yi dañu am yeneen pexe sama mbokk sunu mbokk mool yi sont devenus des capitaines de navire mhm. dañu maîtriser géej mhm. di topp banc de poisson di ko topp di ko topp ba fël ci dëkk boo xam ne ay nit ñu weex ñoo fa dëkk. Mm-hmm. fii fan la dégguñu seen làkk ñu ne fii mooy Espagne ñu ne waaw kon fii moom nii la yombe ñëw commencé yëpp ay nit di yóbbu. Mm-hmm. di ci am as tuut parce que géej ndox mi am géej amatu fi jën amatu fi boo wàccee tuuti dem Guinée Bissau wala nga wàccu dem Angola ñu téye la nangu sa matériel. Mm-hmm. boo demee Mauritanie gii ñu téye la téye sa matériel toroxal la mm-hmm. ça aussi il faut qu'on le dise donc ma jàpp ne il y une connotation plusieurs connotations ou une connotation de plusieurs éléments yoo xam ni faw ñu taxaw ci mm-hmm. kooku nag njiitu réew mi moo ko mën a jog taxaw lijjanti ko élever la voix ba mu kawe ba ñu xam ni la ñuy jàppee doomu Amérique bind seen passeport ni kii yore passeport bi doomu Amérique la na ngeen ko ormal na ngeen ko respecté fu ngeen ko téye na ngeen informé suñu ambassadeur léegi suñu nit ñi boo ñëwee dañ lay similo sa daal tekki loolu sa ceinture même bu ñu la encadré c'est la même chose waxatuma nag xale boo xam ni ay woy juróom ñoo cotisé teggi nat dugal fii mu dem mais jeexital bi mooy ñoom bu ñu demee du ñu am carte consulaire parce que gëmuñu loolu seen rapport ak état wala ak gouvernement mosul am lu dul dem wuti carte d'identité wut passeport rapidement départ du ñu wut carte consulaire du ñu bokk ci association yi parce que ñoom ak ña fa nekk ñu nañu ñëwee bokkuñu ñi ñii ñu ñoom dañoo jaay seen bakkan dañu fenti requin niñ ñu koy waxee donc bu ñu ñëwee à la limite ils sont dans une irrévérence totale doo xam fay wax ak ñoom la ñuy nangul tubaab bi di am yërmande ñuy ubbi ay église di leen fa fat bu duñ ko nangul daayira yi nga xam ni bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga nag ñoom ñoo leen du mujjee am na je sais pas combien de temps on dispose ñaata temps loon am pour ci point bi mais am na jamono maa ngi woon affaire étrangère ay xaleel ak ay mag nekk dëkk bu tudd Alicante jote fa ak alkaati yi ci booru géej gi jote bu metti dóorante ay kurpeñ sànnante ay chaise j'étais ministre des affaires étrangères maa nga woon Paris par par escale bi ma ko yëgee ma ne Mankeur moo nekkoon suñu ambassadeur foofu ma il faut que j'aille en Espagne ñoo ñu hésité ma ne kon man damay dem ma fekk fa vraiment ñu xarañ xale bu tudd Boubacar Sow qui était chargé d'affaires booba Espagne amuñu ambassadeur bu fa toog mhm. amuñu consul général bu fa toog mhm. ñoom ñëpp ils en affectation ou en état d'être affectés mais ñaari fan lañ fa def fekk fa Boubacar Sow mu doxal fekk fa suñu grand Doudou Guèye yal na ko yàlla yërëm te yéexe ñu ñu taxaw takku mhm. en deux jours ñu dajale xale yi dajale alkaati yi dajale préfet bi mais ñu def fa cérémonie bu doy waar mhm. ñu ñu jàppoon ñu libéré leen ñu amuloon këyit ñu wute leen ay facilitation mhm. mais il faut mu jar ko boobu man awma secrétaire d'état bu may jàppale man kott cundum ñoo dugg fu nekk mais xale yi il faut ñu d'abord mën a téye ñiy jóge dans les zones rural wutale lu leen fa téye balaa ñuy ñëw ndakaaru mënuloo nag tere nit ki bu ñëw ndakaaru nit ki fu ko neex dem mais bu amee la mu bëgg lu jóge dëkkam de la même chose de la même manière boo ko bëggee téye ndakaaru ba du dem bitim réew foog nga am loo teg ci loxoom non pas seulement lu muy xëy di gont mais espoir que lii mu tàmbali dana jur njëriñ ëllëg parce que ñun suñu dëkk yi ñun ñeewuñu kenn mais bu ñu la wax pétrole wax la gaz wax la lii wax la laa te doo ko gis doo ko dégg doo la sax xeeñ. mais xale yi amatuñu espoir. moom lay c' le problème. l' espoir donc je pense que le discours que le président a tenu enfin hier. Mm -hmm. est un discours qui semblera éveiller la jeunesse. Mm -hmm. mais il ne faut pas que ça soit une jeunesse seulement politique. Sénégal ñëpp ko bokk. Mm-hmm. ñi bokk ci parti yi ñi bokk ci opposition bi ak ñi bokkul fenn. Mm-hmm. rek jël xaalis di xëpp. mais wax nit ñi boole ko ci réew mi mu xam ni doomu réew mi la mhm. am respect am considération bañ ko respecter rek parce que am na at am na diplôme am na position déedéet mhm. mhm. da nga koy respecter parce que doomu aadama la parce que bu vot jotee carte bi ngay dugal benn boobu man benn boobu lay dugal yow mi ñu fal benn carte nga dugal pour fal sa bopp donc bis boo toogee nag dangay ngay maasale ñëpp nekk président wu ñëpp am jotu ñëpp. Mhm. xëy suba toog ba gannaaw gee kenn du dog nga toog di leen déglu. Mhm. di wax ak ñoom ça c' était un bel exercice. Mhm. et c' est ce qu'on attend du chef de l' à tout moment. il ne faut pas que ça soit une, politique exceptionnelle. il faut que ça soit permanent. une taxaw. jàkkaarloo ga que les relais ne marchent pas. les relais direction générale ministère machin ils ne sont là en général que pour régler seen affaire u bopp. bu ñu ñëwee tiim président bi lu ñu ko wax lu jëm ci askan wi. Mhm. et je suis content hier qu'ils les aient tous relégués à dans la foule. Mhm. pour prendre les choses à bras le corps. Mhm. et il ne faut pas qu'ils s'en lassent. bu mu ko tàyyi bu mu ko bàyyi. te waru ko def affaire campagne électorale. daf ko def parce que dañu jël ñun. suñu capacité. suñu xel suñu alal suñu mën-mën suñu lépp dénk ko ko. ne ko dañu bëgg bu ñuy nelaw nga wattuñu.

qui pour moi est exceptionnel. voilà je pense que c'est une bonne occasion pour ñu tàmbali waxtaan bi ah merci Kebs en tout cas ci point euh, bi c'est une bonne occasion Ablaye euh, euh Pape Marie-Louise voilà ñun fi nekk ñëpp c'est une bonne occasion pour ñu tàmbali waxtaan bi waxtaan tuuti doog a jël pause publicité et tout ça voilà. parce que damay may tuuti une brèche ci parce que man yàlla dafa def dama am occasion def reportage sur ça en Euh, Italie wala dem Espagne suñ leen raconté li ñu dund dafa day waar am na ñoo xam ne dañ ciy ñibbisee sax ba ñu ba ñu leen delloowaatee Sénégal dañ fa jaaree dof parce que la ne ba muy ba ñuy dem ca gaal bi amul woon jigéen amul woon xale mais bañ nekkee ba ci biir gaal da ngay dégg ay xale yu tàccu ay jigéen ñuy tàccu ay xale yu jooy donc dafa day waar voilà dañuy jaay seen lépp am na ñoo xamante ne dañuy dox ci désert bi lañuy jaaree dem ba Libi ñu bëri dee nañ Libi ñu bëri exploité nañ leen Libye jóg frontière Libye parce que trafiquants yi ñu foofu dañ lay laaj xaalis bu dul jeex des fois dañ lay exploité liggéey loolu liggéey bu dul jeex après yow tu fais tout pour arriver en Italie wala Espagne yow soo demee ba foofu ñu ne la tey dañ lay delloo si dafay xaw a day waar et je pense qu'il faut une politique boo xamante ne dina leen mën a permettre tey suñ leen delloowul wala suñ leen delloo see sax mu am loo xam ne leen dañ ci dañ koy teg ci seen ci seen ci seen ci seen i loxo wala ñu bàyyi leen fa parce que am na koo xamante ne lan la ma wax jaayee 10 euros huit euros yi dama koy denc deux euros yi laay lekk damay mhm. buuju loolu la ma doon wax man damay mhm. buuju tubaab bi su sànnee ma fóot ba mu set ma sol mhm. donc dafa xaw metti lu métti la ñuy daj foofu dañuy dem sa bay wax ay Gambie la ñuy jógee ils ont été torturés seen dëkk voilà sénégalais pour mën a toog ci dëkk ba donc ah. ku dem ba foofu nañ la bàyyi foofu nga liggéey am seen condition ñu amélioré ñu am ay ay résidence et tout pour mën a liggéey daal parce que ku jógee Sénégal dem ba dëkk liggéey moo la fa yóbbu parce que Sénégal amul liggéey loolu rek laa ci bëggoon waaw vas-y ci camp yi nga xam ne moom lañ leen dañ campement yi la bañ leen jëlee ci hôtel yi foofu lañ leen yóbbu mooy campement yi nga doon gis noonu waaw fa lañ leen yóbbu mhm. Mhm. Euh, conditions yi fa nekkoon ak yi nekk actuellement bokkatul euh, covid 19 bi def na ba nga xamante ne ñoom taluñu sax étranger yi pour lijjanti leen la dernière fois damay jot message yu benn jeune bi nga xamante ne Maroc la nekk nee na instant bi amatul liggéey amatul kër bu mu dëkk cest à day toltolaan kër bu mu dëkk tey suba fële lay dëkk lu mu lekk sax daf koy të donc bëggoon na billet pour ñibbi si ñu lijjanti ko utal ko ko finalement il se dit que mënul ñibbi si toog di xool ay waa këram noonu mais ban condition moom moo gën a metti entre nekk Sénégal am looy dundee am fooy fanaan am looy lekk ak looy naan ak nekk en Europe wala beneen dëkk boo xamante ne du sa dëkk ci Covid bi nga xamante ne àdduna bi yëpp ñoo nekk en crise donc il faut essayer de peser le pour et le contre aussi sa dire que juste dem naa bëgguma demaat mais ci yan condition ngay dund foofu. moo tax ma ne même sax ñu am noonu nu ñu leen di orienté waatee. Mhm. mu am benn accompagnement boo xamante ne dañ koy def parce que choc lay nekk bijou parce que tu peux pas traverser la mer nga ñëwaat ñu indiwaat la am na ñoo xam dañuy dof. am na ñoo xam dañ fay jaaree dof carrément ils perdent la raison donc il faut une politique d' accompagnement parce que ku dem ba foofu nag espoir la ñu indiwaat la ngay waat day xaw a métti voilà voilà moo tax il faut encourager yi fa nekk am na ci ñoo xam ni dañuy xëy euh, di xool seen moroomu sénégalais bu ñu mën a jàppale. Mhm. Mhm. voilà man j'ai vécu l'expérience ak euh, suma benn xarit bu tudd Nafi Diagne Nafi elle est à Paris euh, mais il lui arrive le soir mu dem ci am na foo xam ni day benn camp la bu am ay sénégalais mais dina ci jéem xool naka lay dimbalee ñooñu donc y a beaucoup de sénégalais yu am situation yu baax. Euh, ca bitim réew donc tous les jours ñu ngi jéem góorgóorlu pour jàppale seen moroomu sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi dund ay jafe-jafe en tout cas merci Kebs euh, ci point bi nga indi euh, à minuit 46 Ablaye Pape Djibril maa ngi wax sànq ni c'est le moment ñu tàmbali waxtaan bi ak maître Alioune Badara si benn ñaar ba ñetti question ñu waxtaan ci mm-hmm. doog a jël pause pour publicité yi mën a jàll mm-hmm. Ablaye ayca ayca droit d'aînesse <laughs> merci beaucoup dafa am ñaar yoo xam ne mën nañ ko wax parce que li tax ñuy wax ci immigration bu yemoon ci choix wu ñi nga xam ne dañuy am choix wu dem am choix wu ñibbisi kon xam nga duñ ko wax ndax nit ñaa ngi dem ak a ñëw mhm. plateau bi am na fi ñoo xam ne dem nañu dellu si mhm. maître moo fi jiitu mhm. dem na dellu si ci choix wu boppam maître américain la sax d'ailleurs voilà <laughs> mais xam nga tey demu gaal yi uh-huh. daf ñu yéem mais gis nga am na loo xam ne gën naa yéem encore te boo waroon nañ cee taxaw à l'époque xale jël na fi bi aéroport di nekk fii ci Léopold Sédar Senghor bu na wàdd 99 ça ne nous rajeunit pas dugg ci train d'atterrissage u avion maanaam pneu yi fi muy lemoo mu dugg ci def Dakar Lyon il est arrivé vivant dakaar Lyon c'est-à-dire kuy dugg ci train d'atterrissage avion amoo benn xalaat ci température bi nekk en altitude. ah c'est ce que mais yàlla moo ko suturaal miracle mu egg vivant en 99. ñu delloosi ko en dépit de loolu ñu delloosi ko. Mm-hmm. il a retenté l'expérience. Mm-hmm. mais vol bi mu doon jël xamuloon sax fu mu doon dem. tëb na miiru aéroport Léopold Sédar Senghor gis avion buy dem mu yaakaar ni France lay demaat. avion boobu Abidjan la doon dem. mais muccul ci boobu. te pourtant rëcc na ci dakaar euh, Dakar Lyon mais rëccul ci dakaar Abidjan loolu dafa lay won ni c'est-à-dire nit ñi xër bi ñu am ci dem parce que amuñu pexe. amuñu choix di leen wax ni rek France dafa metti wala Espagne dafa metti mënuñoo gis loolu. te xam na loolu yàgg na fi c'est-à-dire bëgg gëm loo ni. non fële dafa metti fii moo gën a yomb loolu nit ki mënu koo gis moo tax politique yi ñu war a teg du politique gu comme li ñu mujjee man loolu buggoon naa ci am xalaatu maître tey nga xam ni soxla nañu ndaw réew mi parce que nee nañu ci relance la ñu nekk ba maître vraiment dafa am ñu taxaw ñu ne waru waruñoo doon mërirandoo après le Covid parce que amul benn pays boo xam ne créé na logiciel bu muy génnee ci Covid. wala bu muy relancer économie kon ñun amuñu pour toppandoor li nga xam ne moo xew ci jamono ku nekk ni relance parce que ñun lancé guñu woon nit ñi kon tey rupture moom la ñu war a def par rapport ak na nga xam ne noonu la ñu institution internationale di moolalee suñuy politique kon tey ñu def rupture après le Covid mais li fi jógee fan yi gis nañ fi premier ministre Espagne ñëw fi on peut le comme ça presque def son marché parmi la jeunesse sénégalaise ci ñu tànnal ko suñuy ndaw pour ñu dem liggéeyi Espagne c'est-à-dire mettre symbole boobu man est-ce que dama sama laaj mooy est-ce que loolu war na doon choix wu gouvernement ba léegi ci sa moroomu gouvernement ñëw pour ne la jox ma say ndaw ñëw liggéeyal ma alors que ñun ci moment boobu nee nañu tey dañuy développer par l'agriculture la ñuy développer réew yi te xëy na ñi gën a valide ñooy dem te ñooñu lañu fi gën a soxla lan moo tax ñooñu convaincre ñu leen ci ne lañuy wuti foofu xëy na mën nañ koo gëm fi am ko wala boog dañoo yaakaar ni ñun li ñuy woote ci def ko ci agriculture bi ak ci yeneen yi xëy na dañ koy wax nii rek mais du sotti. Euh, merci Abdoulaye gis nga réew soo ko yoree walla nga bokk ci ñi ci yor ay pàcc da ngay gëm sa bopp gëm réew mi nga yor xam ni du réew mu ndaw. xam ni réew la boo xam ni dafa am passé dafa am histoire yow danga nekk danga jël ndonow réew moo xam ni ay jàmbaaru fàkk tëdd ñoo ko yoroon sa nit sa der gënal la nit feneen fu mënti doon la ngay joxe ji feneen ba noppi di jéggaani leneen mais xale yaa ngi taxaw xale yi nag am nañu doole ay xale lañu bëgg nañu am nañu jom mais am lu luñ def te immigration bi ëpp doole nekkul fii ak France ak Espagne c'est en Afrique c'est sud sud mais mooy mën jóge fi réew mii dem ci réew yu ñu wër jàpp ne foofoo ëpp teraanga mais da ngay toll foo xam ni loo am jël wolof dafa naan këru noon du tuuti ndax ku mer fa nga jëm mer gàddu bi ngay xuloo fii lal bu xat bi am matelas yi et cetera mais boo demee feneen loo am jël l'essentiel mooy doo tëdd foo xam ni dañu naan kii coupé courant ñëw na wala mburu mi jeex na xale yaa ngi jàngi amuñu amuñu ndekki nga di ko dégg am vingt cinq ans trente te doo ko mën a faj ngay nelaw nelaw lu di dégg ay kàddu yu ñu lay jël dee moo la koy gënal donc waajur yi am nañ ci lu luñ ci dox école de formation yi néew na fi même s'il y a une floraison d'écoles privées mais il faut qu'on qu'on n'imite pas ce que fait la France jël ay xaleel di leen jàngal juróom ñe fukki at ak ñett ci enseignement primaire ak secondaire pour ensuite les reverser à l'université ou dans les écoles dans les dans les dans les écoles dans les universités ñu def fa ñeent wala juróom benn at ba pare du ñu mën dara mais loolu yàq la yàq la bi may jàngale Angleterre mais secondaire bi mais ñeenti at nga fay def ak genn wàll te booy dugg si xam nga déjà yow lan nga bëgg jàng luñ la ci dolli leneen ah. soo paree rek dem nga sa yoon twelfth grade boo eggee daanaka da ngay am niveau universitaire mais fii dañ lay buuree buuree buuree jël sa weccu te way jur yi te barewul ngay paas di dem di yendu di añ internat amatul euh, réduction ci bis yooyu xamatuma ndax mi ngi am ba léegi wala déet bàjjen yi nga daan yendu wala sa kër nijaay comme sama classe gi ñu jox la añ booy dem ñu may la paas amatul nit ñi mënatuñu ko foo ñëw ñaari yoon ñu wax la loo xam ni doo ñëwati te ngay xale bu tuuti mu briser sa élan mais c'est compliqué donc tout ça c'est un ensemble. mais pourquoi les réformes ne n'arrivent pas ndax li ngay wax ni yëpp réforme moom moo koy lal euh, système bu ñu hérité la aussi mu wane ay limitam ñu def fi ay réformes ay assises yu bari def ay réformes. def ko ci ay documents mais la Mussolini waxoon ñu ne ko sa programme lan la mu ne soxla soxlawuma programme ñëpp am nañ programme. dëgg li ñu li ñu manqué rek mooy des hommes et des femmes de volonté est-ce que loolu mooy sunu problème aujourd'hui Pape moi tu sais je suis un admirateur de toi et de tes analyses c'est comme si tu lis dans ma tête et tu transformes en courage ce que je n'ai pas osé dire et ça c'est important volonté politique fondamentale moo fi manqué toog ba noppi nag foog ni toog bi dootoo fi jóge et que par force lu la neex kese ngay demee sa xel ngay demee wut ñoo xam ni dañu lay tàccu yaa fi gën a rafet yaa fi gën a rafet dàll yaa fi gën yaa fi gën ba nga mujj gëm loolu fatte ña nga xam ni ñoo la faloon je j'ai je suis un ancien compagnon du président de la République mm que de fois je l'ai entendu dire boo fàttee la la fal foo lekku yomb la ça c'est c'est c'est de sa bouche une litanie permanente mais j'ai l'impression qu'il a oublié ñi nga xam ni ñoo ko faloon pas les personnes individuellement prises ça n'a pas d'importance mais cette vague de jeunes qui a remplacé un énorme monument de la politique sénégalaise et qu'il a installé il avait toute la légitimité pour mettre un coup de pied dans la fourmilière faire bouger les choses et ne rendre compte à personne sauf à sa conscience parce que amoon na cahier des charges en venant Maintenant, il semble l'avoir compris. Est-ce que ce n'est pas trop tard Je ne le souhaite pas. Il ne faut pas que ça soit de la politique. Il faut vraiment que ça change. li li nga euh, wax léegi am na des pays de notre continent qui nous charrient tout le temps. Mhm. nee na ñoom duñ fi ne def ay études yu jeex du xaaj ils viennent au Sénégal ils demandent à quelqu'un on ouvre un tiroir ñu benn tiroir jël étude bu dol nii jox ko mu dem appliquer. on ne met absolument rien en œuvre. Et nous avons les meilleurs agents au monde, les meilleurs fonctionnaires du, au monde. Mais on ne les utilise pas. On préfère venir des gens d'ailleurs, des copains, qui n'ont aucune expérience de la chose publique. On les met en place et les fonctionnaires, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez Ils croisent les bras, ils sont toujours à l'heure et ils partent à l'heure. Mais en définitive, ils ne servent pas à grand-chose. et ceux qui on les a ñi nga xam ñoom la ñu indi pour ñu wutu leen amuñu njëriñ parce que xamuñu da ngay toog rek fàttaliku eh mais yow amoon naa copain bu nekkoon Saint-Étienne ñoo bokkoon classe xaaral ma mu ñëw mais dis donc. non c'est pas comme ça. ça ne se fait pas comme ça. et il faut avoir le courage de le dire. il faut avoir le courage de le dire. Mm-hmm. et que le président ait le courage de l'entendre. Mm-hmm. et qu'il ait le courage de la mise en œuvre. mais maître soo parcourir. Mm. conseil des ministres yu mujj yi. dafa mel ni li ngay wax ni chaque conseil des ministres président de la dana ko rappeler dana rappeler ni joxe naa ay directive bëgg naa mu bar. le président réitère. réitère <laughs> rappel le président instruit mën nañ ci fàttali ñaar ñett yi fi jaar mais fàttali yooyu finalement. débat bi c'est ouvert presque on la l'attend même plus. te démb gis nga ko ci conseil présidentiel mu ne tolérance pour. le respect des directive présidentielles pour ñu koy appliquer dafa dellu si kon ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo war a appliquer directives présidentielles yi lan moo tax boobu ba léegi tamit bu waxee du ñu jëfee mais aussi. Abdoulaye dama lay dama lay dama lay renforcer ci li nga wax parce que am naa chance de maa ngi woon jam ñaajo hmm. te le document bi ñu présenté démb dama leen di wax ne leen document bi ñu def en 2013 présenté ko en 2014 King Fahd Palace. scientifiquement moo gën a dëgër c'était sur l'emploi des jeunes King Fahd sur la direction du de la confédération nationale des, des employés du Sénégal ñoom ñoo yoroon le comité scientifique 92 ateliers lañ def à travers le pays comité scientifique bien fourni ñu boole ci ñëpp bu mu nekkoon un comité inclusif le document la démb damaa jàpp ne le président avait l'impression que les effets escomptés n'ont pas été au rendez-vous moo tax identifier les goulots d'étranglement yooyu identifier obstacles yi mais njàqare bi jàpp naa ne moom moo ko gën a am démb président parce que ci biir rencontre boobu nga xamante ni à bâton rompu la gis nañ muy apprendre des choses yoo xamante ni normalement waru ko woon ignorer bu affaire yi fluide doon na su affaire yi fluide doon alors lan moo tax li li li Abdoulaye wax lan moo tax les informations yi nga xamante ni moo war a parvenir ci moom ndax da dul egg wala moom moo dul am courage politique bu jël yenn décision yi. moom en tant que médiateur. est-ce que moom compte rendu yu muy jox exécutif bi. est-ce que ñoom dinañ ci tenir en compte est-ce que ci compte rendu boobu est-ce que yow dëxëñ nga ci loo xamante ne ndaw ñi ñoom ñoo ko kalaame jëm ci institution yi yi nekk ci administration publique yor financement yi yow kalaame yooyu kalaame yooyu nga jot leen. war a def compte rendu mu egg ci exécutif bi ce que ñoom tamit dinañ jël en compte yow li nga leen di wax en tant que médiateur. d'accord excellent excellent je vous dis comment ça se passe en conseil des ministres il y la communication du président de la République la communication des ministres certains ministres aujourd'hui c'est tout le monde qui communique parce que ñëpp ils veulent se faire voir ou entendre du président alors qu'à l'époque c'était le président de la République le premier ministre les ministres de souveraineté à la limite, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'Intérieur est muet, le ministre des Forces armées est muet. Donc, ils ont autre chose à régler. Et on clôt le débat, sauf mu am débat général. Toutes les décisions issues du Conseil sont prises dans un par le secrétaire général du gouvernement. C'était le cas à l'époque, jusque récemment. et ces relevés du conseil, des décisions du Conseil des ministres font l'objet d'un courrier adressé aux ministres concernés. Et il doit faire l'objet de suivi, d'abord au niveau des réunions de coordination que le secteur général du gouvernement dirige et où sont présents ou les secrétaires généraux des ministères ou les directeurs de cabinet des ministères. Et le rappel leur est fait soit par le président de la République, soit par le Premier ministre. Mais il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de rappel. Les décisions que l'on a prises en 2004, plus personne ne s'en souvient maintenant, alors que l'État est une continuité. Donc, aujourd'hui, c'est le secrétaire général de la présidence, excellent fonctionnaire, qui prend, qui prend ces, ces décisions-là, qui les rappelle. Mais il faut que celui qui prend les décisions, qui informe les ministres, ait pouvoir de rappel et pouvoir de sanction. Mais ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont à tu et à toi avec l'autorité qui a capacité de les sanctionner et de les entendre. Moi, je trouve qu'il y a quand même un laxisme qu'on ne doit pas vivre dans un Sénégal que l'on veut émergent. Nous, on ne reçoit pas tout le monde, c'est vrai. nous avons des rapports. wolof wolof am maa ngi jégalu maa ngi rek laggi rek naam xam nañu taalibe laa sax moom mooy sama sëriñ waaye laggi rek laggi rek ñun rapport yi def def. daañu ko jox président xamuñu ban usage la cay def. xam nga la ñuy wax mooy. président kenn du ko rappeler kenn du yeesal ay kii ci moom. kenn du et cetera donc bu ñu paree pour ñu déposer le rapport ba moom mu recevoir ko déjà c'est la croix. et la bannière. kon hmm. jafe-jafe am na. ma ne rapport yi nga xam ne ñoo ngi koy def te jébbal war ko ko jébbal. Hmm. pour ñu mën jot ci moom ba jëbbal ko ko ba mu ànd ak ñi ma liggéeyal moom mu toog ak premier ministre am à l'époque ou son directeur de cabinet nangu ko ñu jokkale ko moom ay kàddu mu jàng ko gis ne am na ay recommandation yooyu sooke na et li ma ci jaaxal mooy en 2004 hmm. moom. premier ministre la am na circulaire de décembre 2004 boo xam ni moo ko jël mhm. di wax ministre yi ne médiateur bu leen saisiré da ngeen tontu mënu leen toog fii di ko ignorer et cetera un circulaire bu am maanaa bu am solo waaye fa la lépp joge tàbbi géej donc restaurer la fonction ou la mission du médiateur de la République mhm. même s'il faut remou remouler tout ça l'appeler autrement trouver quelqu'un qui puisse avoir l'assise, les moyens, l'écoute du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, un, une médiature médiateur institutionnalisé ou constitutionnalisé, ça c'est extrêmement important. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une revendication au niveau de toutes les organisations internationales yoo xam dañuy regrouper médiateurs yi naan balaa nga ciy bokk il faut que ci constitution sa réew ñu gis ci yow boole nañ la foofu hmm. mais yàggul ñu ngi fàttali yow loi rek moo la fi teg si venez du Ferlo. Mhm. j'ai dénoncé ce que j'ai vu de tais-toi loi rek moo la fi teg mais na loi ñëw dindi ko. donc jàmbaarloo yooyu mooy yoo xam ne mën na ñàkk. Mhm. bu ku nekk doxalee euh, rôle am te yem ci place am. mais aujourd'hui nous avons trois rapports qui sont en, en souffrance dans no bureaux et qui attendent d'être portés à la connaissance du président de la République. Nous avons écrit, nous avons communiqué au secrétaire général de la présidence, au directeur cabinet du chef de l'État, au chef de l'État, on attend qu'il nous le dise parce que dans quatre mois le médiateur day pare mission te waru fa bàyyi ay ay dossiers yoo xam ni ka koy wutu mooy mooy ñëw te du xam fu mu fu mu fu mu ci jógee xam nga ni am na lu fi jaar ci ay institution de contrôle yu ah. toog ñeenti at déposé wu ñu rapport wala recevoir uñu leen ah. pour ñu remettre seen rapport président donc du fi guléet li ngay wax moom la ñu bëggul dégg ak lan ngay yaakaar ni moo tax mhm. bëgguñoo dégg bu fekkee ni njariñu réew mi la mhm. xam nga njiit dafa metti mhm. ànd ak njiit itam dafa metti te léeg-léeg li lay metti yëpp du loo xam ni mën nga ko wax bu fekkoon di nga jot ci noppam moom dina dégg lu xóor saa su ne waaw parce maître yow mënuloo gisee ak président ci saay bu la soobee. non waxuma loolu. ci daay fal ndànk Ablaye. Mhm. dama ne. Mhm. bu fekkoon am naa noppam. Mhm. jot ci noppam. bés bu nekk dana dégg loo xam ni maanaam du ko neex waaye njëriñam lay doon ndax day nekk en défassage loolu day safaanoo ak li nga xam ni moom la yàgg di dégg ci ñi koy xalamal ba nga xam ni yow soo waree jege di wax leneen ñoo ñoon lan sawaay li ngay wax ñun bëgguñu ko dégg. dama nga toog ne ba ci kanam mais xam nga man moom ñoo maasandoo bokk réew mi. su fekkee bëgg naa mu dégg ma moom day yomb lool lool lool su ñëwul ma wax ko mën naa jël yi yu ndaw yi wax ko mu dégg ma je suis assez pour mu faire entendre te yàlla dogal na ñun taal bi suñ lañu la ñuy am yëpp ci sëñ bi lay joge te amuñu lu ñu ragal te jàpp naa ni loole moo nekk ci taalibe cheikh yi nekk ci waa Ndiassane nekk ci waa limaam waa kër Limaamu Laay moo nekk ci ñëpp mais dañuy teg suñu intérêt nag léeg dañ koy jiital ba dañuy tënku ci wax boo waxee rek ñu xam ne am na loo denc parce que am na looy ragal am na looy sóoraale non sóoraale wuñu dara mais doo fekk ni léeg-léeg sa njiit day am day am dosage de worma boo xam ni day dox sa diggante ak moom da ñaan nag loolu bañ a dog saa yoo ko xoolee naw ko saa yoo wax moom am respect bu dox sa diggante ak moom mais respect boobu dafay dem ba mu gi nag doo xam lu mu niru moo indi li fi xale yi defoon y a quelque temps ku leen taxawal du taxaw ku leen di bàyyil yàq bi nga gën a yàq boole ci ay kàddu yu doy waar juge yeeg ministre yeeg ñëpp buddee ko génn dëkk bi maître idéal bi nga doon poursuivre yow ak le président Macky Sall le candidat déjà ba ñëw en 2012 idéal boobu ngeen bokkoon di ko tëgg di ko nas di ko dox di ko wax ndax loolu nga jàpp ne moom la ñuy défendre ba tey wala ndax rupture am na su amee kañ nga ko sentir. alo moi je pense que tàmbali nañu doon ko dox vraiment parce que dama gëm ne moom naam boo ko xoolee da ngay foog ni fànn Résidence le juddoo wala Almadies c'est une âme de paysan. Mhm. mais dans un corps de bourgeois dans un corps de citadin. donc maa ngi koy wax kenn démb ku ma doon ku ma doon gisanteel ma ne ko am nañu président bu baax ci jikko ak ci caractère mais dafa yomb influencé nit nag bu fekkee da nga nekk benn nopp ba pare yomb influencé wax ak yow du yomb bu fekkee su ma waxee ak yow léegi su ma génnee Pape Cheikh ñëw la ñu waxtaan yëpp nga tuuse ko ne ah ba c'est nangam nangam nangam nangam amatuma capacité wu ëllëg ñu ni ma Pape Djibril daf la soxla ma ñëw di la wuy si du ma ko def parce que nag maa moom sama bopp et ça c'est important maintenant ña nga xam ne ñooy ànd ak yow di liggéey ñooñu xamuñu la xamuñu sa histoire xamuñu sa jaar-jaar mënuñu la jàppale ci na nga bëgg xamuñu engagement yi ils n'ont jamais fait le tout du Sénégal et refait le tout de ce pays avec toi Ils non jamais connu Cheikh Mbacké Ndiaye qui a tous les relevés de toutes les réclamations des populations du Sénégal qui en a fait un recueil énorme sur la base duquel on s'était ci la ñu sukkandiku woon pour defar suñu programme parce que fu ne xam nañu la fa am. ñaata lampe fa am tali bu ñu goudronné tali bu faq tali bu mag mais dañ ko xam par cœur du bout des doigts. 3033 villages. barke Sëñ Bamba lépp lañ ko xam. mais bu fekkee nag ña nga xam ni léegi ñoo ñëw pour jàppale la defu leen dafa leen yu bari ci yooyu te xale yaa ngi fi yoon ah. dañu jeunes nii rek mais ay ponkal lañu. Mhm. bu dul woon ñoom du ñu dem fenn. jaay nañu seen bakkan joxe nañu seen kéem kattan bon c'est vrai ils sont un peu ignorés ils sont un peu relégués et cetera il y a d'autres qui ont repris leur place mais je leur dis de ne pas se décourager ne baissez pas les bras parce que réew mi yéen a ko moom. li ngeen fi xam keneen xamu ko fi li ngeen ci mën keneen mënu ko ci te ñun dañuy jàll on va vous passer la main ñu bëgg ko ak ñu bañ ko réew mi ci seen loxo lay mujjee donc apprenez à à vous approcher de ce que vous critiquez souvent mais sachez que demain et demain c'est pas longtemps parfois même demain c'est maintenant où on doit nécessairement vous passer la main ma APR mooy parce que man je dis que yow yaay géniteur APR est-ce que yaakaaroon ne tey président waroon na la gën a jox bopp nopp war la gën a déglu war la gën a déglu say conseil ak lan moo des sa relation ak président de la République actuellement. ah très bien am na lu ñu ci mën wax waaye am na yoo xam ne moom. du waxu télé t'es ma <laughs> sœur du waxu pénc t'es ma sœur t'es <laughs> ta fille t'es ma fille t'es l'éminente t'es l'épouse d'un éminent confrère voilà. en plus c'est mon avocat Bamba je par le prénom mais également par sa science xarañam euh, et tout ça je je l'aime énormément waaye nag jàpp naa ni nguur moom dafa am ay impératif mhm. nekkul ni ànd ngeen créer un instrument de conquête du pouvoir ànd ngeen définir des stratégies de conquête du pouvoir ànd ngeen dugg ci àll bi euh, développer un programme et le vendre aux populations bu ñu ko jëlee rek dafa la war di di jege non lu demee noonu parce que au début ñaar ngeen oui je dis souvent au début on était zéro plus mais après il y a eu énormément de capacités qui sont venues nous rejoindre mm-hmm. et qui ne sont pas des moindres itam nekkuñu ay yaafus dañu ko wuti deewoo ko waaye nag au finish c'est une personne qui est du lot avec un pourcentage important issu des urnes mhm. même s'il la fallu s'y prendre à deux reprises kon nag bu xasee génn moom moomu boppam la da nga koy bàyyi ak xelam ak sagoom mu xool ñan ñoo ko mën a jàppale ci liggéey bi jamono bokk nañ ci ñooñu ab diir juróom-benn weer bokkatuñu ci ñooñu terewul ñu mettre suñu bopp à la disposition du Sénégal parce que c'est ce pays que nous avons en partage. loolu sax mooy question ba ma la bëggoon a posé waat parce que sept mois nga def euh, affaire étrangère solaat robe bi lan moo xewoon. lan moo xew. waaw ah mais dañ ma jële ci gouvernement bi. te yàlla dogal man am naa métier. ma soo sama robe rek dem tribunal. <laughs> te ba nga jëlee ci gouvernement bi euh, maître dégguñu sa réaction boobu ba léegi dégguñu sa réaction. lan moo ko waral ak itam liñ la jël dugal la ci médiature est-ce que dañu jàpp ne euh, maître Cissé dafa nekk koo xamante ne euh, dafa sañ waxam ñu dugal ko ci médiature tënku ko juróom benn at nga xamante ne du yëngu. dama damay wax ne ka nga xam ni moo la fal dénk la ab liggéey bu demee ba gis ne doyatuloo ko ci liggéey boobu bu ko neexee teggi la xam nga laataa ñu may jox affaire étrangères am na yeneen département yu ñu ma proposé. yenn yi joxe naa ci sama xalaat mais ya ca des dama koy nangu rek ba fu mu ba fu mu jàpp ni moom moo ko gënal dem naa ba ni ko boo bëggoon jardine sax boo ma ko santee ma defal la ko. parce que jaayante bi ñu defoon du pour moom pour réew mi la. te gis naa ci moom Mamadou Ibra Kane waxoon laaj na ma fii sur RFM. Mhm. ni ma mais saa waay pourquoi yow dama loon nekk candidat et puis mhm. ngay topp Macky Sall muy mën ko mais. parce que moom moo ñu ëpp passé politique moo ñu ëpp expérience administrative. Mhm. même si sensiblement on a le même âge maa ko mag tuuti mais je pense que fa mu jaar ak ay jaar-jaaram convaincre na képp koo xam ni dafa bokk ak moom génération donc je n'ai aucun complexe alors aucun alors pour jàppale ko deewoo xataraayu mhm. défendre ko xotti sama tànk tubéy jaay sama bakkan ba moom la ñu namm ci moom ñun mu mën ko matale et on y arrivé ngir si kan ci suñu borom première fois un parti à peine constitué dem élection présidentielle mais jële fi man su may xalaat Ablaye Wade la ñu fi jële sax damay tiit <laughs> parce que c'est un monument c'est un baobab mm. indéracinable yàgg moom la woon avant avant président Macky Sall yàgg maître Abdoulaye Wade. waaw waaw loolu souvent dañu koy fàtte. soo bëggee ñu xuus ci ci kanam. waaw <laughs> waaw allez-y. <laughs> ah ma pareeg Adja. ma pareeg Adja ma pareeg Adja. Uh-huh. Hmm. donc pourquoi mu jóge fa. balaa ñuy dem ci pourquoi mu jële ma fa loolu moom ci moom lañ koy laaj moo koy tontu. ma may ma may ma moom moo ko mën tontu parce que moom moo ko xam. Hmm. lu tax réagir mais pourquoi may réagir. xam nga daal nañ fi gis mi ni duñu fi jëlee ñuy taal ay pneu di taal ay drapeau di wax dañuy xaru mais pourquoi. diir bee gàtt kat juróom-ñaari weer. waaw mais loolu la gis. Mhm. ça n'a absolument rien changé dans mon vécu dans mon mental dans mon moral et voilà dans ce dans la personne que je suis devenue. macha allah maintenant pourquoi aussitôt madame Diop sama robe parce que nag encore une fois comme je ah disais tout à l'heure à ma fille euh, parce que j'ai un métier qui est un métier extrêmement élégant un métier admirable. que j'ai toujours voulu exercer et que j'exerce avec bonheur. Mmh. avec bonheur de cette relation avec le président tontu woo ci question boobu. lequel. Euh, la relation avec le président de la République que reste-t-il de cette relation-là? alors j'ai eu de mon beau-frère tout à l'heure une très belle expression. Mmh. qui rappelle un peu ce qu'on avait demandé au premier ministre français à savoir quelles étaient ses relations avec le président de la République mm. euh, Macron. Il lui a dit c'est une relation libre et loyale. libre et loyal. Mm-hmm. Aller à la médiature, ça ne m'a pas empêché de dire ce que je veux. Mm-hmm. Je disais lors de mon en fonction d'ailleurs, ba naan ni ma dénk médiature gëm naa ni liiruñu organisation médiateur de la République. Mm. xamuñu ses capacités. xamuñu ne kii kenn mënu ko jàpp. kii kenn mënu ko interroger. ci wàllu liggéeyam. kii balaa nga koy jëlee fi mu nekk il faut que président Cour suprême. Euh, à l'époque c'était le conseil d'État également ñoom ñëpp conseil constitutionnel constaté ne waa ji matatul pour def liggéey bi wopp na ba amatul njëriñ mhm. ni ñuy jëlee président ci métier sauf la haute trahison moom la ñu fa jëlee médiature mhm. donc mais des gars ouais, on va l'enlever je dis vraiment franchement <laughs> mais la gën a yées mooy nga dem ba mu dese la mu dese la attaque lu topp ñu wut ñu toftal la ku la remplacer mais c'est extraordinaire alors que franchement quand j'ai lu le texte qui organise la médiature je me suis dit mais ñii xamuñu médiature mooy lan à l'époque on disait ah ben c'est cadavre politique et franchement est-ce que je me suis tué est parce que tamit Sénégal dañoo tàmm médiateur de la République daanaka mën na fi nekk mandaam ba mu jeex. parce que tey boo fi toogee en tant que médiateur de la République ñu bëri tey bu ñu waxee médiateur de la République dañuy yaakaar ne koo xamante ne dafa nekk sous le sceau la réserve. dëkk bi lu mu yëngu-yëngu am na loo xamante ne du ko ci wax wala du ko ci àddu yow na ñu gis yow nga ñëw daanaka Sénégal wër nga ko dem nga diaspora dam nga fu nekk est-ce que nekkul ne li ñu mayoon médiateurs yi yow dañ la ko mayut wala yow da jël loo xamante ne kenn mayu la ko woon. c'est c'est c'est c'est le même texte. il y am ay sañ-sañ yoo xam ni loi bi moo ko may médiateur. Mm-hmm. par exemple tous les dossiers qui résultent de l'autosaisine mooy sa sañ ci lu luñ la bindul ci lu ñu la téléphoné wul ci ñu la yónneewul email nga jog dem dox ci. kooku moom def naa ci usage vraiment important ça a permis la médiature wutal ko ay ay racines ci réew mi parce que booy toog sa bureau rek di xaar doo dem fen parce que dañu wax le médiateur de la République amul adjoint amul suppléant amul dara mënuma tukki fenn ne kenn moo may signer sama document def et cetera jox ko fond euh, jox ko les pleins pour le médiateur de la République le président de la République donc mënoo toog sa bureau Sénégal yëpp ngay doxal mhm. léeg-léeg ma dem fenn def fa trois quatre jours waaw sëñ bi xanaa doo dem liggéey mën leen non mais maa ngi <laughs> liggéey maa ngi liggéey xanaa ñii bokkuñu ci Sénégal <laughs> uh-huh. donc c'est une c'est une mauvaise connaissance de l'organisation de la médiature alors maître man si sa métier boobu de médiateur de la République la bëggoon ñëwaat yaa ngi dox yaa ngi gis problème mu sénégalais yi euh, te pourtant su ngeen bindee teg ko après mbind mi du mujj fenn est-ce que tey am na solution pour génne sénégalais yi ci ndóol pour génne leen ci mer bi nga xamante ne moom la ñu nekkee jeunesse bi souffrance bi mu nekkee nga xamante ne dañ dem nañ ba perdre espoir ñun ñëpp gis nañ ko fan yi seen réaction lépp ci perdre espoir la est-ce que tey solution am na réellement parce que su ma lay déglu j'ai l'impression que euh, amatul dara lu ñu mun a def oh non au contraire je pense que le médiateur de la République devrait pouvoir être porteur de tous les espoirs mm. moom bu taxawee rek ku ñàkkoon yaakaar war nga jàpp ne am nga yaakaar parce que am ku la waxal. Hmm. am nga koo xam ne foo mu toog juróom-benni at la fay def. te kenn mënu ko fa jëlee ku dul sunu borom. waaye nag ñu ngi lay mu faatu wala mu wopp wopp boo xam ni autorité yi moo la wax léegi ñoo koy constaté ne kii kat mënatul dem nañ ko fi jëlee. Hmm. mais du ci lu muy wax du ci lu muy def yàlla def ñu organiser ko noonu. Hmm. am ñu mu jiitu ñoo xamante ni ci li Sénégal am ci li gën a xarañ ci seen wàll ci la ñu bokk. président Ousmane Camara xëy na yéen féete ngeen ndaw lool lool lool ba du ngeen ko xam mais jaar-jaaram dans la con dans la formation de l'État du Sénégal et de sa nation il a joué un rôle important extrêmement important le professeur Seydou Madani Sy qui a été recteur de l'université qui a été ministre mais c'est des gens éminemment importants et courageux d'ailleurs mm. mais tu prends Doudou Ndir qui a été un très jeune magistrat un très jeune parquetier qui aujourd'hui préside la CENI. L'avoir eu comme prédécesseur, c'est tout un honneur. Mais alors, le, le, nec plus ultra, c'est le constitutionnaliste, le professeur Serine Diop. Mm. Tout jeune député, tout jeune ministre de la justice, de l'enseignement supérieur, mais chacun a son style qu'il a posé et j'ai hérité de cet ensemble d'éminences pour que ñu mën teg médiateur ni ñu ko bëggee. Mm-hmm. Comme disait le, le, le, le premier médiateur le, le monsieur Ousmane Camara, mon père, que je salue au passage, il me dit Alune, je t'ai bien écouté. Et je pense que pour être un bon médiateur, il va falloir que tu sois toujours convaincu que tu, tout ce que la loi ne t'interdit pas, tu dois te le permettre. Mm -hmm. Et ça, j'en ai fait un bréviaire. loolu moo tax xëy na ma am taxawaay boo xam ni keneen du ko war a mën a am. il y a aussi ma liberté d'avocat je, je suis avocat hein faut pas l'oublier ñu bari xamuñu ko ils pensent que je suis un politicien je le suis devenu c'est vrai mais alors là j'ai ma toge j'ai mon rabat blanc et celui à Kapok il y en a même qui disent que waruloo woon nekk politicien ndax éthique ak valeur yi nga am politicien yu bëri amuñu ko pour dëggal ni euh, ab avocat nga bu am valeur ak ay éthique yoo xamante ni euh, ñaare ñu nit ñi duñ ko gis ci ci ci ci homme politique yi Alioune Badara euh, Ablaye je pense que di nga ko jox benn question voilà après ma dem ci beneen plateau bi dama ko bëggoon bégal tuuti aussi parallèlement ak gan gi ñëw ndax moom ab taalibe murid la waaye waa kër Cheikh na Cheikh Sadbou yi dañ ko seexal normalement bu demee bu demee ci ëttu Cheikh na Cheikh Sadbou Cheikh Alioune Badara Cissé la ñu koy woowee voilà j'ai même euh, quelques images pour dëggal ko moom ngeen di gis nii peut-être moom du ko gis ci plateau bi regardez voilà c'est ce qui li moo koy euh, euh, moo koy dëggal donc normalement Cheikh Alioune Badara Cissé la euh, ci ëttub e Cheikh na sat bu loolu moo tax ñu woolu Euh, euh, kii bokk ci jabootu Cheikh na Cheikh bu di Cheikh na Cheikh Sadbou Samb euh, bu ñu ngi lay nuyu di la ziar on a tellement de choses à dire à maître Alioune Badara Cissé moo tax ñun ñëpp ñu ngi njëkkante kaddu yi ba ci téléspectateurs yi ak internet yi mais bon on fera le maximum kaddu yi sénégalais am yëpp ñu baaxee ko ko moom it mu mën ñu baaxee ay réponse am mën nañu la bàyyi rek nga am loo ko ziyaaree laataa ñuy àggali waxtaan bi tey ci quartier général bi bu Samb ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci teewaay bi jërëjëf jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin aouzu billahi min alsheytani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaam ala asrafi alanbiyahi walmursalin sayidina muhammad ibni abdillah xaatimi nabiyina wa imaami almursalin asalaamu aleykum maa ngi lay nuyu di nuyu kilifa yi nga feggool yépp waaye di jox ziyaar sunu baay bi egsi ci plateau bi muy Seydina Alioune Badara Cissé di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam kàddu yi fa tabaarakallaahu rafet na euh, ñu sopp ko nag ngir euh, euh, kàddu yi dëgg yi fi yëkkati mhm. yàlla yàlla guddal fanam di nuyu bu baax macha allah Pape Jibril ak fa tabaarakallaahu Pape Abdoulaye ñu yëpp ñu ngi leen ziyaar ñoom keps mhm. di ziyaar sunu xarit soxna biisu di leen ziyaar ak ñi bokkal palato bi yëpp ba cheikh di la ñaanal gudd fan waaye di ziar sunu sang cheikh na cheikh Aya doomi cheikh taalibi doomi cheikh na cheikh Sadbu sunu buntu ci moom di shérif alwali maane Ndiaye ñu ngi koy ziar ak njabootu Seydina Muhammad gépp ñaanal njabootu cheikh Mbaye Ndiaye sàmm mbuur gënu bàyyi ko xalifa ba di Muhammad fa tabaarakallaahu ak sunu baay yu baax yan fa bàyyi ak cheikh As mi ma préparé ba mu mën a ñëw tey quartier général ñu koy ziar kon ñu barkeelu rek ci première partie bi bégal sunu baay bi ci yonent bi ak maam Cheikh na Cheikh Sadou bi mhm. jërëjëf Cheikh Alioune Badara Cissé mhm. waaw <laughs> Muhammadu xayrul wara Abdalaayi taaw kenn gënu la Mamadou xayrul wara laay daaw kenn gënu laay way wi yaa ko moom rasulallah naa Cheikh Saadu Labi doomi Cheikhina Cheikh Mouhamad Fadal gaynde ga ca Nimzaat bàyyi Cheikh Taalibu yaag Sida teg bu nana ak Dramé Sidi Buya bàyyi Cheikh Almafu ay dara Cheikh na Cheikh Saadu Labi nee na maamam yenneen sama maam xusa nabiyanaa bi asatil xisaal Muhammadu Rasulallah lam yaxtalim xattun wala lu xilaal wal ardu wal ardu lépp lu génn ci Seydina Muhammad suuf si da koy wann ngir warmaal rasulallaahi wal ardu maa yuxriju minhu tabtali kazaazu baabanu xaqan mumtini man xalfuhu yara yonent bi mës a dox di gesu ginnaawam ndax na muy gise kanamam noona lay gise gannaawam man xalfuhu yara kama yaral amaam tanaamu aynuhu wal xalbu laa yanaam seydina muhammad bu masaana tëdd nga foog ne mu ngay nalaw bët ya rekk a gëmm waaye xol baa ngay xool rasulallah Muhammadu Rasulullah تنام عينه والقلب لا ينام أخلين مصطفى سيد المرسلين يا نخوي لا لا لا لا إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله sama yoon sang baange la ilaha illallah muhammadur rasulullah la la la la illa la la la la la muhammadu ya rasulullah sanga bange ñëpp ko way muhammadu déggal Cheikh Saad bu nee na ahlan bi shahril mawlidi rasulallah shahru nabiyul amjadi rasulallah ya rasulallah ata bi saadil aswadi rasulallah ya rasulallah xeyru wara Muhammadu sunu yónnee na sang baange lay lay la la لا إله إلا الله بشرعني أن يا ربي رسول الله يا رسول الله فخذك المولى رفيق شيخ سعد بني بالمصطفى نعمة صفي شيخ سعد بني الهاشمي محمد سنين نسنا بانجي salli ala al-muxtaar wa sallama tasliima muhammadu rasulullah sama yonent ah mami alwali man njaay rasulullah ya rasulullah mami sixal ma fu ay dara rasulullah ya rasulullah عيدنا رسول الله يا رسول الله مامي عدرام عيدنا رسول الله يا رسول الله مامي شيخ الخون أوجي رسول الله يا رسول الله سنو يمنا سنبانجي Seexul Xadim la mu wax Seydina Rasulallah yaa Rasulallah Bay Fal Mustafa ak Bés Roog Abdulaat way na Rasulallah yaa Rasulallah nee na man maay sa mbindaa yaa Rasulallah nee na ko yeneen yaay patron bi man maay sa mbindaa karimu anal xadimu xadimu Rasulallah yaa sama giiru dundu rasulallah ya rasulallah dëral udiimu fi kasanaayi rasulallah ya rasulallah ku sopp Sëriñ Tuuba nel ni ñu màggal rasulallah ya rasulallah dëral udiimu fi kasanaayi sunu yoon nena sang baange lala ilala lay lay lala muhammadu rasulallah sama yoon nena ya habiballah wafa sun xat xaamu daat safara fay jooja waaye kooku moom mooy Seydina Muhammad sang ba jamadina giru faris ee eh, seen safara wa fay keroog ba Seydina Muhammad juddoo waaye yonent yaa njëkk a déclaré juddug Muhammadu rasulullah wal anbiya al ukhbiru rasulallah ya rasulallah bi bahsi wa basharu rasulallah ya rasulallah wa kulluhum qad zakiru rasulallah ya rasulallah ذاك المولد غير سنبان ما شاء jërëjëf Sadbou loolu euh, nuyoo bi rek la woon ca kanam di nga euh, euh, woyaat bégal gan gi Cheikh Alioune Badara Cissé bëgg Cheikhul Khadim ak njabootam waaye ñu seexal ko ci ëttub Cheikhna Cheikh Sadbou waxayaatu Euh, ngeen bég ñu ànd ci guddi gi euh, ñu ngi waaj delluwaat kàddu yi euh, équipe yi ci beneen côté bi pour yeneen i question parce que voilà li ñu bëgg a wax maître defe naa dafa bëri waaye suukaru koor yi itam bu ko fàtte 88 628 22 22 mën nañu jëlaat ay téléspectateurs jox leen ko publicité yi itam mënul bañ a ñàkk ndax ci la bokk je pense qu'on va enchaîner avec ça et puis on se retrouvera juste après pour la suite de quartier général juste remercier encore équipe yu Keifa kayfawood.com euh, ku ci bëgg euh, mën nga dugg euh, ci site internet bu Kayfa ngeen def commande yi càmmiñu keps bi suma xarit ba ca Mauritanie baayu keps voilà Euh, milk euh, Milk bàyyu keps bëgg na ci donc Milk depuis Mauritanie defal commande bi ci www.keifawood.com puisqu'on livre partout dans le monde donc merci aux équipes de Keifa ki ko jiite di suma rak euh, bàcc ñu ngi koy gërëm bu baax maa ngi bëgg a jàll ci publicité yi boo ci dolliwaatee leneen eh, dinañ jëlaat temps de encore d'accord voilà donc ñu ngi wax ni téléspectateurs yi ku ci bëgg ci sukkaru koor yi mën nga bon euh, mën nga woote léegi nii ñu jox la ci ñu dool li ci euh, Sobowa euh, donc dañ ciy tegaale un an de consommation top ak bon cinquante mille voilà on va pas en faire un jeu concours pour gagner du temps mais ku ñu teral rek jox ko sukkaru kooram deux cent mille wala trois cent mille mën nañ ko ci tegal un an de consommation top plus un bon de cinquante mille Euh, bu leen euh, Sobowa jagleel voilà donc je suis en train de euh, regarder information yi ma ci am ndax soxal na leen yéen téléspectateurs yi voilà donc 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ñu jëlaat ci enveloppe léegi nii joxe pour yéen ñi seetaan ci guddi gi seeni sukkaru koor ñu jagleel leen ko ci quartier général bi. donc ñu may leen quelques minutes ci minutes yooyu noonu mën nañ ci jàllale publicité yi donc on vous on vous donne quelques minutes le temps ngeen composé benn euh, ci numéro de téléphone yi en attendant ñu xool publicité yi doog a dellu si ci plateau bi. waaw TFM ngeen def seetu Sénégal TFM. Un ramadan en famille, c'est toujours mieux avec l'eau minérale naturelle Kirène et la pétillante de Kirène. Profitez des minéraux nécessaires pour rester hydraté et en forme. L'eau minérale Kirène vous souhaite un excellent mois de ramadan. Kirène, soif de vivre mieux. li ëpp solo pour un bon ramadan chez soi xewlu leen si ngëneel yi un goût comme à la maison avec Presseya bissap ak Presseya ananas gingembre pour faire le plein de vitamines et d'énergie à chaque ndogu prenez soin de vous ramadan moubarak Presseya vive et fruitez pureté générosité partage ngëneelu weeru koor yaa ngi ci meew Candia taamu leen cafkaam bu sell bi si entier wala demi écrémé ak la saveur gourmande de ses laits aromatisés vanille et fraise ci briku 500 ml yi gën a yomb jëfandikoo Candia le bon goût du lait avec vous pour un bon ramadan yónnee xaalis warul a jafe ñun waa Senwave neneen lañ koy defee bu gën mën nga yónnee xaalis say soppi si lu gaaw foo munti nekk te doo fay dara waaw waaw dégg nga bu baax doo fay dara noonu la yombee mën nga doxi sa soxla si taw tànnal liy gën a yombal sa àddina si lu amul benn sikki saka wala xel ñaar yónneel xaalis si lu gaaw wóor te si fay dara téléchargeel application Senwave ngir yónnee xaalis bu jóge bitim réew diñu la may juróomi euro si sa transfert bu njëkk ak code bi di diaspora ànd si ak suñu partenaire bi di UBA Afrique juróomi xale yow jël ñett yi dañoo manqué fer manqué deret moo tax ngeen war di jox seen njaboot ñam bu ñu dooleel ak fer bés bu nekk. Nestlé Gloria bi ànd ak Nutriforce dañ ko dooleel ak fer ak vitamine C loolu mooy dimbali seen njaboot ñu am fer bi seen yaram yi teew ak kattan bi tax ñuy teewlu taamu leen wérgu yaram gu ne keng ni fer. mën naa mère topp nga laal de. waaw bu mag 500 francs kese. 500 francs kese. kese nag dégg nga loolu waaw. waaw lii ba nga yor de. bu mag 500 francs kese. nga ni. <laughs> topp la laal de. saay kii topp mag bi la 500 francs kese. nga ay baax na yomb na de. leen nii. neen de. andi naa leen ba xuus. waa kay xool day gisee. day gisee. salaamaaleykum. <laughs> te yàlla mi nu sakk. yaa naka te ñëpp ko bëgg. bi. topp mag 500 francs kese. te am orange wala ananas. Ramadan Mubarak. si weeru koor bu sell bii poulet teral ñëwati na ak ginaar gi ñëpp taamu waaye itam ak lu bees tàkk ay pak ramadan yu yomb te riche taamu leen seen poulet teral ngir bëggal seeni njaboot ak ay togg yu neex te barkeel lii si blanc de poulet ak brochette bu si nekk ak façon boo ko mën a toggee teral daal moo yombal liggéeyu jeeg si biir waañ ndogu li du neex te teral teewul ak teral da togg si bànneex yekk si bànneex teral moo leen di ñaanal weeru koor weeru jàmm ñoo ko bokk ku ko xam-xam ni dafay relever ay défis ci défi yi muy relever fii ci réew mi fan yi ñu génn dañu doon inaugurer station service EDK Oil bi nekk ci autoroute de l'avenir ñu koy wax EDK Oil Yeba ubbite EDK Oil Yeba nag dafa yemboog ay borom daraj yu mag ñu koy wax Serigne Thierno Samassa de Serigne Habib Sy ibn Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidjanes Serigne Abo ibn Serigne Mountakha xalif général des Mourides et de Serigne Baralat Mbacké daal di ñëw fesal seen mbégte ci liggéey bi doomu Sénégal def aire de service bu rafet bi mi ngi nekk ci autoroute à péage bi waaye jàppal am na supermarché bu mag supermarché low price maanaam njëg yu baax amit restaurant fast food Jollof Chicken mi xew lool ci Sénégal amit cafétéria amit jàkka joo xam ne mën ngeen ca julli ndax ku dawal oto ba dugg ndakaaru mën a taxaw fii nga xam ne moom moo di ci EDK Yeba julli fa ñaan fa amit li nga xam ni moom moo di jardin boo xam ni mën ngeen faa féexlu noppalu tuuti balaa ngeen di jëlaat péage bi amit ay toilettes yu moderne am aire de jeu baie de lavage ak d'entretien point d'assurance foo xam ne mën nga fa renouveler sa assurance am bâtiment administratif bu yanj guichet automatique ñu ko naan gàpp nga xam ni da ngay ñëw dugal sa carte xaalis bi daal di génn ba noppi nag lépp ñu daal di koy amal ci sécurité bu doy EDK Oil Yeba mi ngi nekk après post péage bu Toglu boo génnee aéroport international Blaise Diagne la ca maam Seydil Hadji Malick xam yàlla xamal ko ko ci cërale ko ko ci loolee ci jataay bi yàlla nañ ko fi yàlla bokk amiin bi jaahi suñu bëgg-bëgg wallaahi waaye moom lañ ko doon sàkku yàlla wallaahi nañ ko yàlla bokk ba amiin amiin amiin ko di wax kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci senegal ñu xool doomu Sénégal bu mel nii nga xam ne ñoom ñi ngi sonn pour am ay employé moom muy créer at mu jot nangami centaine de emploi teg ko ci seen loxo nga xam ne amaana jafe-jafe bu jëm si woon ci yéen téyel na leen ko kon nag ñu bàyyi xel doomi réew mi ñi nga xam ne ñëw nañu pour liggéey réew mi ndax am nañu am waaye feneen la jëm dañ koy ñaanal tamit moom mi jëm boppam yéene ji mu am ci réew mi suñ borom nal ko ba mu mën caa àggale lu kawe njortam nee na kon mu ngi sant bu baax nee na di ko ñaanal yokkute gu sax ak barkeelu liggéey bi. EDK Yeba mën nga faa taxaw reprendre sa souffle daal di jëlaat péage bi. EDK Oil doomu Sénégal moo ko fi def EDK Oil ñun Sénégal dañ koy ndamoo bu baax. D'autres, c'est la forme. Mais pour moi, c'est un tout. Une cuillerée de luxe, une coupe de design, ça tranche avec le décor. Le tout soigneusement décoré, bien sûr, pour en mettre plein la vue et surtout plein la bouche. Un luxe éclatant qui se reflète sur votre sourire, sur le sourire de ceux que vous aimez. C'est tout cela la vaisselle chez Prestige Déco. Du luxe pour le goût au goût du luxe. À de choisir. Prestige Déco vous souhaite un bon ramadan. Pack Food Sénégal yëpp ñoo àndandoo ni Pack Food dara fayu ko. weeru koor gi moutarde ak vinaigre Pack Food dañu taxaw ci seen wet. suñu équipe yëpp noppi nañu loo jënd ci moutarde ak vinaigre pack food ak suñuy pat ñu daal di la koy livrer fa nga ne xoolal suñu arsenal suñu équipe yëpp pare nañu lépp noppi nañu fu waay mën a ne ñu livrer la li nga xam ni moom nga jënd ci waa pack food pack food nag ah dañoo mënee suñu boor de dañu lay liggéeyal lii dara fayu ko pack food am nañu nag li nga xam ni moom moo di maanaam vinaigre de qualité supérieure am moutarde de qualité supérieure loo taamu mu togg mu neex lu mu togg ci jën mu dem ci yàpp mu dem ci ginaar mu dem ah pack food dëgg-dëgg dara fayu ko vinaigre moutarde macaroni ak produit pack food yi qualité supérieure la lii dara fayu ko weeru kooru jàmm ak moutarde ak vinaigre ak équipe bu pack food yëpp te TQG Touba quincaillerie général te Sénégal yëpp xam ko ci njaayu matériel quincaillerie yu baax te mucc ci ayib indil na leen ay poignées pour bunt yu dëgër yu wër yu ànd ak design yu rafet ànd ak qualité am na yu leton yu inox ak yeneen am na itam ay canaux ak i serrure de sécurité ci marque TQG ay vachette ay bricard ci qualité yu mucc ayib yu nango yàgg te seeni caabi du mos a càng ci biir mukk am nay pomelu bunt ay charnière ay poignée armoire ak yu meuble de rangement soo de entrepreneur mbaa ngay ouvrier mbaa nga tabax ba toll ci finition demal TQG loo soxla ci qualité ma nga fa ci njëg yu xéewale Touba Quincaillerie Générale TQG mi ngi 65 rue Nganodou Diouf à Dakar mi ngi itam extension Kër Damel lot numéro 3 derrière stade Léopold Sédar Senghor téléphone 33 879 28 28 TQG notre force la qualité n'est pas un slogan mais une réalité weeru kooru ren jii lu bees tàq moo ci xew ak Kabirex da ngeen di ndogu naafi la doxantu ndànk ñëw ci suñu showroom ànd ak sax njaboot gi bu leen neexee ñëw xool li nga xam ni kat moom mooy bégal seen xool ci showroom bi gën a mag fii ci Sénégal waaw waaw Kabirex dafa fas yéene leen dalal ba minuit dañuy ubbi maanaam ba minuit Samsung S21 baa ngi fii di leen xaar frigo ak réfrigérateur yu garanti te yomb micro-ondes ak mixeur yi nag bu leen fàtte PlayStation 5 yi xale yi gën a bëgg su leen neexee sax ci biir Kabirex ngeen jouer tuuti ngeen di soog a jënd kon nag ci biir weeru koor gi ci guddi gi Kabirex dafay ubbi Kabirex nekk rond-point Sacré-Cœur boulangerie jaune taqaloo ak magasin Auchan bi ñëw koor gi ak Kabirex fii ba le 5 mai dinañu am réfrigérateur combiné 210 litres ci 189 000 francs Samsung Smart TV 43 pouces ci 219 000 francs micro-ondes Haier 20 litres ci 42 900 Samsung Galaxy A32 ci 139 900 francs kooru jàmm ak Kabirex Kabirex your electronic destination votre fenêtre dès le matin. La Villa Natangué, c'est un maximum de confort avec un grand salon bien éclairé, une grande cuisine fonctionnelle. Une cour arrière carrelée, située seulement à minutes de Dakar, la Villa Natangué f c'est aussi un jardin ensoleillé. Une façade magnifique en fer forgé les villas Natangué à offrent le cadre parfait à votre famille. Ces cinq chambres spacieuses et ces cinq salles d'eau vous procurent une grande mobilité à chaque instant tout au long de la journée. La Villa Natangué F6, des espaces de bonheur pour toute la famille à partir de 49 millions de francs CFA pour les 30 premiers acquéreurs qui en plus recevront en cadeau cette magnifique cuisine. ci réew mi gox yi ak gox-goxaat yépp ñi ngi jëfandikoo doolay ndox mi ak ngelaw li leeraayu jant bi xarañteefu jumtukaayu xarale yi ak liggéeyu ndawu Senelec yi ngir jox askan wi courant bi tax ñuy mën a sanc ay bërëbu liggéeyukaay courant bii tax ñuy mën a fent ay mbir yu bees di yombal paj mi ci bërëbu fajukaay yi te di leen mën a dalal ci ay anam yu mucc ayib ci seen kër gii di Senelec courant bii tax ñuy mën a jokkoo ci xarala yu yees yii ak di mën a gisante saa sune ne courant bi yombal daje yi ak gise yi ci jàmm ba ñuy mën di bégee courant bi yombal njàngum xale yi bi tax soxla yi di lijjantiku saa su courant bi jëmale réew mi kanam ak di leen jox yokkute ak koom-koom Senelec courant bi tax lépp jàppandi naka nga mën a defee ziyaara bu am baraka àndandoog agence bii di conciergerie Maroc Sénégal di leen defal ay package yu yiw yu baax yoo xam ne da ko àttan ziyaaru Fès bi mu ngi tàmbalee fii ci Ndakaaru ci teewaayu Chérif Hamza Atijani ak officiel yi nga xam ne yépp ña nga bàyyeekoo Maroc et cette relation exceptionnelle qui unit le Maroc et le Sénégal c'est quelque chose de spirituel c'est une fraternité le Maroc le Sénégal c'est le premier ab ras ouvert ñu daal di jóg daal di ànd ndoog Royal Air Maroc seen billet aller retour ci la bokk ñu daal di dem Casablanca équipe dalal ñu dugal ñu ci ay bus climatisé yóbbu ñu ci hôtel 4 étoiles hébergement bu dal bu exceptionnel restauration bu mucc ayib sous forme de buffet jóge Casablanca daal di dem Rabat daal di dem Fès capitale Tijania la ville impériale daal di fay jóge dem ci mausolée tarixa Tijane dem ziyaare ji Cheikh Ahmed Tijane Chérif Rabi Allahu taala ah ci dundu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu da ngay connecté wu ak sa borom suñu client dañu am satisfaction ki 100 pour cent ngir bokk ci loolu yëpp mën nga ñëw woo ci 78 604 66 66 78 604 66 66 wala ngeen ñëw ci suñu place avenue Bourguiba ci manège bu mag bi nga xam ne mooy Africa Park. suukaral sa koor bés bu ne ak Free Money fri Money dafay séddale un million de francs bés bu nekk ci weeru koor gi ci seen émission rajo ak télé yi ngeen gën a sopp ngir bokk ci ni gagné da war am kalpe Free Money ba pare soog a woote ci seeni émission quartier général wareefu Ramadan et dëggantaan Free Money kalpe buy suukar sa koor kula kasaraw Colobane mësta am boutique bu ñu lay teeroo ni buur boutique bu ñu lay dalee ne ni chef sant yàlla boutique may say frère xeetu tissu boo bëgg am na fa lépp loo bëgg ci tissu góor lép loo bëgg ci tissu jigéen fii la filière lin madras fii la filière bàyyee ko Angleterre coton suisse brocardie ma ne prince de Galles nag ah waay samba jesner yo loolu nam ci bazin riche ma ne soit nga xam ni ma nga bàyyee ko Paris soit Christian Dior nag lépp loo nam ci crêpe ana lu Chanel defar ana lu Givenchy defar dama ni lépp luy paillettes ak brocart waaye yemuñu foofu de ñu ne alan ngeen bëggati ñu ne brodé Autriche loo bëgg ñu ne voile brodé loo bëgg ñu ne chantôme loo bëgg ñu ne til design ah cëm wala til arc en wala til grande dame lépp nga fa dama ni sant yàlla boutique may sa frère ne lépp luy qualité da nga koy fekk fii lépp luy toppatoo sa client da nga koy fekk fii woo ñu ci 77 906 28 95 903 45 99 yegg si leen Colobane marché Gambie Janwa caserne Samba Diéry Diallo wala Touba marché Ocass. xale yi ñëpp TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw TFM bés bu nekk TFM waaw TFM. jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg na mu du mag lay njëkk waay du mag lay mujjee waay maa gën a la waay xam li ma warte woo ma wóor te wóor yaa jàlle jaam yow lañ doon seet yow la yow yaay Muhammad Rasulillah tuma kilay njëkkaay tuma kilay mujjeeway maa gën a tuut li ma woor te woor li ma woor seet yow lañ doon seet yow la yow yaay Muhammad Rasul ma ki lay njëkk a ma ki lay mujjee way maa gën tuut ci ñi waye xam naa li ma wóor te wóor li ma wóor te wóor yaay jàlle jaam ñi yow yaay Muhammad خاتم نبينا إمام المرسلين mooy Seydi Wara petit ma ngoog mbokk yi ñu ngi leen di euh, euh, gërëm encore ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média ju ci waxtu wi dañuy continuer ak Sophie sofi mooy Euh, enchaîner directement ak euh, xëdd bi. Mhm. ma fàttaliwaat leen ni lii itam ci sukkaru koor yi la bokk. Euh, billet pour dem ziar Fès donc ñu ko jëlee conciergerie. Euh, Sénégal euh, Maroc ñoom dañuy organiser euh, pèlerinage ci njëkk yu yomb mën ngeen leen a woo ci 78 604 66 66 78 604 66 euh, 66 euh, euh, bu dee bëgg ngeen yóbbu seeni i jur wala seeni mbokk wala yéen sax bu ngeen bëggee dem pas cher du tout on vous donne le tarif tout à l'heure dañu ci maye itam ci 88 628 22 22 le temps ngeen di dugg si bañ leen di jox seeni i sukkaru koor Sophie la ñuy bàyyi mu wax ñu fan la xëdd bi toll d'accord euh, Diallo comme ni ñu koy euh, defee rek saa su ne xëdd bi nag moom daanaka rek euh, pare na ndax tey waxoon naa la nag benn omelette tropicale laa leen di proposer ngeen mën ko reprendre seen biir kër lépp nag dafay nekk ay légumes yoo xamante ne yu frais la ñu koy defaree ba Baye Cheikh di nga ki mën a lekk comme ni nga ko bëggee ba nga xamante ne durant toute la journée doo xiif benn yoon Baye Cheikh wala boo xiifee tamit du doo loof loolu Baye Cheikh commencé woon nañ ak préparation plat jour bi. fii naka dama jël oignon euh, poivron rouge ak poivron jaune euh, jël tuuti rek ariko ak euh, tuuti petit pois moom laa jël daal di koy revenir gis nga naka bi ma ko revenir nii nag dama def tuuti sel poivre def nag euh, Baye Cheikh euh, tuuti suñuy épice naturel yi moom laa jël rek daal di ciy rajouté tuuti gis nga nag ma am benn mélange boo xamante ne ni bàyyiwuma ko ba mu ñor dama ko bàyyi mu al dente euh, déjà nag rek nii damay ñëw rek sotti ko ci poêle bi mais nag bu ma koy def ci poêle bi nag damay jël rek sama diwlin ninal bi nga xamante ne ni waa Sonacos ñoo ñu ko andil moom nag comme ni may wax chaque jour rek boo koy toggee sa xel dafay dal ndax du lakk du wayte du fuurte loo ko jox mu delloo la ko déjà nag li may def rek mooy daal sama mélange légume bi daal di koy rek sotti boo xoolee nag dama utiliser benn poêle adhésif boo xamante ne nii dalay lay permettre du xëm te soo xoolee huile bi nag bàyyiwuma ko ba mu euh, euh, tàng bu baax dama ko sotti rek ma daal di ki rajouter légumes yi nga xamante ne nii ñoom ñaar dañuy àndandoo rek daal di ñor su ko defee nag nga am li nga xamante ne nii moom nga soxla euh, pour omelette tropicale bi nga xam ni moom laa leen di proposer tey mën nañu yokkandi tuuti gaz bi rek bàyyi noonu mu ànd ak moom jug nii nag maa ngi doon dagg ay rondelle de tomate li may def rek mooy dal di jël sama saucisse de poulet man nag tey saucisse de poulet laa jël mais bu la neexee mën nga ko remplacer soit ak blanc de poulet wala rek nga jël rek euh, tuuti viande hachée daal di koy remplacer ak moom moom la ñuy jël rek daal di koy émincer nii rek finement bu ñu ko émincer nii rek li ñuy def rek mooy daal di ñëw sotti ko rek mu fekk ji légumes yi nga xamante ne ni moom la ñu def ci si nga xamante ne ni mooy euh, poêle bi gis nga nii rek dañu koy tas mu àndandoo ak euh, légumes yi ñu defee nag euh, nii ba pare am nañu fi nag euh, gis nga nii ñaari nen rek laay utiliser mën naa jël nag même bool bi nga xamante ne nii daa mel ni nag tagal gi day dem xaaral ko nii mi ngi noonu ndax mu bañ a déranger ko organiser ko mu ngi ah. noonu léegi nag damay ñëw jël rek ñaari nen même bool bi ñu utiliser woon mën naa ko jëlaat daal di ciy def nag li nga xamante ne nii mooy nen yi ñaar rek laay utiliser gis nga ñu defee noonu ba pare dañuy ñëw rek jël ci suñu lait kànjaa bi moom it tuuti rek ah, la ñuy def voilà tuuti rek la ñuy def pour am li nga xamante ne ni mooy nen bu fluide gis nga nii ñu battre ko à l'omelette ñu defee nii nag ba pare nii nag boo amee persil coriandre mën nga ko ci rajouter tuuti su ñu defee nii nag ba pare damay ñëw rek daal di koy sotti attention Aïe. voilà mënta ñàkk. cat la cat la waaw kay cat laa ngi noonu. tous ses yeux. mu ngi noonu. les yeux d'ici et les yeux les maisons. <laughs> et les yeux d'ailleurs mu am ñamu bët. mu ngi noonu ah. faaw mu tuuru mais. les yeux d'ici et les <laughs> euh, tegee noonu nag ba pare li ñuy def rek mooy daal di ñëw rek jël tomate. Ah. moom it daal di koy dagg en rondelle. parce que omelette tropicale bi ñuy def ni dañ koy def sous forme de pizza. Ah. ba nga xamante ne nii di ko mën a euh, jëfandikoo. Euh, boo ko séenee rek bàyyi ci saa si da ngay am nag envie daal di lekk gis nga bu ñu defee ni mën nañu wàññi gaz bi ba mu des tuuti parce que duñu ko retourner nii rek la ñuy def daal di jël li nga xam ne mooy euh, tomate yi daal ko ciy teg voilà gis nga nii rek ñu terminer ak. Euh, benn tomate bi fii à côté. Mm. suñu paree rek dañuy ñëw jël rek li nga xam ni mooy olive noire bi. Mm. moom nag c'est pour euh, gën a génnee li nga xamante ne ni mooy euh, couleur bi parce que togg nag dressage bi daf ci am solo lool. Mm. gis nga suñu defee ni nag ba pare am nañu fii rek euh, concombre la ñu am dañu ko def rek ay trait mu am design moom la ñuy jël rek moom it dagg ko en rondelle suñu paree dañuy daggaat rek. concombre moom amul bayre noonu de moo ko yomba yam ci ci cere <laughs> mu ngi noonu Baye Cheikh ñëw rek daal koy def nii pour euh, déco bi mu daal di am euh, benn forme am nañu fii nag euh, fromage soo xoolee fromage bi nag râpé ko dañu ko bàyyi noonu rek dama ko bëgg a dagg en bâtonnet su ko defee da nga ko ci teg mu fondre ak li nga xamante ne ni mooy am omelette tropicale bi li nag mën na ay idée boo xamante ne nii pour booy def fa say ndogu mën nga ko def ah, voilà gis nga nii rek dañu ko ci sànni ni mu lépp nag mu naturel bàyyi seex am ay légumes yoo xamante ne ni nag moom la ñu ciy def mhm. gis nga fromage bi dañu ko dagg rek en bâtonnet daal di ko ciy sànni mhm. ni nag laa koy bàyyi upp ko wàññi gaz bi nag à feu ba nga xamante ne ni ci kaw day ñor surtout boo ko tëjee mhm. vapeur bi moo koy ñoral fromage bi daal di fond mu ànd ak tomate bi olive noire bi ak jambon de poulet bi bi nga xamante ne moom laa ci def bàyyi seex nag résultat boobu mooy nekk ni parce que sànq dama jël sama temps ah, daal di defar benn waaw sànq dama jël sama temps daal defal benn comme ça nag boo ñëwee rek di nga fekk xëdd bi pare nii nag c'est juste ñu wan leen ko ma fàtte aussi que ni Baye Cheikh man toujours damay utiliser piment de Cayenne bu rouge ak bu vert moom nag ni muy taaralee togg bi noonu la koy joxee gu da nga koy émincé moom ba mu sew daal di koy sànni ci li nga xamante ne mooy omelette bi nga am naka benn résultat Baye Cheikh bu extraordinaire boo xamante ne lii boo ko taajee rek heure ndogu sa xel dafay dal bàyyi voilà euh, Ablaye xaw ma kan moo leen di simbi mais ah. maître euh, d'habitude lan ngay ndogoo man sama bopp waaw Je ne prends pas de charcuterie. Ah, je prends des dates. En général, 5, j'en raffole. Quand j'extrais la noix, je mets du beurre dedans. J'avale calmement avec du pain chaud. Ah. De préférence une flûte, j'aime pas trop les baguettes. Ah ben. Et j'enchaîne sur le fromage. Le camembert, le roquefort, le brie Saint-Lambert. Mais comme un bon Saint-Louisien, il paraît que da ngay ndogg rek ñu teg ceeb bi. moo wóor nag. waaw boobu moo wóor ceebu jën bi moom day tegu rapidement. Ça vraiment c'est un héritage de chez nous. Uh-huh. malheureusement ça change un peu parce que uh-huh. xale yi ñoom dañu am seen rythme lekk. Mm-hmm. ak seen menu yu bopp. Mm-hmm. waaye man moom. mi di keng bool keng wala làkk suntu ix firli maa xaddamtu ak la ca topp yëpp boolu ceeb bi comme un bon saint mais mais comme un bon Saint-Louis saint euh, relation ak euh, làkk bi di anglais dañu gis ni sa ay kàddu yu bëri mm-hmm. il faut nga nga dugal ci anglais waaw Pape Cheikh loolu lu may lu may jégalu la dama koy tuub lu bare parce que mm-hmm. dafay léeg-léeg moo di ah. yàlla dafa dogal ma dem lycée am ay professeur yoo xam ni ca ñu mënoon ci njàngale la ñu bokk li mhm. nga ma baal ma tudd ci tuuti rek mhm. bokk na ci ñooñu ku ñuy wax Fala Sow mhm. yal na yàlla guddal fanam amiin bokk na ci ñooñu ku ñuy wax Mouhamadou Sow ñu di ko woowee Sow London Fala Sow ñoo koy Sow jàngoo moom génn na àdduna fan yële ñu génn weer yële ñu génn yàlla na suñu borom yërëm ko te jéggal ko am keneen koo xam ne Geneviève si la ñu koy wax mhm. ci Geneviève si nag bi ma nekkee lycée d'application école normale supérieure ci laa amee prix concours général en anglais ah d'accord mhm. ma am bac ñu affecte ñu orienté ma département d'anglais mhm. ma ma dem foofu def anglais ak espagnol première année deuxième année après ma dem France de foofu licence mhm. ak maîtrise dem Écosse mhm. mottali fa njàng mi te di fa jàngale mhm. ñibbisi dugg droit Sciences Po ak yu demee noonu bi ma ñibbisee Sénégal nag ba def barreau ba jaaxal stage ma am bourse Fulbright boo xam ne fellow Humphrey fellowship programme la tudd ma dem États-Unis waaw ah. ah, dafay fukki at nag dangay ngay daal di làggi ah, yes yes sir you got <laughs> I'm trying to speak English. mën naa la tutoyer à très prochainement. mais vous parlez wolof français mm. anglais et même paraît-il waaw loolu itam dëgg la. Mm-hmm. maa ngi jàng Joola ak séeréer ak alpulaar. waaw maa ngi koy jàng. lépp rek ngir mën a euh, wax ak ñëpp parce que médiateur moom ñëpp la war a wax. gis nga fa nga ko fële foofu baax waaw. <laughs> <laughs> on va continuer discussion bi ak yow maître euh, ñu euh, euh, continuer ak itam internautes yi ci seen ay questions yu ñuy yónnee depuis que ñu tàmbali quartier général bi bu sàmb daañu dellu si waat ci yow léegi maa ngi jot ay yóbbante benn bi jógee ci président yu Ndour mais jëmul ci yow doomam ci ki la awu le le bëgg ba ni nee na dina ko yónnee ndogu ndax moom li muy mbaar ak li muy njolli ba tey bokkul ak li ngay li ngay mbëfër ci ci ci ci ci ci ci li ñuy dund ci neex-neex boo dee sikkar loolu ñu ngi la ciy gërëm bu baax euh, ba ci euh, mbenn jaata Seck euh, moom nee na mu ngi kontaan ci sa teewaay ci quartier général bi ajaratu faatu géwél nga xam ni faatu géwél moom it at bu jot ci weeru koor gi dafay def ay œuvre day jël ay ndimbal di ko jox ay njaboot yu ko soxla donc taxawaay boobu nga xam ni ajaratu Fatou Guewel am na ko yamul rek ci woy ak di ñu bégal Euh, mu ngi ci ouverture des classes yi à travers ay sacs d'école yu muy joxe euh, am na bu keps euh, fekkee ci at yi génn waaye weeru koor gi it Euh, dafay séddale ay ndogu ay ndimbal yoo xamante ni ñu ngi koy rafet lu faatu Géwél euh, yaayu Bodi <coughs> ak maam Khoudia moom it ñu ngi koy gërëm bu baax euh, maa ngi koy wax itam ci yeneen i artistes ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi dox ci solidarité te loolu rek lañ leen di doyee ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm donc Sadbou dinañ la bàyyi léegi nga am loo ñu bégalaatee en attendant ñu continuer ak suukaru koor yi tout temps rappelant que muy billet fees bi billet màkk bi umra wala ak lépp pour yéen la ci 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ak 88 628 65 65 on fait quoi on prend quelques questions mhm. internautes. Mhm. wala ñu delloo Pape Djibril ak euh, Ablaye Cissé kaddu gi. on a une question des internautes. waaw bari na ci ay questions ndaxte dañ ko bàyyi xel. Ah. lool surtout waxtaan bi ni mu mhm. amee solo soxal ndaw ñi mais soxal Sénégal yëpp. en tant que médiateur am na benn question bu lëg daawur su dee lëg daawur la mi ngi tudd Daouda Daawur Diagne euh, question bi mu posé dafa ni euh, maître. en tant que membre fondateur de l'APR et médiateur de la République, quelle note donnerez-vous à la gestion du pays sur l'échelle de 1 à 10 ah. Je peux répondre Oui. oui. oui. Oh, ça, je donnerai 5. pense que 5, c'est bon. Mm Parce que l'ambition fera la différence. Et il faut voir ça vers à moitié vide ou à moitié plein. Nous avons amorcé. te loolu matagul foog ñu mottali ko bu ñu joxee lu ëpp rek day mel na ki fi nekk matal na te jàpp naa ni am na ñoo xam ni am nañu courage su mottali te du wàññi dara ci ja waaw góoram ak jàmbaaram donc que disait Ablaye non cinq moyenne le pire da nga ciy gis à moitié vide wala à moitié plein je donne une moyenne de cinq au travail de l'actuelle équipe à l'édification de laquelle j'ai participé que, quelle serait l'observation que l'enseignant mettrait à cette note de cinq Peut mieux faire. <laughs> des fois passable. Non, peut mieux faire. Peut D'accord. Une deuxième question, peut-être des internautes voilà, très deuxième, rapidement. deuxième, deuxième question, mon oui. que euh, am na keneen ku posé beneen question boo xamante ni toujours dina soxal maître ki dafa ni euh, bu ñu xoolee si sa profil ak sa parcours certains Sénégalais pensent que vous êtes le potentiel successeur de euh, Macky Sall. Wow. à la tête du Sénégal. est-ce que vous avez des ambitions présidentielles je ne pense pas que jàppuma sama bopp ne bokk naa ci tableau wu euh, ñi Macky Sall war a pour ñu wuutu ko su fekkee moom mooy tànn ku koy wuutu mm-hmm. euh, soow nag ñu ngi koy ñu ngi koy wayale ci biir néeg dañuy bañ rekk ku ci duut baaraam mm-hmm. waaye bu woyee ma marché lañ koy jaayee dañ mm-hmm. xaar mu woy lu ñu yàkkamti voilà c'est bon. Mm-hmm. deux deux, deux questions yu baax on attend d'autres questions alors d'autres questions yaa ngi ñëw en <laughs> attendant équipe digitale bi jàpp ci ginnaaw. Mm-hmm. Euh, jaajëfal leen ñoom internet ñi ngi réagir nag euh, di safoo wala bàyyi xel bu baax waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy amal ak euh, kii di maître mu nekk loo xamante ne soxal na ndaw ñi soxal Sénégal kii voilà allez donc saat bu ñu bàyyi la nga am loo ñu mayaat tuuti rek lu lu lu gàtt rek ak tabala yi ñu bëggal ci. Euh, Cheikh Alioune Badara Cissé voilà. <laughs> jërëjëf. Mustafa lam ya ni ñoo di jàmbaar الكاسدين ملحنا جبات يفريا مدك سبب يا ينو دي جنبا كاسدين ملحنا جبات يفريا مدك سبب يا ينو دي جنبا وي وي ناسدي عليو جاسم ملحنا جبات يفريا ينو دي جنبا Bakar Jaasim melax ah cuma dia pria nyinyo di jambar way way na Seydi Aliyo oh, oh, Jaasim melax na ah cuma dia pria nyinyo di jambar pria ñi ñoo di jàmbaar waaye Seydina Muhammad jàkkaarloog ñoom di leen rey di leen tëral di leen rey di leen tëral di leen rey di leen tëral di leen rey di leen tërale bu jaasi jógee junne daanu bu jaasi jógee junne daanu bu jaasi jógee junne Muhammad Rasulallah wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama yàlla soowe ja nee na mooy présidente fans club euh, kii mbaar ci suuf. <laughs> waaw Modou Mbaye waaw <laughs> macha allah mu ngook Cheikh Saad bu bég nañu lool. Euh, ñu ngi dellu soit ci yow ca ak yow ca kanam euh, tabale yi moom mënul ñàkk ci guddi yu mel nii ak gan gu mag gii ñu am tey di suñu way jur mais itam suñu xarit suñu soppee sénégalais yëpp bëgg ko jeunes yëpp surtout bëgg ko ku ne xam na ni Sénégal moom <coughs> dëkku dëkku dëkku jeunes yi la voilà c'est c'est c'est un pays boo xamante ni on a plus de euh, on a plus de jeunes euh, réaction yaa ngi jógee fu ne ñu ngi rafetlu euh, seen fidélité ak cofeel gi ngeen am ci quartier général surtout xeetu numéro yu mel nii deuxième partie bi nag xam naa ab Ablaye ak Pape Djibril ci la question yu gën a safi di génn ñu ngi ciy profité di ndokkeel honorable député Moustapha Cissé Lo moom suñu waajur la euh, at bu jot mu daan ñu seet si euh, mi ngi toog di seetaan di ñaan mais kontaan surtout ci euh, kaddu yi nga xamante ni Alioune Badara Cissé mu ngi koy yëkkati sànq ba tey ci quartier général bi ñu ngi koy ndokkeel il nous manque ah euh, Moustapha Cissé Lo namm nañu la euh, suñu way jur la ñu ngi koy ziar bu baax di ñaan suñu borom gën ko dëgëral ak euh, njabootam yëpp ñu ngi kontaan ci nii mu soppee lool programme bile di quartier général di nuyu tamit suñu xarit ci nekk bitim réew merci encore à toute heure vous regardez tout ce qu'on propose comme programme surtout quartier général nga xam ni bu dee deux heures du matin moo fi jot deux heures de plus lay nekk ci dëkk bu mel ni par exemple Paris mais vous regardez quand même liggéey jot ngeen dem liggéey on partie bi Ablaye euh, ci ay laaj yu soxal ba tey réew mi ak doxalinam. Pape merci xam nga mënuñu am maître Alioune Badara Cissé aussi. Mhm. te waxuñu euh, dina foog ñu taxawaat ci diggante bi ak président Macky Sall. Mhm. <clears throat> est-ce que li fi des maître Alioune Badara Cissé dafa des ci sa diggante ak président Macky ci lu ñu mën a jàpp nii daf la sacrifier ci bi nga xam ne nii mu ngi lay libéré ci post ministère des affaires étrangères parce qu'on ne peut pas faire semblant ne dégguñu wala. xibaaruñu ni li ko waral mooy lu benn pays bu mag xibaar ci président ne ko kat sa ministre des affaires étrangères am na relation trouble ak nit koo xam ne fréquentable recommandable laaj bi mooy est-ce que relation yooyu yu am la yoo assumé la ñaareel bi mooy est-ce que beneen pays moo ñuy dicté ki nga xam ne nii moom la ñuy tànn pour def ko ministre des affaires étrangères bu auditeur téléspectateur comprendre on peut raconter l'histoire mais boo ci mënee boo ci mënee tontu est-ce que du loolu moo des sa diggante ak président Macky Sall. Euh, Ablaye loolu lu yomb comprendre journaliste yi ci sama jàngat ak ñenn ñi nga xam ni ñoo bokkoon ak man langue politique bi ñoo ni Alioune Badara Cissé dañu ko déglu ci ñu jógee États-Unis gouvernement américain muy wax ak benn trafiquant de drogue notoire boo xam ni John Obi la tudd mm-hmm. kooku nag boo ko amee doo ko garder sa gouvernement ñu ne ñu génne ko ñu def ko dans diverses journées de la place avec un tapage médiatique boo xam ni moo fi am mu mu mu jàmm nag franchement j'ai mal parce que dama gis ni loolu kàcc yooyu dafa jóge ci boor bi nga xam ni man dama jàppoon ni falaa nar a bokk ba ba may sangoo suuf ci ñi ma war a àndal ci wàllu àdduna ma seet ki nga xam ni moo ci gënoon sawar ci wàllu presse bi moo yóbbu ko tribunal fait une citation directe il n'a jamais comparu y a eu quand même un jugement qui le condamnait et qui condamnait son organe à être suspendu pendant quelques mois à me payer un certain montant à titre de dommages et intérêts etc etc je me considère comme un patriote je voulais juste réparer le tort ki m'avait été fait, mais je ne vais pas exécuter la décision. Je ne l'ai jamais, jamais, jamais exécutée. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que wutuma ci koppar la ma ca di woon mooy la ñu wax te nekkul dëgg ma bëggoon ñëw indi ay firnde ne loolu am na ndiwuñu ko ka nga xam ni moo ko doon défendre te moom ci boppam mosul teew ndax relation yi ñu am ñoo prêtendoo serment le même jour en 2004 am na mbir mu fi amoon waaw ma ci sore boo xam ni dafa laaloon kilifa gu ma doon liggéeyal moom mu jël sur la responsabilité d'étouffer cette affaire ne ma damay ñëw ñu régler ko mu ñëw sama bureau ma yéeg ak moom ci bureau kilifa gi ñu régler ko étouffer ko comme dañ ko étouffer duma ci dellu si ma ameel ko bor boo xamante ni ba mu ma ñaanee naam metti woon na parce que sama njaboot aussi dañ ci laal bon et puis damay xeex ko aman surtout buñ ma tooñee ma ne quand même bàyyi na kooku ñëwaat na sama bureau ay yoon yoonu yoon ka ko bindoon ka moomoon organe ba ndax dañ ko bindulu benn stagiaire tubaab boo xam ba biir mi coowee dafa dafa bàbbee donc waxaatuma ci ak moom et on a passé les ponts ka nga xam ni nag moom moo yoroon dogal bi te xaw ma fan la ko wékk ma jóge màkk mënuma ko gis ma daje kilifa gu ñuy wax sëriñ si di maxtaan Mbàkke yàlla na suñu boroom yokk ay leeram te tas ñu ci barke laataa ma ñëw mu digal ma ni su ma ñëwee guddi naa fanaan si Touba su dee bëccëg naa yandu ci si moom mënuma mbir mi yëpp dégg nañ ko waaye bëgguma la ci dégg ci lenn ndax suñu boroom bu lay xeexal doo xuloo benn mënuma ñaar Cheikh Ndiaye ngi toog son plus proche voisin de chambre ki ngay tëj di ko ubbi di ko doxal ay itam munuma ñaar sàcc bu rëccagul jarul yàq sa ay nelaw ak yeneen yoo xam ni mënuguma ko wax fii léegi yooyu daf ma ko dénk way jur bu dénk doomam moo tax bi may def passation de service ma gërëm ko ne sëriñ bi kat maa ngi koy gërëm ndax dalal na ma te dëfal na ma te delloosi na ma taxul ma giseek ak njiitu réew mi ñu toog ab diir gisewuñu ba mu am at am benn émission bu ñu doon def ci RFM dalal ci l'ancien premier ministre monsieur Idrissa Seck mu am ay kàddu yu mu yëkkati ba ay rangooñ ba yëkkat taxul ma gisee président bi ah, ma gis ni lii la mu nar a jur naru baax. yow wàcc nga ba jóge fii ba jóge fii gisee wu ak président gisee wu ma ak moom. waxuma itam ne jëlee naa la fi man daal woo naa premier ministre woo na ma bon c' est un détail administratif mais c' est important ma jéem ko gis ne ko mbir mi kat dégg naa ko démb te dama ragal mu am ay conséquences yoo xam ne gënul ci réew mi je lui donne mon avis de manière très désintéressée ba tey ngaanguma sama situation te fasuma ko yéene ñu waxtaan ci loolu mu am yu ma dénk yoo xam ni itam wax dëgg yàlla daañu ci dellu siwaat te loolee mu ma wax dégg na ko moom keneen ka taxoon mu di ko wax wax naa ko ko ay yoon yoon yoon yoon vous êtes très intelligent mais il va falloir être patient un jour que ma dellu siwaat tojal leen loolu mais na jàpp ni ma leen ko waxee. mais maître accusation boobu est-ce que. layoon nga y c'est important non dama ne accusation boobu garaaw na ci wax. est-ce que layo nga ko ak président de la république bi nga xam ne mooy sa compagnon. moi la preuve que j'ai que cela li ma am ci firnde bokkul ci li jóge ci président de la république parce que jàkkaarloo na ak mom ma ko j'ai envie quand même ma comprendre qu'est-ce qui s'est passé. mu ni la lan. maa ngi ñëw lo bëgg lu may wax rek mu nekk loo xam ne mën nañ ko waxaat te moom mi ma ko doon waxal suñu borom may ko fan wu gudd lool ak capacité. bu fekkee am na lu ci dëng mu ñëw weddi parce que moom ma ëpp moyen de communication ma ne ko sëñ bi dama bëgg xam vraiment lan moo dox suñu diggante ba cëppaandaw gi mel ni je ne trahis aucun secret parce que tout ça je le dirai un jour ou je l'écrirai un jour et ça peut être imminent mu ni ma dañu dem mission Bruxelles nga bàyyi ma fa dem Bamako te xaw ma fan la jëm ma ne ko ak lan mu ne non c'est ça <laughs> mais j'ai trouvé ça tellement trivial ma ne ko mais cheikh bi bi may jógee Bruxelles hôtel cinq étoiles plus man ak yow ak beneen euh, israélite ñoo nekkoon di liggéey sur le dossier de la maison du Sénégal à New York ba heure bi trois heures non un peu moins trois heures et quelques du matin ma ne ko je dois partir parce que ëllëg à Bamako gannaaw ëllëg à Bamako dafa am réunion bu fa Nations Unies convoqué Union européenne Union africaine CEDEAO UEMOA Japon et Allemagne et le Sénégal joue un rôle essentiel mënuma d'accord ma wàcc c'est notre ambassadeur faatu na léegi moo ma gunge ma jël oto bi dem gaar ba jël train dem Paris jël avion Air France, 16h30 de Bamako. On n'avait pas d'ambassadeur à Bamako. ma n'y avait personne ma ko sauf un chargé d'affaires, qui était seul comme un moineau. man dama dama jaayante ne bu ma demee réew sauf ma ànd ak président war dëkk ci hôtel man ci ambassade bi laay dëkk l' ambassade dañ ko déserté dañ ko bàyyi foofu noonu lu yàgg kenn occupé wu ko waaye ñu ma noonu ma ne ko du ma dem hôtel on va nettoyer la la la résidence kiiwu jargoñ yi tout ça xet gi ñu nettoyé ko donc je suis resté j'ai dormi là-bas le lendemain ma ñëw ci réunion bi j'ai trouvé un haut responsable du Sénégal qui occupe la place du Sénégal à la Réunion c'était la première alerte je n'avais pas été informé de sa présence et quand je suis arrivé lui-même était surpris de me voir là-bas mag la yàgg na jiite réew mi ku ñu ràññee la te xam ko ma décalé tuuti mu ñëw toog ma déplacé drapeau bi te ko suñu diggante il a été élégant de ne jamais essayer de prendre la parole jéemu fa wax jéemu fa def dara mu toog ñu réglé suñu réunion première alerte ma ne ko sëñ bi bi ma waxee loolu ma ne ko mais kenn du jóge hôtel boo xam ni dafa bakkane ne ngay laal bouton rek li nga soxla yëpp ñëw nga di ko fa bàyyi di dem ko Bamako à 45 degrés à l'ombre di dëkk ci hôtel boo xam ne yaa ngi jargoñ yi yéenay bokk fanaan euh, ça n'a pas sens mais liggéeyu Sénégal ak man na ma ko jàppe woon jaral na ma lu ko raw donc tu ne peux pas dire que xamuloo fu ma jëm parce que xam nga ko wax naa la ko te bu ma jógoon Bamako dama ñëwoon ñëw Sénégal def fi ñaari fan yóbbu pèlerins yi doon dem y en avait pratiquement 7000 ma yóbbu leen màkk yow yaa ma wax nan laay def ba am la ñuy joxe pèlerins yi pour may leen añ wala ñu may leen reer foofu c'est une tradition pour le chef de l'État d'offrir un dîner ou un déjeuner ma dikkee ni ma en général c'est entre vingt mille ma wax ko ko ma suñu demee à la à Jeddah ñu laaj le euh, commissaire général aujourd'hui délégué général mu xool la banque islamique mu jox ñu xaalis boobu ñu mën ko jox et c'est comme ça que ça s'est passé je suis arrivé j'ai fait le pèlerinage tout s'est bien passé ñu def réception bi avec la famille Bourkhane tout le monde était là tout les pèlerins tout le monde a pris la parole am ñu commencé woon def ay mouvement de grève avant ma ñëw ma jël xaalis bi jox commissaire bi jox ma ko ma wan ko gars yi delloowaat ko ko ne ko président moo leen ko may reyal jusque là tout se passait très bien donc euh, moi je ne peux pas avoir été trafiquant de cocaïne quand je n'avais même pas aw ma woon sax ñaari dàll yoo xam ne ñoo niroo te ma moom ko nekkuma trafiquant cocaïne bi ma nekkee élève di xarmat nekkuma trafiquant cocaïne bi ma nekk étudiant nekk bitim réew di taxawaalu lu ne ma dugg ci nekkuma trafiquant de cocaïne bi nga xam ne ñu may dugal ci baro bi may waat di nekk avocat may xaar léegi ba nekk ministre des affaires étrangères yor kaddu Sénégal ci réew mi ak bitim réew di jànkoonteel ay Hillary Clinton ay Fabius et cetera et cetera chef d'état yi nga xam ni ñooy naatangoo président de la république am fu ñu ma teg boole ma ci seen équipe di ma jëloo ay PV ci seen réunion di ma may ndigal ma wax ci seen i tur bu fekkee président fi nekk ko ma xam ni vraiment kon man xaw ma li ma doon. maître en réalité l' accusation musul nekk da nga nekk trafiquant de drogue. dañuy wax ni da nga am relation. c' la même chose ah non euh, quand même différent parce que am relation ak ku nekk trafiquant c' est peut être ni un crime ni un délit. parce que defoo li mu def. est ce que léegi laaj bi John est ce que xam nga ko. mais je le connais sa xar ok mais non ne me dis pas sa xarit la mais je le connais trop bien je suis avocat ne l'oublie pas j'ai des amis que j'ai connus que j'ai défendus et qui sont des meurtriers condamnés par la suite j'en ai connu des trafiquants de drogue j'en ai connu des voleurs j'en ai connu des prostituées j'en ai connu des contrebandiers je suis un avocat je défends les causes qui me sont soumises et contre lesquelles je ne peux pas faire objection de conscience que je connaisse John Obi ou quelqu'un d'autre mais qu'est-ce que ça peut me faire ce que ça peut me faire ce que ci accusation bi vous auriez aimé que président de la République défendre la bu xibaar bu mel noonu ñëwee ci moom weg la ci te bañ a jàpp ni xëy na la ko ñeneen ñi wax loolu lay gëm le président de la République n'est pas obligé d'assurer ma défense doon naa quand même bëgg comme ni mu ma xamee ak ànd bi ñu ànd ak taxaw bi ma taxaw ci wetam kenn du ko laal mosuma nekk fenn fu ñu ko laalee te lijjantiwuma loolu te dégguma ci kàddoom dégguma ci kàddoom ci lii dégguma ko ci leneen tax na man ma xam sama bopp tu comprends mais terewul fu yëngoo rek comme ni ma ko defee boobu nu wax Idrissa Seck wax na loolu mu ko wax ci premier anniversaire u hmm. victoire wu président de la République ak ni ma ko defee waatee bi mu demee université ñu di ko sànni ay xeer mu nekk bés bu tiis bés bu naqadi ma forcé buntu palais ba gisee ak moom toog ak moom diir bu yàgg c'est-à-dire je ne le laisse pas tomber pour plusieurs raisons yoo xam ni duñu ko mën wax fii. et da nga yaakaar ni yow il t'a laissé tomber au moment où tu avais besoin de lui certainement. il ne peut pas me laisser tomber parce que je me suffis à moi-même et à mon à mes liens intrinsèques avec Cheikh Ahmed Bamba qui a souffert plus que je n'ai je n'aurais jamais souffert de ma vie. et qu'on n'a pas entendu brocher et qui a pardonné à ses ennemis et à ses kon foofu laa taxaw. léegi lan nga jàpp ne ci ci ak recul bi bi nga saytuwaatee mbir yi année yi di dem ngay waxtaan xëy na ñu ko jege di observer aussi entourage ni muy développé wu lan nga jàpp ne xëy na moo nekkoon euh, mbir mi dëgg-dëgg motivation bi parce que du yow rek gis nañ ci compagnon yi. Euh, ci premières heures yi gis nañu ñu ci bari aussi ginnaaw bi sori nañ ko de la même manière lan nga foog ne moom mooy problème bi. moi j'ai pensé que dama jàpp ne ci ñi nga xam ni ñoo ko seqoon xëy na bokk nañu ci ñi gënoon joxe seen bopp du woon ñun kese nag tudd nañu fi léegi Moustapha Cissé Lo jàmbaar pire la. Mm. ñu ngi ñaan suñu borom mu fëgg boppam. tudd nañu fi tuddaguñ fi waaye gis naa ko fi barkaati démb mbay Ndiaye. Mm. jàmbaar dëgg la Mahmoud Saleh suñu ko fi. Mm. mais am na ñeneen ñoo xam ni encore une fois suñu ay doom lañu. te su lu woon ñoom du ñu bouger parce que ñoom la ñu mën te sawar ko ci suñu wet ñun doon ñu ko mos a mën Ablaye Fall a ngi fi woon sànq Cheikh Mbacke tudd nañ ko sànq mais ma Momar Dia ils sont nombreux xale yu bare ñoom mën nu nangu ci ay xale yu ndaw mais ma jàpp ne xëy na foog na ne man peut-être bokk naa ci ñi ko war mën gêner ci yu mu war a mën a def parce que bu dee liggéey bi rek franchement comme disait l'ancien Premier ministre euh, Abdou Mbaye quand on s'est retrouvé à, à, à Addis Abeba ci funérailles yu Mélès ñu dem seeti les Sénégalais les Sénégalais sont bien organisés là parce que y a dafa bare organisation euh, yu rattaché wu à l'Union africaine aux Nations unies Sénégalais yi fees fa del ñu dajale leen kër Bassirou Sène qui est aujourd'hui notre ambassadeur en Gambie Abdou Mbaye me mais vraiment maître on dirait que vous êtes un diplomate de naissance peut-être mais quand on est avocat il Il faut juste avoir le sens de la mesure et de l'écoute. Peut-être que je gênais. Hein. Une anecdote qui, ne, qui, ne, qui xam naa benn bés daañu waxtaan. incha allah wax lu bare yow sama waay sama waay ngeen donc. mais mais mais wax dëgg fa yàlla aussi. Euh, toogaay bi ngay toogee xëy na ci confort nga nekk ñu fàttali ko médiature mandat bi ngay def kenn mun la ci jëlee ci ni ñu ko jàppee wax ji léeg-léeg mu dëgër. mais amoo pexe ci rapport yi nga wax ni sax yaa ngi ko bëgg jox te amoo yoon pour dem ci président bu demee noonu lu tax doo ko delloo ay bagages am. Ah, que mënul yomb. dama jàpp ne joxe rapport yi des na parce que pareeguma sama mandat ñett yi des deux mille vingt deux mille vingt et ba ci digg bi dayal deux mille vingt et un on va faire jusqu'au mois de juillet parce que je termine. le 5 août ñetti weer ci des waaw. ah xaaral rek mm-hmm. rapport boobu pare na déjà. le rapport des deux dernières années combiné en un seul. communiqué nañ ko ko ba pare président nag doo ko jox ba pare di ko soññ da nga koy bàyyi ak sagoom bis dina am app bi mi ngi ñëw bu fekkee jotu ko ma bàyyil ko fa ay rapport am ki may wutu ñu consigner ko dans le PV de passation de service ñu jox ko ko mais nekkuma foo xam ni amoo li nga bëgg rek da ngay gën di la porte ah non dénk na ma ko parce que c'est dans ses pouvoirs de nommer aux fonctions civiles et militaires mais moomul réew mi mais li mu la jox moom moo ko moom quand même. non moom ko la laaj ko mu ndox ko mu jëw jël ko. ils ont essayé ils ont essayé au moins trois fois mënu ko c'est pas possible ba mu ko xamee dafa noppalu ci loolu. mais bu ma ko lu ce mooy sa confort aussi. xam ma wax la maa ngi loi moo ko tënk. waaw nga jàpp ni mënu la fee jëlee yow. loo ko waroon a waxtaan ci biir néeg ci penc mi da nga ko ko wax. comme amatoo jote ci moom non non on on s'est réunis il y a un an et demi à peu près mu invité ñu añ këram y avait tous les pontes de l'Alliance pour la République j'étais peut-être man rek maa fa nekkoon ku bizarre parce que bokkuma woon ci appareil politique APR ci jamono jooju muy jël ay paroles def tour de table bon moi comme c'était politique j'ai pensé que je n'étais pas trop à ma place il est là assis Aminata Tall mi ngi nii man maa ngi nii euh, Mimi Touré ma nga ne non Boun Abdallah Dionne mi ngi nii Mimi Touré ma nga ne le reste c'était tout le monde ah tout le monde ils font de table expliquer les problèmes du parti il a tiré sa chaise un peu i m'a dit mais Samba il faut que tu parles moi je suis pas à ma place il si je dis bon monsieur président dégg naa coow yi ak problème yi fi am si vous en décidiez tel que je le suggère tey mën naa bàyyi médiature ma ñëw jàpp ci parti bi parce que suñu yëf la mu bañ a sooke ñu tegal ko ci yoon bi tey mën naa bàyyi médiature léegi ci jataay bi on était plus de trente ils sont encore là par la grâce de Dieu tous vivants et en bonne santé donc je ne tiens pas à la médiature c'est une belle institution je vous ai dit am ñu ma fa jiitu ñoo xam ni ay ponkal la ñuy yore réew xeebu ma ko soofantalu ma ko cofu ma ko mais nag teguma ko sama ndoxu bakkan parce que damay liggéey bu may paree cinq aut balaa le 10 nga dégg ma tribunal comme ni ma defoon bi ma jógee affaire étrangère toog tuuti ma xëy suba teel wax woo ko ne damay dem constituer pour défendre Karim Wade. Mhm. je suis libre la profession le métier que j'ai choisi a pour soubassement la liberté mhm. liberté boobu ñu am ñu moo ñu ñu mooñaale ñun moo taxoon ñu mën nekk ci wetam nañu ci nekke woon mhm. la doon bañal président Wade nag ba di jàmbaarloo ak moom ci yar ak tegin moom lañu war a mën a def ak moom bu fekkee dafa indi beneen doxalin ci biir loolu wax ak moom mais c'est tout à fait normal nom de Dieu président la République n'en ne pas moins un être humain et quand boo amee ci moom cofeel am ci moom yéene ngeen ànd doxandoo mbir mais doo ko ñooru eh, léegi maître bi ngay ànd ak moom di doxandoog moom mbir euh, ki nga ki nga ki nga jëflanteel le candidat ki nga gis ko aux ngeen màggandoo ni nga ko waxee nga gis ko mu am ay difficultés nekk ci jamono jafe-jafe ngeen ànd euh, ngeen bokk aussi à un moment donné appareil bi su maître Abdoulaye Wade est-ce que da ngaa gis ne dafa pouvoir daf ko soppi wala il est resté le même. Non, il n'est pas resté le même du tout. Mon frère a changé. Et je pense que c'est tout à fait normal. Il fait face à des rigueurs d'exercice du pouvoir, de l'administration, de l'économie, du social, dans un pays complètement, parfois même en déliquescence, pourrait-on dire, de que dafa sooke ci lu bare. kon am na circonstance atténuante. oui mais pas beaucoup hein <laughs> pas beaucoup pas beaucoup je pense que moom ci boppam sax soxlawul yërmande ndimbal la gën a soxla. alors est-ce que est-ce que aussi reproché nga ko parce que euh, Abdoulaye boo fàttalikoo élection locale 2014. Hmm. élection locale 2014 ni mu demee woon Saint-Louis dafa xawoon yéeme. Hmm. entre Braya moom ak Mansour Faye. Hmm. est-ce que foofu it da ngaa jàpp ne taxawaay bi mu foo taxawee dafa jéggi dayoo. wala ndax li nga doon xaar ci moom en tant que recul en tant que président de la république def na ko fa 2014 euh, fekk na man je n'étais plus actif à l'alliance pour la république parce que bi ma nekkee Saint-Étienne ci laa def benn déclaration ne gis naa président de la république balaa mu yàgg mu génn ci parti bi jox ko keneen foofu ci guddi gi xaaruñu sax ñu génne ma secrétariat exécutif ma defaat beneen déclaration ne président de war na yeewu parce que bu yeewul heure bi ça va être trop mm-hmm. am ci ñoom ku ko jege lool ku ma tontu ne ma yow xamoo li ngay wax président fajar la yeewu ma xam ni ñii ak man bokkuñu la ñuy wax ak fa ñuy waxe ñu génne ma ci comité directeur donc bi may dem en 2014 je suis allé vraiment par bravade je ne pouvais pas accepter mënu moo nangu ñu jël kenn rek parce que gorom la cuub coppet imposé ñu ko à Saint-Louis j'ai dit non je ne le fais pas on a tout fait pour que ma bañ ci dem ma ne danaa ci dem sans moyen j'avais une petite voiture que mon ami Mamadou Diop conduisait avec mes amis on y est allé sans espoir mais comme j'avais des représentants dans tous les bureaux de vote au moment du décompte j'ai fait un second décompte qui a confirmé la victoire de Ahmed Fall Braya ci seen chaîne fii RFM TFM ñoo ma Saint-Louis ma ne leen dans mes PV que j'ai reçus de tous les bureaux de vote Ahmed Fall Braya est vainqueur su guddiwul woon dinaa jàll pom bi dem Gendar naan ak moom ataaya ndokkale ko ça m'a valu toutes sortes de commentaires mais vous avez ça ne peut pas me faire grand-chose il est intervenu en personne la police s'en est mêlée Saint-Louis a été barricadé moom dafa dugal loxoom ci élection yooyu oui sëñ du jeex du xaaj yow bakkan bi la ci tegoon mais xam jàpp naa ni léegi il a compris avec ce qui se passe à Saint-Louis que il va y avoir des effets qui vont lui être imputés s'il ne fait pas attention. Maître Man, oui. Euh, c'est un honneur de de vous avoir sur ce plateau. Je vous bi man dama bokk ci ñi lay suivre depuis 2012 avant euh, son excellence monsieur Macky Sall di falu. mu am benn plateau boo xam ne entre les deux entre les deux tours boobu euh, président Macky Sall moo ngi war a dem deuxième tour euh, lépp rek moo ngi doon wane ne que mu am alliance que mu ñàkk am alliance doon na gagné élection yi ma gis benn taxawaay boo taxaw ci dëggu ci dignité ci euh, objectivité man bettuma ce six mois sept mois auprès du président en tant que ministre parce que am na yenn nit ñoo xam ne ci valeur yi ñuy incarné dëgg neexul très souvent pour ñu mën a rester à des postes comme ça day day day jafe mais man na ma bëgg ñu ñëw euh, nga nga defal ma benn évaluation ci recul démocratique bi ñu am fii ci Sénégal euh, dañuy màgg am liberté d'expression euh, à partir de 2012 ñu gis ne dañoo am président boo xam ne moo njëkk ne il va réduire l'opposition à sa plus simple expression gis nañ le cas Karim Wade mu jaar par li nga xam ne mooy CREI yi euh, ñuy wax ne benn juridiction bu obsolète la gis nañ le cas Khalifa Sall gis nañ tey euh, le cas récemment de de Sonko mu mel ne tey euh, démocratie dañ ko perdre ci réew mi kenn amatul droit dafa mel ne samp sa ndëdd pour war a laaj réew mi tey nan la ñu war a mën a def pour juboo ak ak suñu bopp ñun en tant que jeune xaw nañu jaaxle ci ci ci wàll boobule. ok question intéressante hein Pape. oui koy aborder. est ce que est ce que déjà y a recul ou pas. <laughs> <laughs> alors moi je pense qu'il n'y a pas de recul du tout parce qu'on est là depuis trois heures de temps on dit ce qu'on veut hein. demain ou lundi je vais travailler aller à mon bureau comme médiateur de la République on ne va certainement pas changer les serrures mm-hmm. on ne va pas m'interpeller mm-hmm. on ne va pas me révoquer sauf à prétendre que je suis devenu fou. Maître, à contrario, Boubacar Seye n'a pas di plus que ce que l'ambassadeur de l'Union européenne lu mu wax ba lim ne 200 milliards la ñu fi dugal 2005 ba 2021 avec une montée en puissance je veux être précis entre 2015 et 2016 Boubacar Seye mi ñu tëj waxu fi lu ëpp loolu kon boo jëlee exemple ci fànn bële am na yeneen exemple yoo xam ne aussi day wane ni am na loo xam ne nit sañatu ko wax ci réew mi wala boog leneen fekk la ci Abdallah man egg pare ma fenn wax dëgg yàlla maa ngi ci soxna si ba léegi waaye moom moo motte léegi moom da bàyyi sama xarit buuba sëy mu noppalu ba ba nga dellu si waat waaye doo ma jëlee fii rek sànni ma fee comme ça foog ni laa ci génn non non non du sotti donc man jàpp naa ni y' a pas de recul il y juste différentes manières de combattre on a vu l'avènement de mouvements devenus beaucoup plus puissants que des partis politiques qui sont tous entrés en déliquescence nit ñi gëmatuñu parti politique gëmatuñu politicien parce que gis nañ ni à un moment déterminé ñi nekkoon fii ñëw nañu fekk ci pouvoir bi ñi doon résister jënd nañ leen indi leen jox nañ ay position et cetera et cetera donc man jeune qui croit que le Sénégal peut être meilleur je ne sais plus à quel saint me vouer parti me donc je cherche je me cherche alors il y a au moins quatre ou cinq mouvements collants aux réalités populaires et qui ont semblé engranger euh, ñu gàddu xeexu nit ñi jëm ci soppi doxalinu réew mi xale yi amatuñu repère ils vont là-bas bien entendu parti politique yi amoon ñu gën di doolee ko chaque jour mu am benn wala ñaar yoo xam ne sos nañ ko mais je suis désolé de leur dire mes chers amis que j'ai fréquenté assidûment tout au long de mon parcours politique nit ñi gëmatuñ leen parce que vous ne pouvez plus changer de discours koo àndal tey ba ngeen dox dara bu subaa mu rocceeku dem ànd ak pouvoir bi. Mm-hmm. loolu sax moo tane waaye dañuy wax ak yow léegi di wax ak ñee di wax ak ñii di wax ak ñee donc yooyu moo tax xale yi gëmatuñu loolu. Mm-hmm. maintenant boo nekkee président de la république yor réew mi gis ay mouvement yoo xam ne ñu ngi bëgg ëpp doole parti politique bi ñu ngi lay bousculer sës nañ la ci mur bi mais da ngay jàmbaarloo ak ñoom bu doon yow nga jàmbaarloo ak ñoom bu doon man ma jàmbaarloo ak ñoom. naam balaa ngay egg foofu di nga waxtaan ak nit parce que il faut le prendre très sérieusement xam ni ñoom itam dañu am wàll ci réew mi surtout maintenant avec l'avènement des candidatures indépendantes mun soxlawul parti pour nekk candidat ci dara nga war leen woo woo yaanaam bu ma tudd mouvement yi mais il faut les appeler t'asseoir avec eux Laurent Fabius mi mu ñëwee fii sa première visite mhm. ma accueillir ko dafa fekk aéroport rek ni ma mais monsieur Cissé je w aller voir Y'en a marre ak Ah. ma ne kooma <laughs> man xaw moon sax fu siège yu Y'en a marre nekk ah, man ma ak Guédiawaye ma ne ko écoutez je n'ai je n'en ai pas parlé avec le président Macky donc je ne peux pas vous accompagner mhm. mun ma non non c'est pas la peine j'y vais seul bu deeku on ne s'est revu que quatre heures plus tard dans la nuit à la résidence de l'ambassadeur de France mhm. donc ce sont des mouvements qui aujourd'hui ont une ont une prise un ancrage international ah oui. et la justice et la justice est-ce que ak euh, mouvement yu bëri doole yooyu est-ce que bu fekkee ne damay xool prolongement question Yacine est-ce que dafay am est-ce que est-ce que le sentiment supposé vrai ou pas de l'instrumentalisation de la justice ndax loolu seetlu nga ko ci ci ci ci ci magistère président Macky Sall alors man seetlu naa ne quand même bien avant le magistère du président Abdoulaye Wade il y a des juges qui sont très sensibles aux désirs et desiderata du pouvoir exécutif séparation des pouvoirs boobu ñuy wax assemblée nationale justice exécutif ce n'est que fictif ça vraiment ça n'existe pas parce que si le chef de l'État est président du conseil supérieur de la magistrature s'il nomme à différents postes s'il supervise les mouvements des magistrats daf ci am doole donc un magistrat qui n'a qui ne prend pas au sérieux sa mission et sa fonction est forcément très attentif aux sirènes du palais mais il en est des magistrats qui savent tenir tête parce que ñoom ils savent que la décision qu'ils vont rendre sur le papier en tête il est écrit au nom du peuple sénégalais moo nekk ci en tête bi et ils y croient et ils sont jeunes et ils sont courageux et ils sont héritiers de dignes magistrats qui aujourd'hui disparus leur ont laissé un héritage incommensurable. Mm, xam nañu seen bopp gëm nañu seen bopp. Mm, donc nañu góorgóorlu ñoom tam ñu euh, ñu xataraayu. Mm. ak ci keps mu ñëw maa ngi ñëwaat <laughs> ñu ngi lay euh, nuyu euh, man fi ma bëggoon a ñëw rek mooy sànq sa discours dama la dégg elu yàgg sax ngay wax ni am nationalité bi mënut a gën beneen nationalité. waxaatal. am nationalité sénégalaise ak am beneen nationalité doomu aadama dafa war a am cër ñu ko war a jox surtout buy dund à l'étranger. yow nga nekkoon ministre des affaires étrangères euh, ñu buggoon rek xam actuellement euh, chaque fois dañuy euh, gis ni dafay am ay doomu Sénégal yoo xam ni ndax am dee sax du jaas fu mu la fekk rek mu ñëw mais dañu gis doomu Sénégal yoo xam ne comme ci at mii ñu génn rek am na liste bu ñu am bu ñu leen di lim des fois dañuy génn àdduna ci condition yoo xam ne dafay nekk condition yu douteuse wala boog dañ leen di faat mais souvent bu ñu ciy jël ci pourcentage yu ñu ciy élucider du doon yoo xam ne yu bari la euh, ñu bëggoon rek nga wax ñu tey en tant que expérience bi nga xam ne am nga ko comme ministre des affaires étrangères ban politique la ñu war a mën a teg ndax ñun ñoo war a gën a mën a euh, fonk suñu bopp joxe gëdd ba nga xam ne euh, dinañu xam fan la ñuy teg ba faat ñu du yomb bu mel ne rek faat doomu Sénégal daal day reste impuni jërëjëf Kebs maa ngi lay maa ngi lay ndokkeel di la féliciter ci liggéey bi ngay def dans la diaspora mhm. je parlais tout à l'heure avec Awa Ndiaye et son mari Ndiawar ils sont à Tenerife qui travaillent beaucoup avec les services de l'immigration ñu may wax li nga xam ne yéen a ngi koy waaj te Awa di jàmbaaru fàkk tëdd moom Ndiawar ñoom Momar Dieng Diop ci la ñuy xëy ci la ñuy gont suba ngoon guddi bëccëg autant à Tenerife qu'à Fuerteventura donc yow da nga am légitimité pour wax ci affaire bi mm-hmm. waaye nag li ma jàpp mooy bakkan moom suñu borom moo ko moom mm-hmm. premier élément bu fekkee dem na ba egg tàmbali liggéey wala liggéeyul mu dem ci béréb yoo xam ne ñàkk xam réew ma na mu tëddee tax na mu dem fa wala mu dugg ci activité yoo xam ne ñàkk xam réew ma na mu tëddee tax na mu dugg ci ba yàlla ënd ab dogal ci moom mu faatu ñàkk préparation de nos candidats à l'immigration bokk na ci loolu ci lu bare dañu xëy dem am paas dem ci dëkk yu amul visa wala ñu wut visa wut ku leen ko wutal ñu am dem taxul ñu préparer leen ca dëkk ba ca làkku dëkk ba ca habitude dëkk ba ca et cetera bon y a des choses comme ça qui arrivent naka la ñu mën a fexe ba loolu ba ñu mën di élucider faatu suñu mbokk yi nekk bitim réew mooy ñu doter le ministère des affaires étrangères de moyens suffisants pour recruter des avocats et des enquêteurs parce que dans beaucoup de pays police day def enquête yow itam ngay def sa enquête bopp ñu boole ñaari enquête yëpp policier bi taxaw sa enquête yëpp sa détective privé taxaw ñu boole ñaari rapport yi xool ban moo ci gën yenu maanaam bu fekkee moyens yooyu amul consulat yi amuñu moyen pour jëlee leen avocat bu fekkee prison bi dafa sore amuñu moyen sax dem seeti kenn ci ñoom koo xam dañ ko jàpp parce que y a pas seulement que les am na ñoom bu ñu faatoo pour indi leen c'est la croix et la bannière seeni mbokk du ñu xam sax ban interlocuteur la ñu am mm-hmm. man avec les rapports que j'ai avec les fonctionnaires des affaires étrangères mais j'arrive à faire rapatrier beaucoup de personnes qui sont décédées à l'étranger ci seen ndimbal ñoom ak kàttanu suñu borom mm-hmm. mais ce n'est pas ipso facto que quand il y a un meurtre il faut nécessairement l'élucider mm-hmm. on a un membre très proche de notre famille dont le meurtre est toujours laissé non élucidé. Mmh. L'enquête se poursuit, ça peut prendre le temps que ça prendra, la perte est, dé est définitive, la plaie est encore béante, mais c'est cela aussi la vie quand on décède à l'étranger. Mmh. Même Sénégal fii day am on a une excellente police parfois mu am ñu faatu c'est très compliqué. Mmh. Mais bon on est on est moins sophistiqué quand même. autant dans la délinquance que dans les moyens de police pour résoudre un conflit. ñaari. mais mais globalement li KEPS wax est-ce que les Sénégalais de la diaspora aujourd'hui boole nañ leen dans l'élaboration des politiques publiques est-ce que yombalal nañ leen retour bi est-ce que jël nañ leen en charge de façon vigoureuse boo xoolee surtout contribution bi ñu am ci sunu réew. j'aurais préféré que mon ami euh, Moïse Sarr soit là. pour répondre voilà. à cette question. Parce que par élégance, je ne peux pas parler d'un département que j'ai eu sous ma charge. du ma sax dem affaire étrangère du ma fa sax dugg su may romb su ma sañoo sax du ma gestu parce que bëgguma am quelque niveau d'influence ou de quoi que ce soit c'est des amis qui sont là-bas que je vois avec lesquels je m'entretiens mais permettez-moi de ne pas gratter ce fond-là euh, sauf de manière générale. au-delà de jëwriñ bi nga ci nekkoon. Euh, am na loo ci jot a dund en tant que waajur. waxal ak sa euh, am na loo ci du loo ci jot a dund quand en tant que waajur ci jafe-jafe yi nga xam ni euh, Kebs mu ngi koy wax surtout par rapport ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi bi ngay dund période boobu sénégalais yëpp nga ko dundoo ndóol. mais en tant que waajur am na ay kaddu yoo ci mën a wax. ndax ba léegi ñu nit xamuñu fan la mbir moomu la mujjee peut-être y revenir dina xaw a triste mais mënul ñàkk itam solo mhm. kooku nga xam ne suñu borom jël na ko mhm. yàlla ñu ko joxoon rek mhm. moo décidé ci bésu màggalu tubaa ci bés bi nga xam ne juddu woon na ci juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar ci gannaaw mu ne tey la koy jël bisu màggal la juddu woon waaw te bisu màggal la faatu waaw parce que non le 16 octobre la juddu woon le 16 octobre la faatu tombeek su màggal daaw jég comme un ah, hasard faatu ci hôpital bi nga xam ni foofu la juddoo ku la ni mettiwul rek waxuloo li taxaw li nekk la dund ko waaye nag mënuma loolu la ñuy waxtaane souvent suñ nekkee ci kër gi yàlla mënuma dénk ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur xale yu bare yu maaseeg moom wala tuuti mag ko wala féete ko ndaw tuuti faatu pendant maa ngi foofu nekk en charge ñu fexe ba jël leen delloo leen seeni njaboot te wax dëgg yàlla tiis na ma bëgg jël sama faatu doom teg ko sama kanam parce que gënul ñi nga xam ni ay doomi jàmbur lañu te faatoondoo bitim réew naam nag ngaañ mi ak góom bi moom day nàcc saa su nekk waaye mënoo gis loolu parce que am na ñoo xam ni seeni bos a ngi nàcc te yaa ko war faj am na ñoo xam ni seen rangoon ñi ngi tuuru te yaa leen war dëfal donc da ngay jël Ablaye teg de côté di ko xool di dugg sa galerie di gis ay photom di dégg ay wayam di dégg baatam mais ça n'a pas plus de valeur ëppul valeur keneen ki nga xam ni ay way juróom gisatuñ leen ces enfants là qui meurent dans la mer di dundal jën yi di dugg ci gaal yi dem doo leen gisati xamuñu ndax egg nañu wala egguñu bu ñu feebaree ñu sànni leen yor leen ci biir géej gi mais ñooñu ils ont des nga jur sa doom itam fii mu dem tukki ñu woo la ne la faat nañ ko tiire nañ ko bal rey nañ ko loolu itam metti na. mais ju ma fu mu fu mu foo natt ci metti rek. <laughs> metti na ëpp na ko moo tax sa bos da nga koy teg ci suuf ba di ko waxtaanee ci sa biir kër ak yu mel nii pour mu servir peut-être de leçon. Mhm. ou d'exemple à ceux qui pensent que ils ne s'en sortiront jamais. Mhm. parce que am na ñoo xam ne seen doom dafa gaañu bitim réew. ñu nekk dans divers états dañuy woo sama soxna tout temps bu ñëwee rek avec sa manière son calme sa sérénité ñoom dañu daal di defalu complètement dañu daal di wàcc carrément ma xam ni rek Abdoulaye n'est pas parti en vain parce que c'était son style c'était un soldat il était dégourdi il chante on lui a chanté happy birthday c'était un grand fou mais un fou heureux et je pense que les chansons qu'on a faites avec lui le soir de sa mort il est décédé le matin le décalage horaire bon continuerons de l'accompagner et Touba bi ñu ko denc jébbal ko sëñ taxa alalu sëñ Muntaxa jiitu ci ñaanam ci ndox jiitu ci ñaanam ci ay xaatim jiitu ci ñaanam ci cangaay jiitu ci am mën nañu am yaakaar ci juróom ci ñaar fukki at ak juróom ñaaram yooyu mu am te taxul mu def Sénégal lu bare mbooloo moomu nit ñi yéen ñëw manifester seen sympathie e tout ça euh, ñun ñoo leen war a fay ñoo leen ameel bor boo xam ni du raaf du fay. lan moo tax histoire yooyu souvent du mujj fenn li ñu faat ci ay doomi Sénégal bëri na mais toujours quelques années après dañ lay wax ni mujjul fenn. c'est ce que loolu laa wax ci njëlbeen parce que moyen yi nga xam ne Ablaye c'est autre chose il est américain. Mhm. il est soldat. Mhm. la police américaine l'armée américaine fera son travail calmement. Mhm. parce que dëkk bi mujj juddoo te loolu am fa. gis ngeen daaw rek amoon na kuñ faray mu George Floyd mm-hmm. bërkaati démb la ñu soog a atte alkaati bi nga xam ni moo teg tànkam ci loos wi mm-hmm. ba kooku faatu mm-hmm. donc pendant un an et la police n'a travaillé que sur ça te procureur général bi nga xam ni moo yore état boobu sunu xarit la daawul jóg suñu kër Keith Ellison noir la mais noir américain la kon le sénateur léegi ñëw na mooy procureur général de l'état du Minnesota xëy na bokk na ci nga xam ni ay balaa muy yàgg di nga ko dégg ci yeneen. mais xam naa ni jàpp na donc woowu ko di ko pression di ko wax sama doom sama doom non no non non jàpp naa ni bu ñu bëggee réew mi rek nañu tolle la ñëpp bu ñu jégee gisee naqaru kenn. ñu teg suñu bos ci suuf. defal mhm. kooku. waaye mhm. maître ñun suñu problème principal est-ce que du problème moyen tamit ndaxte population bu ñuy jooy pauvreté la ñuy jooy liggéey amul. lii amul laa amul bu fekkee même ba suñu doom yi bu ñu leen faatee ci biti lii tax duñ ko élucider problème mu moyen la est-ce que ñun suñu xeex principal warul nekk jéem a xool nu ñuy génnee ci pauvreté bi ñu nekkee nii. pauvreté bi ñu nekkee. ak nu ñu ciy génnee sax. faut clarifier hein. je suis désolé hein. je suis un peu dur d'oreille. <laughs> je suis un suñu problème principal du problème moyen. au niveau local. ou au niveau interne ou à tous les niveaux. partout à tous les niveaux que ce soit okay. au niveau local wala international parce que bu ñu dee xool international bi tamit euh, tout le temps ñi ngi leb ñi ngi yaakaar ci ñeneen ba tax na ñoom fi ñu bëgg ñu xool ñun fa la ñuy xoolee donc euh, problème yi ñu yi ñu am yëpp est-ce que loolu moo ñu ko teg bu ñu dee xool. xam nga xam nga ndóol moom day tolloog noo xamante ni la ngay am bu weer wi deewee hmm. dans les théories économiques générales. bu weer wi deewee la ñuy teg ci sa loxo boo ci dindee mën nga ci mën nga ci lekk naan ci sangu ci fay ci sa luyaas mën nga ci économiser mën nga ci investir ba pare mën nga ci dimbale keneen ku la soob boo waññee Sénégal ñi nga xam ni par leur revenu ils arrivent à satisfaire leurs besoin en épargne leur besoins en consommation leurs besoins en assistance par rapport à leurs proches leur besoins en investissement doo ci wàññi lu tolloog fukk sur la base de leur propre salaire loolu moom mooy loo xam ni moo fi am te li ëpp ci suñu réew yi amuñu amuñu revenu le revenu égal à zéro Y égal zéro mais la consommation moom c'est toujours positif même boo amul revenu di nga naan ataaya di nga sol mbubb di nga ko fóot di nga jël car rapide di nga sol dàll di nga sol yére di wattu di nga di nga di nga di nga ça c'est de la consommation positive supérieure à zéro mais le revenu matewu ko parce que amuloo ko. Euh, léegi. Euh, dañuy te ba tey dégguñu enquête ubbi nañ ko pour élucider ces affaires là pour yow xaw ta yéex en tant qu'avocat. alors pour man loolu xam nga ku fekkewul enquête bi ku jàngul dossier bi mënul xam enquête bi fan la toll. toi tu es une grande chroniqueuse judiciaire tu sais bien que si tu ne soo jegewul dossier bi mënuloo xam lan moo ci nekk jàpp naa ne ñooñu faatu mënu leen bàyyi ñu faatoo noonu rek par perte et profit euh, seeni waa kër romb euh, état bi joxe sëriñ bi joxe rek ñu ne saye non il faut que yoon dox ñu xam ne ñun kat ñiy dund di dox bu ñu dara dalee am na ay takk der yoo xam ni daañu xëy suba guddeeg bëccëg ak ay magistrat lijjanti kan moo def loolu ci ñun. donc mënul gaawee noonu ah, ça s'est passé il a un mois et demi. est-ce que est-ce que est-ce que tey jii au-delà des problèmes yi nga xamante ni ñoo ngi koy décompté di ci duut ah, baaraam problème yi bari na. Euh, euh, liñ ci defut xëy na euh, am na lu ñu ci def am na lu ñu ci defut lu bari. par rapport ak xëy na promesse yi ak naa li ñu amoon. de yoonu yokkute ba PS ba PAP 2A. ndax jàpp nga ne joyanti mën na nekk ci ñetti at yi nga xamante ni jàpp nañ ne moom moo desee le président de la république wala ndax euh, fi mu ne nii kenn mënatul soppi doxalin. oh man jàpp naa ni incha allah rabbi war nañ ko mën a jubbanti joyanti léegi maa ngi ko soog a jàng fan yee war nañ ko mën a jubbanti waaye dañ koy accès à nouveau autour de trois ou quatre domaines. qui me semble essentielle l'éducation la santé pour moi c'est extrêmement important un problème bon, c'est bon. Non, c'est bon. pour moi c'est extré... il faut que j'écris moins alors pour moi bon. c'est extrêmement important que le domaine de l'éducation toutes langues confondues l'éducation française éducation en langue arabe d'art moderne et tout ça qu'on a su on arrive à gérer euh, la jeunesse sénégalaise avec des écoles vocational schools, des écoles techniques qui préparent à des emplois. Il faut que dem bi ak dikk bi di yomb il faut que nit ñi am lu ñuy lekk les denrées de première nécessité on doit tout faire pour les produire ici et si nous devrions les importer qu'on les qu'on au prix coûtant la réduction du tarif de l'électricité du carburant on ne peut pas payer plus que le Mali, alors que Mali vient prendre son carburant ici à Dakar et le transporte. Ça n'existe pas. On a de grands pays pétroliers ici. On nous dit qu'on a du pétrole, mais qu'on nous le montre. On nous dit qu'on ne l'a pas exploité. D'autres disent qu'on exploite depuis 1960. Des images ont circulé il y a quelques semaines. Mais il faut qu'on sache et qu'on nous associe. Je suis persuadé qu'avec l'ITIE, que dirige ma grande sœur, euh, Dr Awa Maricol, on arrivera à davantage de transparence, à faire payer les pollueurs, à désintéresser les populations locales dans les terroirs desquels on a trouvé des jugements de, des gisements de pétrole et d'autres ressources et d'autres ressources. Je pense que war nañ ko mën a lijjanti mais dans le grand ensemble l'élément macro ça il faut mettre de côté. est-ce que poste premier ministre dafay war da nga jàpp ne dafa war a ñëw dafa war a ñëwaat poste premier ministre beneen bi mooy ndax da nga jàpp ne dafa war a clarifier définitivement. sa position par rapport au troisième mandat Quand le président ah. Moi, je pense que le président, et c'est lui qui gère hein, en dernier ressort, il a fondamentalement besoin d'un premier ministre. L'administration du pays n'est pas l'affaire d'un seul homme. On a beau être un, élème, un, un, un adepte de l'accaparement, mais c'est énormément de travail. Hmm. Énormément de travail. Ce n'est pas seulement Dakar. C'est Rosanto là-bas dans le Kédougou. C'est le Ferlo. Des villages qui, boo xam ni sore na booru talibi vingt 27 kilomètres ngay daw dugg ci biir suuf si bu fekkee du nawet bu dee nawet moom bokkoo amul ndox amul courant amul tali amul dara mais ma nag les aspects important de l'instauration de la paix en Casamance cela fait plus de 30 ans, 40 ans, 41 ans, mm -hmm. qu'il y a le désordre en Casamance. Mm -hmm. Je mm-hmm. disais quand j'étais ministre aux Affaires étrangères, je suis allé, parce que l'Union gérait le centre anti-mine. Je suis allé en visite foofu gis xale yi seen tànk yi dagg ay xale yu jigéen seen loxo dagg mm-hmm. mais nga xam ni ñii seen àddina tukki na mm-hmm. ñu direeku ci suuf si ko ci may puus puus day mel na yàllaa ñëw ci moom Et je disais, et les cassettes sont là, on était en 2012, je disais, 30 ans plus tard, 30 ans trop tard. Si nous devions quitter le pouvoir et laisser le problème en Casamance sans solution, nous aurons fondamentalement échoué. Je l'ai dit. Et je continue encore d'y croire. loolu rek doy na chantier ak wàññi dund bi ak dem beeg dikk bi lijjanti njàng mi ak wér yaram bi loolu doy na chantier ci ñetti at yi ñu ñëw. le mandat. le mandat c'est son affaire moi je l'ai entendu dire qu'il ne fera pas de troisième mandat ñun ñëpp on l'a entendu dire ça je l'ai entendu dire on me demande de la caméra je l'ai entendu dire que c'est de son fait et de son gré qu'il a fait introduire dans la constitution la limitation du mandat à deux loolu ñu ñëpp dégg nañ ko. mais ba tey kenn ci ñun déggagul mu ne danaa def troisième mandat même si tout semble s'y prêter ñun nag lañu jàpp mooy dañ koy xaar ba mu wax la mu waxoon bëgg ko soppi su boobaa waa Sénégal daañu def la ñu defoon xarnu bi xëy na du la ñu yoroon waaye même chose comme moom moo wax lii bind ko urbi et orbi mu wër àddina yépp ne yooyu dootu fi am dakkal na ko ci Sénégal nañ ko jàppe loolu on le prend au mot yàggatul laaj nañ ko pour mu leeralaat nag mu ne waxatuma nii wii nii noonu mais pourquoi ngeen di ko laaj parce que moom nee na deux mandats dootu fi amati wax na ko bind na ko mu ngi ci suñu constitution nul ne fair faire plus de deux mandats consécutifs amul Ablaye mhm. amul kenn kenn laa wax du kenn koo xam ni mën na defati ñaari mandat yu tegaloo xamuñu mandat bu njëkk bi ñaata at la ba ca topp ñaata at la ce n'est pas notre problème c'est le mandat qui nous intéresse. la durée bàyyi ma eggale bi yow tam yow vraiment. d'accord allez-y allez-y non mais ça fait vingt ans mu lay xaar sax. oui mais il n'a pas fini parce qu'il réserve il réserve quelque chose. <laughs> am na munition pour dire aux gens que un moment j'avais perdu la tête. moi je pense que vraiment beaucoup plus sérieusement que je tiens le président à ses mots dès lors qu'il a voulu inscrire dans la constitution. que nul ne peut plus faire de plus, nul ne peut faire plus de deux mandats à la consécutif cela me suffit amplement qu'il revienne maintenant le répéter vraiment il faut le tenir à ses mots et puis le laisser tranquille quoi juste un complément d'info par rapport à Awa Aïcha man dama bëgg a ñëw rek ci wàllum compagnonnage bi sànq yaa ngi doon wax naan ñee ànd ak Macky Sall ba muy door ak itam ñeneen ñu ñëw ko wër tey gis nañ ne ànd na ak président Idrissa Seck loolu nekkoon na yow loo euh, loo bëggoon ndax da nga jàppoon ne ay nit ñu xamante fasante ko lëre bu yàgg am na sax ñu ne ànd bi li nekk ci suuf les raisons de se ces retrouvailles na sont pas sincères léegi ci weneen wàll ñu gis ñoo xamante ne ñu ngi woon ci wetam ñu mel ni Aminata Touré comme yow euh, maanaam euh, les militants de première heure wala sax ñoo xamante ne ñoom ñoo sos parti bi ñu écarté leen yow nan nga ko gisee ci ni nga xamante ne noonu la président tey jii àndeek Idrissa Seck ba noppi daal di beddi euh, ñenn àndandoo yi ba noppi yow xanaa sax di nga si dellu si waat si gisee bu mujj bi nga gisee woon ak Aminata Touré xanaa nga may ñu si tuuti rek. foofu foofu laay tàmbalee foofu laay tàmbalee. fekkee nañ ko ci campagne ba. mu ne la sama doom dañu àndoon ak Idrissa a la mu doon njëkk Macky saa yëpp fekke nañ ko man ak Awa Mbaye mi <laughs> léegi mu àndaat ak moom. yéen daal du ngeen fekkee jàmm. <laughs> alors Aminata Touré suñu jigéen la jàmbaar ci parti bi coordonner la campagne électorale de 2012 am ci ndam xarañ jógee système de Nations Unies ñëw joxe boppam carrément il s'est livré poings et pieds liés il fallait bien entendu créer les conditions de son utilisation optimale au niveau du parti mhm. au niveau de l'État plus tard bi ñu gañee ba noppi dénk ko département bu takku muy ministère de la justice bare enjeu bare problème avec beaucoup de dossiers qu'on dénommait euh, euh, euh, euh comme demande sociale mm -hmm. elle s'y est employée comme elle a pu avec plus ou moins de fortune mm-hmm. yàlla jële ko foofu mu toog ab diir ñu dénk ko conseil économique le temps mu nuyoo rek ñu ne ko jógal dem mm. fu mu jógee rek woo naa ko defal ko parce que man tàmm na xam naa limogé mooy lan. sa téléphone bi boo nekkee fonction day sonné rek du noppi mu. bés bu ñu la limogé balaa muy woon waxtu dootoo ko déggati. du sonné boo moytu da ngay dof. donc moi j'ai l'expérience. moom jàmbaar la am na quelque part ko góor reyante kat. mais du góor. non du góor. ñun la ñu mën a muñ mën ko gérer. bu kenn du gis ñi ci ñun ñu ngay ñaxtu xëy na moom boo moytuwul du ko mën ndax xol bi dana ko jege mm. te jigéen la bare na kersa gaaw na jàpp ne dañ ko rusloo jàpp nañ dañ ko toroxal jàpp nañ dañ ko wor boo gaawul ci moom dana fi def déclaration boo xam ne moytu àddina tukki mm-hmm. te bu ko defee ba noppi tuuti rek ay mbokkam daañu wax moom dana ko rëccu donc il faut ñu jiitu ci moom la nga xam ni moom la soxna awa laajte et c'est important compagnonnage bi moom yàlla ko jox bakkan mhm. comme ni ma ko joxe sëy joxe ko leneen ñun dey mën naa ko waatal pour tous les autres def nañu suñu kéem kàttan mhm. pour gunge ko pour wéttali ko booba nga xam ni am compagnon métti woon na lool mhm. ñëw ci moom risque la woon parce que que ñu seqaloon du baale dara te ponkal la ba yàlla def li mu bëgg moom i tamit ba mu jekkoo mu def la ko sopp mais loolu amul problème mhm. ñun réew mi moo ñu intéressé du nit ki mhm. parce que moom mosul xalaat ne ba mu nekkee Fatick ba mu nekkee sookoon mhm. ba mu nekkee funjuñ ba mu nekkee Kaolack bés dana am mu jiite Sénégal te yàlla def na ko parce que dañ ko dogal yàlla ko foqati ci kenn am ku mu ko jox fala budda danañ ko foqati ci moom jox ko keneen ku weddi laajal Itno Idriss Déby mhm. dañ ko ni tey yaa gagné ëllëg ñu faat ko mhm. yàlla nañu yàlla musal ci loolu ci ci moom ak keneen ku dul mel na moom mhm. waaye am na question bu ñu jubal sànq lañu ñu war moytu Sénégal mooy ku falu rek fayu ci sa moroom que la jiitu il faut que ñu noppee fayonte parce que nguur gi ak moyen réew mi nekkul pour fayonte il faut passer l'éponge J'entends mal. Le point de rendre Mais ça, c'est fondamental. Il y a de contrôle, ils n'ont qu'à faire le boulot. xam nga la ñu la dénk yow bu fekkee matewoo ko te bëggoo ko doxee parce que bëgguloo gêner kenn mais nooy xoolal le cas de Nafi Ngom Keïta mm-hmm. une brave dame pour mm-hmm. le cas de l'actuel président de l'OFNAC mm-hmm. une très brave dame pareegul sax lu ne wax nañ ko ko mais elle tient je dis bravo aux dames vous ne nous avez pas seulement donné la vie, mais vous nous avez aussi indiqué le chemin. Elles sont braves. voilà Mimi Touré qui viendra nous voir dans une semaine elle est en train de regarder d'ailleurs suñu yaay la suñu xarit la et puis voilà Euh, kenn du ko ne boo doon góor quand même maître euh, mu ngi euh, waaj pour nekk moom itam ganu quartier général ñu ngi koy nuyu pour détendre un peu l'atmosphère on parle de troisième mandat mais quatrième mandat Augustin Senghor bi aussi on n'en parle pas <laughs> il faut qu'on en parle quand il faut que mu nekk débat ci ci ci grand place yi Macky Sall troisième mandat et le quatrième et quatrième mandat maître Augustin Senghor bi ah quand il faut qu'on en parle <laughs> mais xam naa ñëwaat parce que am na gëstu buñ ci def euh, Ablaye boo ma ko permettre rek yàq euh, euh, Pape Djibril tey dafa indi maamam maître Abdoulaye Wade parce que émission bi daf ko jaral tey je le rappelle dem ba ci coiffeur bi ne ko xuuf ma def ma ndel damaa bëgg damaa bëgg dëggal relation bu dëggu bi amoon ci diggante Cheikh Alioune Badara Cissé ak ki nga xamante ni mooy maître Abdoulaye waat donc tey Pape Djibril mooy symbole bi j'aimerais juste ñu delluwaat tuuti nag ci Cheikh bu Samb Euh, ndax man may médiateur de la république de quartier général <laughs> donc man en tant que euh, médiateur de cette république euh, waxtaan wi ak kilifa yi am na solo waaye ñiy cant itam di sikkar loolu itam dafay gën a neexal guddi gi surtout guddi yu mel nii nga xam ni sénégalais yëpp ay veillé ak kii ñu dalal tey ci jotaay bi fàttaliwaat leen ni ëllëg wala ca kanam puisqu'on est déjà samedi bu 21h30 jotee ci la ñuy tàmbali benn quartier général bi ndax tey bett nañu sax. Euh, euh, maître ci teel a tàmbali gi mais demain on démarre incha allah à 21h30 euh, ñu fas yéene waxtaane Seydi Hadj Malick Euh, daanaka dinañu gàmm gàmm lay doon ci euh, télé bi na ko ñëpp wàcc euh, équipe yaa ngi koy préparé bu ko defee bu 21 heures jotee ñu jox leen li ñu leen di concoctel boobu ba tey ci saison wu ren bi bu dee micro bi pare na ak équipe technique technique yi ci ginnaaw ñu bàyyi sat bu am lu mu ñu bégalee ñu bégalaat ci téléspectateurs yëpp ci waxtu woowu sax mën ngeen cee profité woote ñu jox leen seen i suukaru koor 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 88 628 20 20 numéro yu bëri na bu ngeen ci tànn rek bu ngeen wootee léegi jot ñu euh, même ci ginnaaw mën nañu leen jël puisque euh, waa équipe bu euh, Teranga Sénégal Ramadan ñu ngi fa ngir tataan seen i woote jërëjëf Mohamed Djibi Thioy doomu soxna Bali Muntaxa voilà donc élément fondamental la ci quartier général bi moom ak ñoom Pape Jean ayca Cheikh Sadbou gën gi nga gën jaam du seenu xas yàlla la ko may yaay xayrul wara ngën gi mindéef raw gi nga raw jaam du seenu xas yàlla la ko may yaay xayrul wara ngën ngi mi dee bu ñu demee yomal qiyaam ba gaañi taxaw bu ñu demee yomal qiyaam ba gaañi taxaw lay lay la yenant bi ramu jaam xayrul wara ngën gi mindeef la yonti yàlla aadama ci ginnaaw seydina muhammad yonti yàlla nuuxin ci ginnaaw seydina muhammad yonti yàlla daawuda ci ginnaaw Seydina Muhammad Cheikh na Cheikh Saadu Labi nee na maami Cheikh at xaat naawul duwaali yenent bi mooy ramu jaam yi seen maam Cheikh na Cheikh Saad bu nee na bu ñu demee yomal qiyaam يوم يبعث البصر مصطفى تحت لواء المصطفى قد استهان kii la yàlla natt woon ni laataa muy juddu bi mu juddoo yàlla topp kook nattu yaa nattu yey way ee bi ko ndaje ambe amina ee fa tazawaja abdallah bi aminatil batulil mardiya ba nu jëlee abdallah jox ko aminatu guddik añuma lanu ànd ñoom ñaar wulida muhammad ëmb nañu rasulullahi wulida muhammad ëmb nañu rasulullah gi ba ñu ëmbee sayduna muhammad ëmb baa njëkkëréy te boobu nabil mustafa juddoogul sayduna muhammad ëmb baa juróom-ñeenti weer la weer wu nekk benn yeneen wàcc na ndokkeel soxna aminatu ne ko yaa ëmb sangu àdduna ak allaaxira kooku moom mooy saydina muhammad ëmb baa ngay dem ba mu amee ñaari weer la Abdallahi takk ndigg la di daani doole mangaan mangaan yàgg naa ci àdduna waaye ba mu mangaane moom Abdallah feebar daaneel ko Abdallahi ngay tëdd di jooy mbokk yaa naan Abdallahi bàyyil sa jooy xanaa xamoo ni feebar sore naag dee Abdallahi naan leen jooyuma feebar ragaluma dee waaye sayduna Muhammad mi nar a ñëw sama ginnaaw duma ko gis ak bët loolu laay jooyee nam ko waxe noona la ko yàlla defe mu génn duniyaa jirimoo ana looy jooy girme ana looy jooy xanaa xamoo ni ki ci jaam gisul baayam yàggul ak ndeyam jirimoo bul sa jirimoo siggil ana looy jooy nattu ya topp seyduna muhammad ba mu tëdd feebar moom sawa te feebaram ba ko génne duniyaa mooy xare xaybar yéefari xaybar defar am xar ne ko teraanga la ndeke du teraanga dañoo posé ne xar ma moo génne duniyaa sayduna muhammad ba mu lekkee xar ma ba mu lekkee xar ma yéefar ya nee woon nañ bu xar ma demee bu ca lekkee bu dee yonent la du dee ci saasa waaye yàgg yàgg yàgg moo koy génne duniyaa sayduna muhammad ba muy lekk yàlla da ko daan feeñalal posen ciw ñam waaye keroog yàlla nëbb na ko xam-xam baa ba mu lekkee ba ñam wa dugg ca biir ba yàlla roofaat ko xam-xam baa mu ne irfaw yaddakum yëkkati leen seeni loxo li ñuy lekk posen laa waaye gaaña ba ñuy lekk kenn ku ca nekk ba nga dindee sa loxo danga daanu génn dunya waaw ba mu des muhammadu rasulullah waaye tooke ba dañul ca biir baa muhammadu rasulallah tooke baa ngay wéyi loola génne duniya suñu soppe ba muhammadu rasulallah waaye bi muy laata génn duniya woona ababakar omar usmaan aliyun ne leen bu ma génnee duniya fanweeri at ngeen di dund sama ginnaaw ababakar ñaari at la fekki yonneen Seydina Omar fukki at la toog fekki yonneen Seydina Ousmane fukki at ak ñaar la toog fekki moo toggee juróom benni at ya génn duniyaa yenent bi neewoon na leen dañ leen di rey Ababacar rek la reyul ca ñoom ñeent waaye ñett ñi yont yàlla muhammad waxoon ñépp dañ leen a rey ñu génn duniyaa ababakar ba mu génnee duniyaa sidina omar toog ca xilaafa ga ba fukki atam ya matee noddukat ba noddu ca jàkka ja omar ba mu demee jiite jaami yàlla ya ba mu kabaree ba xaajale julli ga la am benn waay bu ñu naan aboo lulu moo jël paaka rof ca ndiggam la ba omar rukkoowe bay bëgg si bi mu diggu ko paakaam yaa omar génn duniyaa waaye la muy metti metti góorgóorlu na yeggale rakka ba soog a génn duniyaa seydina usmaan yeneen bi neewoon na ko usmaan bu ñu lay rey dalay fekk ngay jàng baqara lif laam miim kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin allazina yuminuuna bil-ghaybi wa yuqiimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiqun boo egsee ba aaya ba yàlla na fa sayajzikumullahu huwa samiilu alim foofee la sa deret di tuuroo yow Ousmane Ousmane ba ñu koy rey da ko fekk muy jàng alquranul karim suratu baqara foofa lañ ko jame deret janga tuuru ca aaya ba ko yónneen waxoon mu génn duniya seydina aliyo badara sidina aliya banara juróom benni at la toog ci xilaafa dafay fekki juróom benni at yi ñu la fal sa turandoo noonee la tooge woon waaye li ko dal yàlla bum la dal ba dara ba muy jiite ji jaami yàlla waxtu fajar benn waay bu ñu naan abdurahmaan bun maljam moo woolu benn jaam ne ko ñëwal jàppale ma ñu génne aliyun duniyaa pexe yàgg na ci duniyaa ñu ngay fexeel seydina aliyun waxtu fajar dëkk bi lëndëm këriis mu daw di jiite ji jaami yàlla fajar badara ee eh, eh, eh, abdourahman bun jam topp ca gannaawam di ko lii bu baatam ya nan ko seydina aliyun danga defe ni dogal yi waaye dogal yorewuloo ko yàlla ko yor seydina aliyun dafa leeloon ba mu wëlbatikoo koo jàkkaarloog moom mu dóor ko jaaseem ja ba dara daanu deret jaa ngay gas-gas yi waaye xoolal ba ñu jàppee abdourahman nar koo fa mu tëdd mu nga leen di tàllal loxo ba naan leen déedéet du ma seetaat ngeen di ko rey mu ma mën a def lu ñaaw waaye man mi du ma ko seetaan ngeen di ko def lu ñaaw yóbbu leen ma sama kër bi ma faj su ma wéree ngeen bàyyi maak moom su ma wérulee nu ngeen xam soog a def ak moom waaye Seydina Alioune faj ma antuwul mu génn mu génnee duniyaa ba mu génnee duniyaa lislaam daal di tagg gi nga ko tagg doy na pexe waawaaw tagg gi nga ko taw sa we ku ma soppal yonent bi defal nii ñu màggal xayrul anbiyaa boo ñëwul mu ñaaw mu du àddalaay sa xeet wee ah, moo ne ku ma way genn wàllu way ma def la waay ngay aji teexe ibnu àddalaay sa xeet wee waaw waaw nit ku ne war naa nëbbu ay maayam di xamle mu sabaa lii ay maayam Muhammadu Abdala kaaw sa xeet we adadal adadal adadal sifri turam wi am Allahu latifun gis naa xekkam sa xeet wi leer na ma leer na ma leer na ma leer na ma saa su may maan bindi ci moom sama bilim be day julli ci moom yaa rasulallah sa xeet wi Seydina Muhammad ya Rasulallah bu ma tuddee mel ni maa ngi Medina lii du xaram ya Rasulallah su ma tuddee mel ni maa ngi Medina lii du xaram ibnu Abdallah sa xeet yaa rasuulallah booy wax ay waxam sa xol day leer sa bos day xaajam seydina muhammad booy wax ay waxam sa xol day leer sa bos day xaajam ibnu abdallah sa xeet loxo ja kaw ku ma soppal rasuulallah jógal taxaw te naan sat bu maa ngi nii kay waayal yoon ku sopp rasuulallaahi jógal taxaw te sat bu maa ngi nii kay waayal yoon nen ku bëgg seydina muhammad jógal taxaw te sat bu maa ngi nii kay waayal yoon nen ku bëgg rasuulallaahi jógal taxaw te sat bu maa ngi nii kay waayal yoon nen way wi ma way yow rasulallah sat bu maa ngi kay wayal yam nen kam udda min atamin kam naala min xikamin kam kam wa kam kam wa ka kam wa kam wa kam kam udda min atamin kam naala min xikamin kam wa kam kam wa ka kam wa kam wa kam kam këm këm këm wax leen këm këm këm mani këm këm këm loxo ca kaw way wi ma lay way ay dërëm taaxul way wi ma lay way ay dërëm taaxul way wi ma lay way ay dërëm taaxul way wi ma lay way ay dërëm lay way ay dërëm daaxul way ma lay ay dërëm daaxul way wi ma lay way ay dërëm daaxul way wi ma lay way ay dërëm daaxul way yi nga way tibbee ko ci sa xol de moo may lii nga mu ngoog euh, euh, sat bu yaa ngi neexal guddi gi ak euh, nu mu tudd Modou amaat na beneen fan sa Babacar Fall Babacar Fall journaliste Babacar Fall RFM matin Babacar Fall grand jury voilà nee moom itam ci fan fans club bi la bokk fans club bu kii aw noonu la ko waxee donc Babacar Fall ñu ngi koy nuyu Euh, Mariam Selli Mariam Selli Kane euh, journaliste moom it mu ngi bëgg lool ci euh, guddi gi elle apprécie jotaay bi ñuy bi ñuy amal depuis cinq am na itam koo xamee ni xarit la doom la ci maître Alioune Badara Cissé Moussa Faye Moussa borom challenge new média moom itam c'est un jeune bu bëgg Sénégal Euh, bokk na ci euh, ñi ñi wa faral di wax ñoom yuusu Youssou Ndour ak ñooñu demuñu jël seen lépp def ko bitim réew dañoo jël lépp bokk ko ak ay ndaw di créer ay emploi donc Moussa il est jeune il en fait partie euh, ñu ngi koy nuyu moom it mu ngi rafetlu jotaay bi ak son frère son oncle Euh, maître Alioune Badara Cissé Moussa ñu ngi koy nuyu bu baax. Mm. Euh, lu mu guddi guddi moom it bokk na ci inconditionnel euh, yu quartier général mu ngi ànd ak ay équipe di def solidarité bu am solo ci quartier yi di joxe ay ndogu ci village boobule donc moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak sunu xarit yëpp ak fu ngeen mënti nekk daal ñu ngi bég ci ni ngeen fonkee quartier général Elimane Lam itam. moom it nit ku ku ku baax ku bëri valeur la nabien la dayeur ndax Euh, waxuma aj aj bi rek day day aj di umra yenn di nga sonn ci yoonu màkk bi daaw géej waaw Covid bee taxoon ñu arrêté ko d'ailleurs ñëpp wa ku baax voilà donc Elimane ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak euh, sëriñ Sam Mbacké sëriñ Sam nag mooy responsable moral euh, bu fédération Nasrun Minallahi nee mu ngi ndokkeel bu baax Euh, maître Cheikh Alioune Badara Cissé euh, maître Khadija Ali Kane ak euh, borom këram moom it mu ngi bëgg maam Sira Konaté itam fonk lool Cheikh na Cheikh Sadbu ak njabootam nee na mu ngi mu ngi bëgg fier de maître Alioune Badara Cissé une référence en principe de valeur Pape Samba seen l'évidence moom moo ñu ko yónnee. ñu ngi ko ci gërëm bu baax on reçoit des messages de partout fépp ci àddina am na suñu yaay bu bind sànq waaye euh, moom yóbbante moom a réer mu ngi bindee mu ngi ñu bindee depuis Manchester moom it mu ngi rafetlu euh, teewaayu maître Alioune Badara Cissé tey ci euh, plateau bi on peut regarder d'autres commentaires si possible très rapidement sur internet déjà note bi euh, notu 5 sur euh, aidez-nous 5 sur 10 bi c'est ça. la ñuy gën a commenté boobu la ñuy boobu la ñuy gën a partagé. li mu joxe li mu joxe note ci euh, gouvernement bi jox leen. Euh, cinq sur euh, dix loolu moom gis naa ni internet yi ñu ci ciy surtout di ko di ko partagé lenn li ñuy xewal kay mooy ñenn ñi sax dañoo dem ba ji di filmer seen télé di ko partagé waat ah. di wax à quel point ni ñu kontaanee di déglu euh, maître am na ay mots yi nga xam ni employé nañ ko ci réseaux sociaux surtout Twitter ñi hmm. ci bari dañuy naan ABC quel homme ñenn ñi nee nañu il est il est il est très véridique euh, je l'estime vraiment ñu ci bari loolu loolu la ñu mais Ablaye mag mat naa bàyyi ci réew Amérique sax bu ñu bëggee ku leen jiite dañuy dem seet jël benn maay paa teg ko ci boppu réew mi et surtout que moom paa bu nandite la parce que sànq nee na mu ngi fe fente requin tout jeune doyen paa la mais nandite la quoi jeune pas tout jeune doyen la ah ben voilà <laughs> bokkul ak yow grand doyen <laughs> euh, mais El Hadj aussi am na internet yu bari yu la yu la yu la jaajëfal ci ni ñu ni leen xamalee ni moom Cheikh la yi ma xam la woon euh, surtout ñu ci bari ñu ngi naan mais Pape Cheikh fan la xamee ni ñun ñi ngi doog a euh, xam ni moom mi euh, kii di mel moom Cheikh la ma xamalaatal leen leneen lu ngeen xamul ci moom mm-hmm. Mm-hmm. non seulement dañ ko seexal Cheikh la ca Nimzaat mm-hmm. mais nekkoon ne mécanicien dëgg c'est pour dire aux jeune que voilà le soleil brille pour tout le monde effectivement euh, ak loo mënti doon ci tout tànk euh, mën ngaa màgg doon leneen puisque mhm. àddina léegi dañoo defar defaral ay code yoo xamante ni dañu ko war a respecter mhm. alors que code yooyu amul njëriñ euh, te loolu defe naa bëgg naa mu ñu ñëwaat ci ndax à un moment donné il paraît ci terrible bi nga terrible loon papa sama <laughs> si suñuy nopp def naa ñu jëlee la ci école bi yóbbu la nga nekk mécanicien nga dem nekk mécanicien xarañ ca lool commencé ca am passion ñu jëlee waat la ci mécanique bi delloo la école ça aussi c'est une histoire euh, qui m'a ébloui quand on m'a raconté ça euh, maître waaw loolu day moom suñu borom moom mooy articuler jaar-jaaru jaam bi mhm. dama nekk sama taaw baay bu góor hmm. bi may ganee may gane àdduna booba moom am na ñeent fukki at ak juróom benn hmm. ki nga xam ni ma topp ci moom te gën a jege te muy jigéen hmm. mage na ma fukki at sama aawo papa ak ñaareelam yar ma ndax ay doomu jigéen lañu amoon xam naa jàpp nañ ne kii moom démb la fi ñëw am doom bu góor on le prend ñu jële ma le quartier traditionnel des pêcheurs de Guet-Ndar yóbbu ma à Lille mm-hmm. à la rue Blanchot j'y grandi très rigoureusement mm-hmm. góor gi sévère bëgg jàng ak jàngale mm-hmm. ma tàmbalee école classe de CE2 yàlla dimbalee ma ci loolu nga tàmbali la ma tàmbali bi ma duggee école C2 laa tàmbale yàlla dimbale ma loolu ma bokk classe ñoo xam ni ma gënal ma ñeenti at ba ñetti at ba ñeent mu yaakaar ci man lool itam soxna yi ma jël di ma yar jàpp ne maa war a gën ci lu am ndax bugguñu wan ka jur te xaw ma ko lenn loo xam ni dana tax kooku rëccu ñoom ñu yore doomam mm. ñu teg ma fii góor gi nekkoon surveillant principal des travaux publics nekk ci àll bi léeg-léeg ma topp ko ñu tëdd ma cartable fu ma jëm mu yóbbu ma dem ba ci biir dugal ci yu ci bokkul commencé jëfandikoo cigarette Serigne Cheikh Abdoul Ahad moo ma ci génne en 1978 bi ñu demee di ko ziar ma dégg mu am lu mu ci wax ma génn ca ca saasa ba ca des mooy bi ñu jógee Ndar en 1971 parce que moom ak Abdoulaye na mi nga xam mooy baayu Karim nag ñoo bokkoon di jàng école Blanche. c'est mon grand-père waaw góor gi retraité man ma war dem Prytanée militaire ñu defal ma déjà en sixième gàntal ma mhm. moom nag comme militaire la woon itam dans l'âme il est venu pour faire les démarches au niveau du building xaw ma fan boobu j'étais tout petit pour toppatoo loolu foofu la dajeek l'ancien ministre Abdoulaye Fofana. Mhm. mais si c'est Babacar mun kaa man j'ai pris ma retraite de TP mun ko man dañ ma soog a dénk SOADIP société africaine de diffusion et de promotion foo faut vraiment nga ñëw jàpp ci liggéey bi et il nous a tous déménagés à Dakar c'était la l'indépendance pour un jeune Saint-Louisien ma commencé lu ma dugg ci <laughs> et je discutais avec un ami moom la ñun la ñu dàqandoo waaye man la ñu njëkk dàq moom on m'a au mois de mars jamono ji deuxième semestre deuxième trimestre élèves non repris au lycée point <laughs> voilà moom ñu may ko mu toog ba juin ñu def conseil ne passe en classe supérieure mais dans un autre établissement ma bokk ceeg on était un petit groupe mhm. man maa ci gënoon tuuti mais bon je venais puis waaw góor gi ne ma ah comme yow bëggoo jàng. ah turbulent. ah mon corps défendant. yóbbu la nga def mécanique ci garage su Soadib. Mm-hmm. may dem di ñëw di indi añ di yóbbu di ah nga xel moom yàlla ak moom. Mm-hmm. Mm-hmm. fekk fa ñoo xam ni itam ils ont peut-être dit euh, c'est papa mooy sunu patron nañ ko ñu ñu intégré gi tiit gis ni kii kat. ñu ko moytul <laughs> alors que mécanique dara nekku ci mais il peur. mu génnewaat ma foofu yóbbu ma temple évangile euh, Albert Lutili bi dend ak kër sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma seq ko ak clinique ñaaw ma nekk foofu fekk fa samay camarades yoo xam ni ba léegi teqali ko wuñu mm-hmm. ñoom itam ñu adoptante mm-hmm. ñu fa gënoon xarañ xam naa mooy ñi nga xam dañ leen dàqe feneen <laughs> noonu la ñu màggandoo maasendoo ko ba pare foofu après dem lycée d'application de l'école normale supérieure mhm. ah, yàlla dimbali ñu itam depuis lors amul lu ñu def di ko defaat waaw mhm. ah, dañu delluwaat ca nañu nekkee woon xaleel xam ni yoon wi waruñu ko woon jóge mhm. yàlla dimbali ñu ñu dellu siwaat ci loolu ba ba li am tey am tey rek macha allah ñu sant loolu moo indi ki ñu am tey euh, avocat homme de lettres diplômé en finance en développement international en leadership voilà xam-xam rek ko wóor. merci encore aux internautes balaa ñuy jox Ablaye. pour dernière dernière question yi surtout ñoom question bi li mu ji waxaat ci jaar-jaaram ni mu ci ñëwaatee dafa am solo parce que dafa bari ay internautes yu doon demandé. Mhm. pas parcours am mais message bu mu jox ndaw ñi pour ñu gën ko gëm ci jafe-jafe yi nga xam ni actuellement ñu ngi koy dund mais surtout question d'actualité bi nga xamante ni. Mhm. mooy ndaw ñi actuellement xaw nañu jaaxal tuuti wala euh, toll nañ ci jafe-jafe moment yi nga xamante ni nguur gi dañ leen woo ngir ñu gën a mën a gëm seen bopp. wala xoolaat naka lañ mën a defee ba euh, gëm ni àddina dara xëy xëy sotti mhm. loolu dafa nekk message bu am solo boo xamante ni bari ci ay questions yi nga xam ne yooyu doon on finira peut-être avec ça donc loolu Ablaye dafa am yóbbante bu gàtt boo xam ne foog ma defal ko ko parce que bi ngeen jógee sànq uh-huh. bëggoon naa jóg waaye sama tànk yi dafa damm parce que <laughs> non c'est vrai parce que ñii li ñu bàkk fii Cheikh Sadbou xeertu xalifa bi bu tedd bi mm-hmm. fam foo xam ne man kóllëre moom ma fa boole muy compagnon di Cheikh Aljuma Ba bu Guet Ardo ñoom yoon yoo xam ne bokk nañu ko ñu ànd dox jëmmi jamono ba seeti ki nga xam ne gan gi fala bokk mam borom Touba ñu seeti ko ñoom ñaar ñu yegg sëriñ bi dalal leen ne leen ah yéen ñaar ñii dey dinaa leen faral di gis ci mala al ula mala al ula nag boo ko déggee bokkul ci man ak Pape Djibril fi ñuy faral di daje yow borom martaba ba ku kawe nga mooy fu yu baax yi di daje mu ne leen foofu day daan naa fay gis suñu bopp ñu daje ñun ñett ñii mosuñoo jàkkaarloo ak jaxaran waaye sëriñ bi am borom Tuubaa am lu ma bëggoon a vérifier ci est-ce que loolu illusion la woon wala ñii ñooy jëmm yi dëggantaan mu bind ci baaraamam bi ci suuf man man nag boo ko déggee xëy na sama genre yi ñu koo tekki waaye Cheikh Aljuma Ba moo ko yeggale sëriñ bi ne ah kon day lii moom laa doon wër maanaam ci ni mu ko yeggalee mooy soo wàccee sa bopp yàlla yëkkati la ndax bi ñu ñëw sëriñ bi def leen buggoon jox ñu toog ci kaw ñu ne ko mm-hmm. déedéet ba finalement ñoom ñett ñëpp dañoo ànd maase ci suuf mm-hmm. sëriñ bi bind ci loxo bi man Cheikh Aljuma ba yeggaleel ko ko li ma ko yeggalee nag mooy soo wàccee sa bopp yàlla yëkkati la li ma ci jublu rek mooy suñu këru diine yi bu ñu leen toppee ñoo bokk fu ñu jëmee mag ñu baax ñi ñoom ñëpp mës nañoo daje te loolu lu jar a jàng la ku ne foo bokk taqee nga feneen kon gan gi tey féete na ne boppam ci maam borom Touba waaye ñii li ñu fi bakk tey wane na ni ah, yoon yeneen yëpp am na foo xam ne daje nañu mhm. waa xam naa nag Pape Djibril xamul loolu loolu waaye am na foo xam ne maa ngi fay jéem a maa ngi ciy jéem a xuus daal waa di ci dongo daara la mais mën nga ay clé yoo ma delloo ko Cheikh Fadel nag ndax am na loo xam ne nii wax dëgg fa yàlla nangul naa ko ko sol na ma ko waaye nag nay continuer di ma duy nag waaw kay waaw ndax ndax léeg-léeg ma segg man tamit xaw a doon lantinoor di bàyyi mu senn waaye mu ngi may delloowaat ci yoon bi voilà Euh, maître vraiment loolu ñu la koy yóbbante rek ci yoon bi mm-hmm. muy lu am solo aussi ci suñu mag yu baax yi nga xamante ni ni euh, ñoom ñoo fi nekk te ñuy tanq ci liñ ñu fi bàyyeel lépp di ngëneel surtout ci weeru koor wi ñu toll nii bu ma bu ma xuusee nag xam nga maître bu ñu waxee loolu ba pare dañuy duggaat nag nag ci galgal yi benn bu gàtt rek am na bu ma war jox Mamadou Ndiaye ay ca après nga ñëw ci galgal yi mm-hmm. fekk ma xaw def mise en train tuuti mm-hmm. euh, Mamadou la nga xam ni war nañ ko mën a wax suñu ay ndaw naam góorgóorlul moom ñëpp mën nañ ko wax muñ leen itam yomb na ci yàdd nit dara xëyul sotti itam baatu wolof la mhm. waaye ku ci nekk ci ñoom war na tibb ci boppam loo xamante ni moo koy conduire vers fi nga xam ni suñu borom waajal na ko ko waaye mu may ko lay pour mu eggale ko foofu ñibbisi naa en 1985 fin 85 donc disons 86. Mm-hmm. jubluwuma ci leneen nag barke Cheikh Al Khadim. waaw ah lu dul joxe message rek. Mm-hmm. pour que ndaw ñi xam ne amuñu fi lu fi mag ñi amul woon wala ñi leen xaw féete mag. te teerwul ñu teg ko ci yoon mhm. waxuma kenn nag def noonu bi may ñibbisi en 1985 fin 85 booba yàlla dimbale na ma ba jàng naa droit ba noppi jàng naa langue étrangère appliquée ba noppi jàng naa DSS droit économique du transport aérien jàng naa développement et coopération technique ma mën a fu ne ma mën fa am liggéey fu ne itam ma jéem fa wut liggéey awma ko mhm. parce que awma ko jàpp sama loxo yóbbu ma fenn recommandé ma ma toog fa liggéey ma bëgg a def baro sama maam moo doon bâtonnier ne ma du ñu nangu koo xamante ni diplôme étranger la am di fi dugg mhm. cinq la ñu woon am ñu bare ñeent ñi dellu man ma toog bindu université de Dakar def maîtrise du droit yàlla dogal ma am maîtrise boo xam ni soxna sax moom ko njëkk am ndax moom juin la jàll man ma toog xaar octobre waaye ma am fa soxna am fa maîtrise def baro nekk avocat mais laataa may def loolu toog naa fi at ak genn wàll di liggéey Sonadis dëkk Liberté 6 di dox Liberté 6 ba boulevard de la Libération fi nga xam ni tey foofook sama bureau matul trois minutes mhm. ma di ko def at ak genn di yéeg ci camion yi ñu ma yebal ay siwo ay diwlin ay ceeb ay paan ay affaire may wër Sénégal Yérim Codé Fall mi ngi fii di ma dégg Ndongo mi ngi fii di ma dégg ñoom ñoo ma doon formé ci yu noonu ba ma am ci xam-xam terewul taxul ñu fay ma fa un franc mais maa ngi toog di ko def di dem ak ñëw maa ngi jaale njabootu Ismaïla Gueye di jaale njabootu sama mag Doudou Gueye ñoom ñëpp Sonadis la ñu nekkoon ak man madame Sy ils m'ont beaucoup appris ils m'ont beaucoup apprécié parce qu'ils ne comprenaient pa et cetera man gaw moon loolu bis bi may prêter serment tous les agents de la Sonadis disponibles étaient devant étaient dans la salle de la cour d'appel avec ses blouses bleues, avec le sigle de la 70, etc. Ouais. Les gens se posaient beaucoup de questions. Mais c'était mes amis, Nyom Diallo et tout le monde. Pendant longtemps, je les ai côtoyés et je les ai connus. Il y en a beaucoup qui nous ont précédés, mais il y a beaucoup qui sont encore là. Il y a le Goudon Senfan, Donc, ça fait partie de mon héritage. De la même manière que les agents qui ramassaient les ordures, qui les mettaient dans les camions, qui allaient à la station de Bel Air, j'habite maintenant à à deux minutes de la station où on mettait toutes les ordures, ou alors à Mbobes, qu'on a fait revivre, et ma famille vit à Kër Massar. donc xam ni addina bi moom. noonu rek la ndànk-ndànk rek. Mhm. suñu borom dana am lu mu la nasal. waaye mhm. may ko lay ba wane ni lii kat bu la ko joxee. Mhm. kenn du ni pourquoi ñu jox ko Mamadou Ndiaye wala Papa Djibi wala Ablaye wala voilà tu vois. donc mën naa yooyu yëpp. mën naa jaay paan mën naa jaay siwo mën naa dem jàngale anglais mën naa dem layoo ji te wàññiwuma dara nag terewul ba ñu nee da ngay ñibbisi ma ñibbisi terewul ba ñu ne fii ngay amee soxna ma dugg si rek soxna si miir ne dootuma bàyyi ma ni ko ciix ba yàlla dénkuñu ñetti bant donc ma xam ni c'était inscrit comme sa alors que quand je venais j'étais peut-être j'avais kon xëy na tey danaa am Jeannette wala Choupette wala leneen waaye nag boobu xam naa yàlla xiiroon waxoon na ma du ma mucc ci ci sama ñoom yaay. Baye Cheikh xam nga moom moo fi tudd Sonadis. Sonadis. xale voilà Sonadis taxaw na fi daanu na inspiration bi maître yaa ma ko gën a xam magasin témoin. bokk na ci première politique yi nga xam ne Sénégal taxawal na ko pour xeex li ñu fi njëkk a waxtaanee sànq. emploi tout à fait. mënoon ngaa bokk ci yow ñi bénéficier wu ci opération maîtrisard. Mm-hmm. parce que bi ñu koy def 1981 am nga 23 ans. Mm-hmm. mënoon ngaa maîtrise ci jamono jooju c' était peut être le cas c' était peut être pas le cas. Mm-hmm. mais ña ca bénéficier woon ci jamono jooju tey am na ci ñoo xam ne mun nañ leen a tudd mais duñu ko c' est pas la peine bénéficier wu nañ ci opération fonds opération maîtrisard yooyu def fayit tey ñoom ñooy gérer li nga xam ne moo war a jox ndaw yi emploi c' est à dire que y' a ans ña nga xam ne ñoom lañ doon financé. réussiruñu ñu ngi gérer tey politique emploi ci réew mi xanaa bu ñu jàngatoon ci li tax ñu fayt peut-être kon tey maître peut-être que dinañu am solution mais loolu yëpp daf mel ni documenté wuñu ko pour tënku ci pour tey bu fekkee ni ndaw yi amuñu liggéey premier discours président Abdou Diouf bi mu ñëwee ce sont ces mots il a trouvé scandaleux euh, les diplômés chômeurs. Mm -hmm. premier discours Abdou Diouf 81. scandaleux les diplômés chômeurs tey am nañ sax association des diplômés chômeurs en 30 ans jéego yi xanaa dañoo jàngul ci li nga xam ne nii moo fi nekk ak politique yi ñuy def yëpp pour emploi ba tollu tey ci jéem di ko jéem a lijjanti. je pense que pour la pour résoudre problème emploi Sénégal on a jëluñu ko à bras le corps dégg naa benn xale démb mu ne président dañu war bàyyi di jox xale yi xaalis. parce que bu ñu ko joxee dañuy faj suñu soxla problème bi toog ne léñi suñu kanam distribution noonu pour distribuer ça n'a aucun sens sauf quand on est porteur d'un projet viable certifié encadré avec un plan d'amortissement ou peut-être de remboursement c'est plus élégant d'ailleurs ba nga xam ne yow daañ la topp ca fa nga jëm ba noppi mu am de petits laboratoires mais aujourd'hui on retrouve les jeunes on dégage quatre cent cinquante milliards c'est énormément d'argent et on le distribue en veux en voilà le président je vous le dis ne sera jamais là pour dire donnez-moi la liste des récipiendaires donnez-moi leur adresse leur statut social leur pro il n'a pas ce temps-là il ne le fera pas dañ koy jox ku mel na man mu seet ay waayam ku ne mu dugal la ci jox ma tour nga dugal ku ne et cetera c'est ce qui va se passer si on y prend garde donc ma jàpp ne jàngat bi te du am parce que ña ñu ko joxoon du temps de Sonaga Sonabank ña ñu joxoon oto yi ña ñu joxoon magasin témoin yi ña ñu continuer di avaliser ak seen i papa ca njëlbeen ña ñu doon lebal camion yi ñuy transporter gerte gi nañ ma jégal di ko jëlee Saloum di ko indi Sonacos wala ONCAR ñoo ngi fi ba tey mhm. et ils n'ont jamais rendu compte donc ce règne de l'impunité c'est ce que Madame Baye disait ou ma fille au coin que a pas de redevabilité chacun n'en fait qu'à sa tête Parce que si tu as ton supérieur à côté, tu le graisses, tu lui donnes des sous, tu donnes à son épouse des moyens, bon, il ne se passera rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on avait réussi à, à, à, à, inscrire dans le, dans le discours d'entrée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2012, et en le faisant répéter pour dire que c'est la fin de l'intolérance et qu'il ne fera de cadeau à personne en lui faisant répéter je dis bien personne. Mais ce n'est toujours pas le cas. C'est le fait que ça ne soit pas toujours le cas qui lui a fait dire qu'il ait des dossiers dans cette République sur lesquels il a mis le coude. Ça, c'était depuis 2013 ou 2014. Comme si cela ne suffisait pas, il revient à la charge pour dire qu'am na ñoo xam mënuma leen jàpp parce que ma leen jàppee dëkk bi yëngatu. mais na dëkk bi yëngatu. C'est dans ces mouvements-là que la République du Sénégal trouve un espace de respiration démocratique mm -hmm. que les gens sentent qu'ils ne sont pas impunis et qu'ils ne seront pas protégés mm-hmm. na dëkk bi yëngatu parce que nous sommes tous des citoyens bu dëkk bi yëngatoo après il trouvera son juste équilibre mu taxaw mm-hmm. përëx përëx boo gis ci tekk lay lay lay mujje mm-hmm. on règle nos affaires et on avance mais tant qu'on ne l'aura pas fait ben Écoute, euh, dans dix ans, je ne serai plus euh, actif pour rester là à parler de l'avenir du Sénégal. <laughs> Ce sera à vous de le faire. Malheureusement, le legs qu'on laissera entre vos mains sera complètement pourri. excusez Voilà. Euh, ci loolu am na on a reçu une question bu jógee ci suñu benn euh, xarit suñu collègue Issa Thiorogo yi d'ailleurs ah ñu ngi koy nuyu très professionnel il nous a envoyé beaucoup de questions mais bon dama ci jël benn rek bu méngoo tuuti ak li ñuy wax ci wàllu liggéey bi mu ngi wax ni ndax médiature bi euh, a-t-elle une solution à apporter dans la correction de certaines conventions collectives qui privilégient le statut du travailleur au détriment de la compétence loolu lañ koy faral di jooy ci entreprise yi fii Sénégal alors la médiature médiateur la médiature n'existe pas en réalité d'accord mm-hmm. c'est un terme généreux pour englober tout le monde mm -hmm. la loi dit il est créé le médiateur de la République c'est ça l'institution mm-hmm. donc le médiateur de la République a des compétences mais elles sont quand même encadrées man nag foqati naa lu bare. encadré ou limité. Euh, encadré plutôt. d'accord parce que buñ ko limité rek ñun dootuñu xaj. Mhm. am na yu bare foqati naa ko. Mhm. wax naa sànq par l'autosaisine mais wax naa également par le fait des des des nouvelles interpellations citoyennes mhm. dëkk bi day dox. am ay laaj yu bees yoo xam ni dañ koy adressé te kenn du ci tontu. ñun ñu jàpp ne waruñu ko bàyyi noonu ci jaww ji rek muy law. di tàbbi ci keneen kuy ñëw ëllëg wala beneen gouvernement buy ñëwaat ëllëg. mais lii je pense que c'est le rôle des discussions au niveau des conventions collectives. entre le ministère du travail et des organisations syndicales et les organisations syndicales elles-mêmes. S'il n'y a pas de, s'il y a des difficultés, on ira devant le Haut Conseil du dialogue social. S'il y a encore des difficultés, le président arbitrera lors du dépôt des cahiers de doléances chaque, chaque fois que le 1er mai est célébré. Mhm. Ou alors, ils feront ce que les syndicats font le mieux. Arrêter le travail, faire des grèves perlées, faire des grèves de zèle, faire des grèves totales à durée limitée ou parfois même mettre la clé sous le paillasson. Mhm. Donc il ne faut pas qu'on leur apprenne les modes, les modes de lutte. Je connais bien Issa Thioro, je, je, je, je je vois qu'il prend conscience des nouveaux rôles qui devraient incomber à la médiature mais mhm. il en est d'autres ndimbal da nga cee fekk loxo borom. Mhm. donc nañ taxaw tem bu fekkee lu ñu war a laaj la te mu jaadu te tegu ci yoon. Mhm. qu'il qu'il fasse face au patronat. et ils comprendront. mu ngi wax sax ni ndax média médiateur bi warul jotul mu am ay ambassadeur euh, jeune pour gën a lawal liggéey bi ndax yow rek mënoo dem ci dëkk yi. mënuma ko mënuma ko ce que j'ai fait. j'ai ressuscité les, les délégués du médiateur dans les régions, mais bon, ils m'écoutent quoi. Donc, euh, ils savent qu'ils sont dans la précarité la plus absolue. Le peu de moyens que je mets à leur disposition à la fin du mois ne suffit pas à les mettre au niveau des obligations ou des résultats que j'attends d'eux. Mm-hmm. je damay am kersa di leen liggéeyloo. Mm-hmm. parce que xam naa ne la ma leen di sant bëgg nañ ko. mën nañ ko waaye la ñu teg seen loxo matewu ko mhm. donc ils dans des régions déshéritées mhm. ils n'ont pas déjà le médiateur n'a pas de voiture à plus forte raison délégués régionaux donc voilà euh, j'ai deux délégués l'un en France et dans l'Union européenne de manière générale la partie nord et j'ai un autre délégué en Espagne autant dans les îles que dans la que dans la péninsule mhm. ils nous tiennent informés c'est tout ce qu'ils peuvent faire et ils sont en contact avec les services de l'immigration, etc. Mmh. On leur donne mandat à chaque fois que de besoin. Mm-hmm. Mais même cela, ce n'est pas statutaire. Mmh. C'est parce que la charge est énorme. te dañuy wax naan nit ki mën mënul fu ne mu ne fa. Mm-hmm. waaye mën na fexe ba fu ne mu am ko ko fa nekkal. Mm-hmm. loolu rek lañ ci jublu. voilà balaa ñuy tàggatoo ndax mu ngi guddi lan nga xalaat ni waroon nanu koo waxtaanee te soulever wuñu ko ci waxtaan bi. yéen koy matal ngeen. ah alhamdulilah kon. macha allah waajal ngeen ko boole ngeen ma ay ñaari malaaka mun kiiral mun naa kii taxaw fii di ma waajal sànq ba léegi waaye ma yore sama kurus secret rek. di leen jat. ba Cheikh sama laaju yaa vingt ans bi ba léegi ñëwagul. yow doo bàyyi moom la ñuy tëjee kon waaw. maître nga sa gos la franchement. mais mu tontu ci. Mhm. maître je pense que ñu bëri dañ ko découvrir en mars 2001 maa ngi koy wax sànq. Mhm. dañuy former gouvernement bu bees Mame Madior booy remplacer premier ministre ab Ablaye Wade mhm. Moustapha mhm. ñu nekk ci consultation yi building administratif Mame Madior booy nekkoon ministre de la justice ñu nommé ko premier ministre journalistes yi ñi fa nekkoon ci consultation yi fu nit ne tëll rek ci building ñu dem soit ñu xàmmee ko nekkoon loo fi def wala ñu nekk yow yaay kan mhm. ñu ngi doon génn nag ci année 2000 yi nga xam ne directeur de campagne Ablaye Wade jamono jooju soow mais temps yu nekkul woon soow. mu ngi doon sol bretelles yi. maître Alioune Badara Cissé ñëw. alors il devait être dans le building avant parce que personne ne l'a vu entrer. mu génn ci kanamu journaliste yi sol bretelam yooyu sa à dire style Ablaye Wade en fait ñëpp daw. présenté wul mu ne mu présenté wu Alioune Badara Cissé je suis avocat je vis à New York. ñëpp ne kon ministre de la justice baa ngi noonu. mais Siraj laaj bi mooy. est-ce que loolu mu def noonu mystification loolu lu tax génnewu ci gars yi rek ne leen leneen laa fi wut si woon bokk ma ci ñu ñu consulter. te loolu indiwu ma fa. Ah, mais gis nga dégg naa sax Ablaye Wade ko jëlee woon. mais ca dëkk ba indi ko fii. mais et puis gis nga journaliste yi. mu toog di xaar Mamadou Ndiaye xaritu Kebs Thiam ndeysaan encadreur am la woon à Sud FM. Mhm. comme moo xam Saint-Louis xàmmee maître dem na ba Ndar wuti archive ci maître Aline Badara Cissé. mais Sary maître euh, épisode boobu yow pourquoi ça en fait alors moi j'ai quitté Saint-Louis en 1971 j'avais 13 ans mënuloo dem Ndar ba gis fa archive xanaa sama yaay oui xamoon na maa ngi ñëw defal ndànk rek <laughs> question bi depuis sànq yaa ma koy dóor ca salle d'attente bu la ma ko placé donc foofu moom mun leen fa am dara mu ngi xaar quand je suis rentré je vous ai dit en 85, je suis allé m'inscrire à l'université, j'ai fait le barreau, je me suis marié, en 89, j'ai fini mon parti en en décembre, je suis au Sénégal à demande du président Abdoulaye Wade suite à un entretien que j'ai eu avec lui. Parce que Wade, je mhm. des voisins en Écosse qui quand ils étaient à Grenoble ñoo ma jox cadeau ma indil ko noonu la ñu xamante depuis lors vraiment on ne s'est jamais quitté même au plus fort de la guerre au plus fort de la guerre à chaque fois qu'il nous prenait là à l'étau à la gorge j'arrivais à lui faire lâcher prise sur des questions très difficiles sur lesquelles yoo xam ne bu insister woon kon ñun dem nañu laaxira bu yàgg ànd ak suñu kersaak suñu lépp xawee ko mais saa ma débrouillé ba ñëw wax ak moom dana gudd nag wax ni du yomb kurpeñ yeeg saaga yeeg yëpp dina ci dem <laughs> waaye balaa guddi gi di xaaj dana ñu may la ñu ko ñaan mm-hmm. c'est un grand monsieur mm-hmm. je voudrais vraiment mm-hmm. le saluer et l'honorer un jour je vous ferai d'autres euh, révélations de ce que j'ai eu à faire pour aller le rencontrer c'est un monsieur que j'aime profondément yàlla na suñu borom gën ko bàyyi ak ñun bàyyi kook sagoom ak wér yaram donc quand je suis arrivé mhm. en 2000 Wade a toujours pensé que moi j'étais un agronome il a toujours voulu me confier le ministère de l'agriculture alors on à deux ou trois jours de la Tabaski mhm. j'étais sous le pont du côté du stade Léopold Sédar mhm. avec sandales avec jeans avec chemise aux manches retroussées et bretelles bien entendu parce que j'ai une formation anglo-saxonne c'est pas du Ablaye Wade oui. voilà c'est ça et puis j'avais un gros ventre donc j'avais tout ce qu'il fallait pour tenir euh, pour tenir mes bretelles mm. je reçois un coup de fil mm-hmm. auparavant j'avais discuté avec Ablaye Wade de l'agriculture il a toujours voulu de ça je suis venu dans la salle d'attente où je trouvais Macky Sall nous avons été consultés Enfin, il a été consulté en même temps que moi, j'avais été convoqué, et les termes devaient être précis mm -hmm. dans la salle. Il était tout beau, avec un boubou comme ça. Donc, il était bizarre. Il m'a paru, il, je lui ai paru bizarre par mon accoutrement. <laughs> et c'est ça qui avait plus émerveillé les journalistes. On voit quelqu'un qui arrive, en euh, ventre ballant, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui. Et puis j'avais un petit sac, les euh, sacs des jeunes là, il y a eu beaucoup de Sac à dos. <laughs> J'ai eu un entretien avec le Premier ministre, Mama Diorbo, et je suis sorti. Alors, vous, vous êtes qui Je dis, mais moi, je m'appelle Aline Badara Cissé, comme d'habitude. <laughs> Je ne suis qu'avocat. Il voulait en savoir plus, mais il n'y a pas un seul journaliste que je connaissais, et je n'avais pas envie de m'exprimer. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Je suis parti, quelques années après, je suis devenu euh, conseil spécial du Premier ministre, deux, trois ans plus tard. Je suis devenu secteur général du gouvernement, mhm. avec rang de ministre siégeant au Conseil des ministres. Plus rien à envier à qui que ce soit. Ah, Il n'y a pas besoin de faire du cinéma. Parce que quand Wad me demandait de me rapprocher du Sénégal, j'intervenais au profit de Ablaï Faye, qui avait été révoqué mhm. pour mettre Abdou Fall en selle. Mhm. Vous comprenez Bien sûr. Ablaï Faye était malade. Il était à Marseille. Moi, j'étais Minneapolis, aux États-Unis. j'ai appelé Wade pour dire que voilà je ne suis pas d'accord et cetera il faut protéger les anciens Abdou Fall sama xarit la mais moi quand ça doit être juste ça doit être juste et je le dis. Mm -hmm. il m'a dit écoute tu, tu, tu fatigues ta carrière je dis non je finis mon doctorat au mois de mai je rentrerai après mais man du ma bàyyi sama yëf. Mm-hmm. di ñëw Sénégal pareeguma dans mon plan de carrière il faut que je finisse mon doctorat en droit et c'est ce que je fais. Voilà. mon épouse et mes enfants m'ont précédé. et moi après je les ai rejoints c'est aussi mm -hmm. simple que ça. Mm -hmm. depuis lors je mets mes bretelles. que je sois dans le gouvernement ou pas, comme j'ai dit un peu plus tôt, cela ne me fait ni chaud froid. Je suis bien dans ma peau. voilà c'est dit moo tax euh, doomam euh, jarbaatam commandant Lamine Faye. ah nee na ñu tuddee la homme zéro faute. voilà oh, oh <laughs> j'en ai fait c'est Lamine Faye. Oh, dites-lui que oulala. Non, j'ai eu du bon temps. Voilà. Prenez comme vous voudrez. J'ai été jeune. J'en ai fait, Dieu seul sait que j'en ai fait. Mais suñu borom moo lay mbuur ma laa nu sutura. Mhm. ba nga xam ne la ngay def te du nekk lu ñu mën a nettali. wallaahi bët du ci tegu. yàlla nañu yàlla suturaal moo tax foo mënee suturaal nit rek. Mhm. def ko mhm. ngir sa bos bañ a xawee ko. wallaahi ci làmmiñ ca la ñuy wax. ca la ñuy nettali. surtout ca la ñuy inventé ak di ko sos. te fañ koy defee doo fa nekk mhm. di rectifier wallaahi Ablaye Wade mos na ma ni Alioune na nga moytu ndax fa yow a egg du man egg fa dañ doon recevoir ay rapport de police sur des personnalités yoo xam ni voilà te du dëgg mhm. c'est un adversaire qui a des accointances avec certains agents mhm. mooy commandité ces PV-là ou ces rapports-là ou ces fiches-là. voilà, Il m'a demandé de voir quelque chose, j'ai vu, je dis c'est pas vrai. mun ma gis nga de xale ngeen. Mhm. fa yow egg du mën egg fa. macha allah la ngeen di moytu. mu ngoog nous a beaucoup appris. mu ngoog bëgguñu jeexal waaye faw ñu euh, euh, jeexal 4 heures du matin euh, Sadbou Samb yaay tëj guddi gi comme ni nga ko ibbee doon bégal suñu waayjur bile man chaque année mon père il insiste. kañ la ABC di ñëw kañ la ABC di ñëw. ma ne ko arrêté yëfu doomu ndar yi affaire d' et de far <laughs> mais tey kontaan nañu loolu papa. je voudrais lui dire. pour mhm. vous dire. Mhm. que sama ay wayjur. Mhm. ñoom ñëpp ay xaadar lañu. sama papa Chérif Hamdoul Mamoun moo ko seexal. sama yaay. Chérif at xaana Ould El Valid moo ko seexal. seexal sama rakk bu jigéen mhm. seexal ma man mhm. ma gàddu kaala geeg mbaxane mi mhm. dem seeti sëñ Muntaxa mu jox ma rendez-vous fajar ma ñëw jébbal ko ko ma ni ko ma day ñëpp xam nañu taalibe sëñ Tuubaa la waaye nag buñ ma defalee teraanga boo xam ne ci sama waajur la soqee ko jàpp naa ni kóllëre la bu ñuy doxal baax na ma ñëw jébbal la ko ndax yaa ko moom mun ma la gën fee ak li gën fii yëpp yal na la ko suñ borom defar bu dee xeetu defar dara gënu koo sell ci defar bu dee xeetu rafetal dara gënu koo rafet fajar la ma jox rendez-vous macha jiite ma jox ma ay madeleine yu neex xelil ma café mhm. ma gàddu sama kaala ak sama kol toog jàpp sama jàmm yi à mhm. tout moment mhm. et ça Chérif Atkhana amuñu payam ngi encadré sama njaboot lu fa xew mooy teew mooy tudd xale yi xale yëpp moo leen tudd ku wàcc liggéey mooy ñëw defar la ñaanal la et cetera. mënuñu ko fay. du xaar sax parfois du xaar. bàyyi Sëriñ Alwali Cheikh Alkaana kooku Sëriñ Alwali baayam Cheikh na Cheikh Saad Baye maamam Sëriñ Alkaana seen maamay Seydina Muhammad يا منكرات نسبتنا إلى رسول لتتفسخ ولا تكن جهول خطا أردت خلق سياق النقول أي دار وأبطل له خلائق الوقول فإننا أبناء فاطمة البطول ñi Fatima ay seen maam way alime way alime way alime ali bayti muxtaar ñoo bari ngor ñii duñu daw dañuy jeex ma ko la koy jàppale rek ci guddi gi waa kay mu ngoog jërëjëf euh, euh, maître euh, kontaan nañu yan kàddu ngay tëjee jotaay bi waaw ba ñu ba ñu sante Chérif Atkhana mhm. ci wéy jur yi ak teraanga bam ñu defal basé wu ci ci ci ñoom la ñu seqoon euh, suñu sëriñ sama sëriñ sama sëriñu Pape Djibi ak ñi ma ko bokkal ñu bare fii mhm. Cheikh Ahmad Bamba amoon ak Khadira des relation particulier mhm. dem na fi gànnaar ci topp tànkam dem na fi gànnaar ci lu tubaab bi fooge woon ni bu ko fa yóbboo dana am gàcce ci naar yi ndax daana ko wan ni ñoo ko daax a jàng malheureusement mu jële fa ndam bind ci xasida bu ñu wax am di wa shukri li nga naan inna lazina ila sarzara xat xasadu ziyaratil faaruqu daarayni aw saara fii ma toll kat fii ci sarsaara ku ma fi fekk suñu borom dana la defal ay xeetu teraanga yoo xam ni du dàkk ba faaw mhm. Cheikh Abdoul Ahad mi seeti ko suñu benn mbokk mbokku bi bu tudd maam As Guèye yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko amiin moom dafa bëggoon xaside boobu di ko jàng sëñ Abdoulaye ca Touba Belel en présence de Serigne Abdoul Ahad bu Serigne Soyibu mu ne xanaa xamu leen ni Sarsara moom béréb la woon rek bu ñu takkalee sëñ Touba Garaat mhm. waaye bu mu ko bu mu fa jógee daf ko yóbbaale kon nag ngeen jàpp ni fu ngeen dem def ay jéego te ziar yi waa kër sëriñ Touba moo leen tax a jóg. Mhm. lañu ko fa diggoon ku nekk am na ci. Mhm. kon ñuy ñaan suñu borom du ñu ko gën defal moom mi nga xamee ni bi ma amee ñaar fukki at te mosuma dem Touba. Mhm. mu xiir ma ma ñëw dox Touba xaw ma fa kenn aw ma fa njaatige dox ba dugg kër sëñ Abdou Khadre Mbacké. xaw ma fa kenn je n'ai aucune recommandation ma yeew rek ma ne paa bi dama bëgg dem Touba foo jëm ci fan man xaw ma ko mhm. man ma bon ok boo demee nga woote il y avait pas de portable à l'époque mhm. c'était le 17 juillet 1980 mhm. ma ñëw toog connais pas le protocole ñu la sëñ bi ubbi na yow looy wut man ka ah, man sëñ bi laay seet maa ngi sol sama jean comme d'habitude sama sac à dos sama dictionnaire samay bagage ay boots moo xewoon temps yooyu voilà ñun ma bon ma ñëw ngi ci néeg ci biir ma xaar fii tuuti après ñun ma kaay ma ñëw si mi sama daal gis naa joon su jot mais maîtriser wu ma ko dama waaye mu ñëw rek jàpp affaire <laughs> mun ma toogal ma toog mun ma luy sa tànk nopp bi exercé ci langage bi ci ton bi ci accent bi mhm. ma ne ko man de dama bëgg nekk murit mu ne hee daal di fettosu ah loolu de baax na moom foo jógee ma ne ko ndakaaru an sa way jur déggu mu baax mu def nii ma ko non mi ngi fi ndax mën na ñëw ma ka ko ah rek mu jox ma téléphone bu xonq boobu composé ma wootee jot paa bi ma ne ko accident mu ne ma très bien fan nga nekk mënu ma ko wax fa ma nekk parce que xaw ma ko te mënu ma ko waat parce que maa ngi fi toog ma ko daal maa ngi Touba bi dafa bëggoon wax ak yow mooy ban sëriñ ma ne ko sëriñ bi xale di wax jàpp ci rek ko <laughs> jox wax ak bi daal ne ko ma jëlaat ko mu ma kon maa ngi ñëw man ko kon jumaa ji foofu laa lay xaar parce que kër geek ak jumaa ji fon face mu ñëw ma yóbbu ko ci sëñ bi non avant mu ñëw mu wax ma mais yëre tubaab laa sol wax ko bismillah moom day <laughs> mu ah, baax na mu ñëw waxtaan ak moom ni ko ah, kii daal jox naa la ko dafa doon def examen am na dafa waroon dem Denver ci Amérique jàngi waaye daal te dafa xëy rek ni ma waxu tuba kon nag jox naa la ko ay yaxam sax soxla tu ma gis mhm. am na ñaari rakk nag waaye moom daal décidé na nekk ak yow. Mhm. te ñu ànd marché wut ay affaire ñëw jox sëriñ bi mu dellu. Mhm. il ne m'a pas revu pendant trois mois et demi. Mhm. je ne suis plus allé en Europe pour fair quoi que ce soit. mais j'avais le pressentiment que danaa jàngaat. parce que tuuti lañ fa toog sëriñ bi di ma woo université. ma soxlaay wala université. su lekkee tuuti. su lekkee ba pare doo xam ne sax laal nañu bool bi mu yërëm ma di ma jox loolu ma di ci góorgóorlu su weeru koor jotee su bàyyi fali ne seen ganaar yu saf yooyu mu woolu ma wutal ma ci booba ku ñuy wax paa xuma moo yoroon kambish bi ku ñuy wax bas moo nekkoon ci teen bi ci jumaa ji am ndox mu neex mi moo fay wutal ay gurdu yu baax yàlla na suñu borom fayal ñu ko amiin xool ma xoolu way jur téye ma tette ma ci yoon wi formé ma sans en avoir l'air ba mu mujj gi suñu borom def lu muy def ñu di yëg ne mi ngi fi mu bàyyi ñook sëñ Modou tey mu bàyyi ñoog sëñ Cheikh mhm. man ma yeesal ci sëñ Moustapha waaye sëñ Cheikh moom mooy kilifa kër gi mhm. loolu ñun nattable wuñu ko te nangu nañ ko te neex nañu mhm. sëñ bi itam boole ñu ci boppam xam kóllëre bi ñu amoon wala bokk fa ñu papaam tegoon mu jéem ñu fa teg nu mel noonu jàppe ñu mag ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi mhm. donc bu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu jàppee ni war nañ ma defal teraanga boobu mhm. dama ciy ànd lool mhm. ndax sama jur jël na doomam bu góor jox ko waa kër Serigne Touba te bëggul gis ay yaxam macha allah sant rek macha allah salaamaaleykum wa jërëjëf euh, kontaan nañu euh, Ablaye jërëjëf euh, père comme il est il est fort xam nga ñàkk na Ablaye waaye tey tegal nañ ko Ablaye ci wetam. ah oui tegal Cissé voilà Ablaye Cissé comme un hasard <laughs> voilà. <laughs> macha allah merci plaisir de le vraiment. waaw mm-hmm. oh, moom c'est vrai nangul nañ ko dëggoom. Mm-hmm. nangul nañ ko conviction am. Mm-hmm. ay ay vertu la yoo xam ne dafa tumuranke quand même bon ci réew mi. je pense que baax na aussi de temps en temps nit ñi wax li nga xam ne rek moom la ñu gëm. ak lu leen ciy mën di fekk. parce que loolu rek moo am solo. leneen lépp. naxanteeg yooyu ak am na terme yoo xam ne dafa dem ba générique léegi ñu dugal ko ci langage courant nangu ko comme may dóor marto yooyu warul sax mais dem nañu ba presque nangu nañu ko ci langage courant te loolu lu jar moytu la waaw genre yi baax nañu fi lu ñuy mag yooyu nga xam ne moom la ñuy wax mag mag na bàyyi ci réew mais borom taxawaay yi baax nañu fi en tout cas c'était un plaisir bokk ci jotaay bi voilà c'était un baptême je de de général pour moi mais merci. <laughs> merci beaucoup merci Abdoulaye Pape Djibril yow it ñu ngi lay gërëm bu baax mm. euh, jërëjëf Pape Cheikh sant yàlla bu baax si bokk si jotaay bi mm. di gërëm kilifa gi bu baax maa ngi koy doo gis ni jaxran mm-hmm. ñoo ngi doo gisante jaxran waaye ku ma sopp la ku naw la euh, ci ay jikkoom euh, ak yu bari tey moom wax dëgg émotion bi sax dafa ma gagné ci plateau bi tey li mu fi raconté ci sëñ Abdou Khadre dafa daw suma yaram lool waaw yàlla na ko fi yàlla bàyyi daal te defal ñëpp sutura amiin mu nga merci euh, euh, Pape Djibril euh, ñu ngi ndokkeel bu baax suñu benn mbokku taalibe Seydi Jamil euh, moo ko moo ñu ko yóbbante mu ngi suivre depuis marché joor euh, Moussa Dem Shop j'espère que je pense que noonu la Euh, mu ngi suivre QG depuis marché Dior euh, ëllëg nag Seydi Djamil Seydi Djamil bu TFM euh, sa maam la ñuy waxtaanee Seydi Hadj Malick donc ëllëg dañu fas yéenee gàmmu ci télévision Futur Média ëllëg wala ca kanam puisqu'il est 4 heures 18 du matin Adjata Mbaye ñu profité ci gërëm la yow itam. Mhm. merci. jërëjëf Pape Cheikh di gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa bokkaloon. Euh, plateau bi di wax na ça a été un plaisir pour de recevoir euh, Alioune Badara Cissé sant bi moo ko yàq mhm. waaye di wax ne mbégte la woon si ñun euh, jàkkaarloog moom ndax bañ ne médiateur de la République yaakaaroon nañ ne ci laaj yi daanañu dinañu am sens interdit mhm. parce que métier moo demee noonu fonction bi ñu ko teg dañu yaakaar ne réserve bi dafa bari mhm. waaye ndekete yoo loo ko laaj mu tontu la mhm. kon loolu ñu ngi ko ci gërëm di ko sant ci yaatuwaay bi eh, di ko ñaanal yàlla jox ko xolu muñ ndax sànq mi ngi fàttaliku doomam waaye dafa ñàkk ba pare ànd ak ngorom di wax ne yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu eh, di wax ne Pape Cheikh ba vendredi prochain. incha allah aha tey moom du ma gërëm kenn maa solo sama bopp. voilà <laughs> waaw yenn saa yi daf ciy baax <laughs> yenn saa yi daf ciy baax merci Adjatou aw mbay euh, Marie-Louise Cissé yow it ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay sant bu baax a baax Pape Cheikh di am mbégte nag toog bokk ci jotaay bi tey. Mhm. parce que nag gan bi tey moom dafa nekk sama papa nekk sama goro sànq mu ngi may fàttali mu ma koy fàttali ba may door a ñëw tribunal ndaw bay bëgg a dee. Mhm. j'étais toute petite <laughs> mu ma koy wax j'étais toute petite. su ñëwee su ma koy nuyu su ma koy sukkal mu may baisal main dafa ma baise main courbette. ba pare kottu ma naan man ma journaliste préférée <laughs> donc dama am mbégte toog ak moom tey une fois de plus ci émission bi parce que yàgg nañ xamante yàgg nañ euh, gisante. tey moom mbégte la la woon ma toog ak moom ci quartier général et ay papa mel nii dama ko bëri ci tribunal bi ci mhm. justice bi ndem si yàlla Xaasimu Touré noonu laa meloon ci moom ndaxte moom ndeysaan su ma papier bu ma bind ah. da kay liir et yàlla su ma nattoo ba ma def erreur bu ndaw ah. ci papier bi daf may woo comment tu as pu faire une erreur pareille voilà voilà muy moom <laughs> muy moom muy dem si yàlla ndeysaan le doyen des juges Samba Sall waaw Samba Sall tamit noonu la meloon ci man ma leen ko voilà finalement <laughs> gis nga dañ ma toppatoo toppatoo bu baax moo tax maa ngi lay euh, remercier euh, Pape ah, di la voilà di la ñaanal rek nga yàgg fi lool lool suñu suñu biir Pape nag waaw maa ngi remercier ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci combat bi mm-hmm. euh, Tata Ndey Ba moom borom princesse du elle est joignable au 77 739 08 79 moom moo ma ñawal pour les bijoux Arona Ly la muy lalu wurus 77 793 67 22 chaussures yi nag ñoom euh, Vanessa waa Stras boutique nee na waxal tonton Pape Cheikh mu ñëw ñu may ko daal ba pare mu jënd inchallah donc ñu ngi lay xaar nga ñëw euh, jënd daal mais dañ lay may ba pare après après nga jënd voilà euh, ñu ngi ci euh, boutique Strass Dakar 45 avenue Georges Pompidou 77 669 69 69 may ko bi nag Yaas Bombo la Merci. Voilà, merci, mm -hmm. merci Marie-Louise Cissé. Di euh, remercier technicien yu RFM, ñoom itam saa yu ñu paree ñooy activer wu pour àggali euh, programme bi Kader Lo Euh, King FM ba RFM euh, Assane Diouf technicien RFM Ablaye Diop le gros bidon là euh, ñu ngi koy nuyu moom tamit ainsi que tous les techniciens de de RFM ak waa service digital bu rajo Futur Média Yacine Pouy Euh, euh, ñoom ñëpp Pape Jean euh, gërëmal ma leen puisque ñoom it ci liggéey bi la ñu bokk saa yu ñu paree rek ñoom ñooy njëkk a jël relève bi ca kanam tuuti boori 6 heures du matin pour RFM matin juste après ngeen ànd ak rédaction bu télévision Futur Média ñoom it dañuy xëdd rek ñëw defal leen direct la bande à Chérif Dia. Euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax Aïssatou Diop Fall Fati et toute cette grande rédaction ñoom ñu ngi préparé pour ñëw euh, gunge leen ci télévision future Média merci aux internautes du Ndiaye gërëmal ñu leen ñoom ñu ngi lay gërëm bu baax internautes yi kay gërëm nañ leen bu baax mais tey ñoom ñëpp ñëpp kontaan daal ñëpp a bég mais surtout ci waxtaan bi nga xam ne amal nañ ko tey ak euh, maître yàlla yàlla guddal fanam ndaxte ñu si bari ñaanal nañ ko ko ndaw ñu bari ne nañ jàng nañ ci waxtaanam bi tey Euh, lu am solo ci loo xamante ni ci àddina la ci mu waxee ci jaar-jaaram fi mu ñëwaat yëpp ak fi mu jaar en tout cas yal na yàlla guddal fanam jaajëfal leen yéen ñi nga xamante ni yéen naa bokkaloon plateau bi jaajëfal internet yi jox leen euh, dig daje ci kanam jaajëfal la bu baax El Hadj remercier encore une fois euh, ñi kii di noré ni numéro téléphone 280 80 85 jaajëf voilà donc merci à tous Ndiak Ba animateur télévision nationale merci c'est c'est c'est notre frère gërëm tamit ki nga xamante ni mooy sëñ Galas euh, Kaltoum Mbacké moom it mu ngi félicité euh, maître Alioune Badara Cissé wala maitre Cheikh Alioune Badara Cissé parce que daam ay titres yoo xamee ni euh, ala kulli àll de bokk ci boo dee kilifa gi donc mënuñu ko bañ di préciser ñu ngi gërëm bu baax Issa Thioro Gueye merci ci kàddu yu rafet yi nga xamante ni fesal nga ko jëmale ko ci maître Cheikh Alioune Badara Cissé ñu ngi lay gërëm bu baax Yacine. et à bientôt. mon cousin mon mm -hmm. cousin yal na sa jàmm yàgg Baye Cheikh bu mm-hmm. ñu toogee rek plaisir la yal na yàlla euh, wéral xel bi. sàmm la ndax euh, li ngay def yombul yal na yàlla aar. sax xam xamuñu ban gémmiñ moo naan amiin yal nañu yàlla suturaal euh, di wax rek c'est un plaisir un honneur d'avoir partagé ce plateau ak euh, maître Euh, tout à l'heure dafa wax ne Abdoulaye Wade est un grand monsieur ñu wax ko ma yàgg wax ne euh, il mérite un hommage national mais maître vous aussi vous êtes un grand monsieur vraiment ndax tey ñun ay ndaw lañ ay doomu aadama lañ ay observateur rek lañ mhm. mais li ñu wan fii tey gën nañu ñaax ñun en tant que ndaw xam ne àdduna dara yomb fii mhm. euh, gën nga ñu wax ne dëgg rek mooy dëgg te alaa kulli xaal ci la lépp di mujj donc yal na la yàlla sàmm nga àggale sa mission fi nga bëgg àgg yaa ko xam yal na la fa yàlla àggale di remercier Baye Cheikh ñi nga xam ne tout le temps euh, dañuy jàpp si euh, liggéey bi mhm. ba ñu mën a yanj mën a toog si plateau bi di remercier Khali Taxi moom dafa engagé moo joxe euh, bazin de luxe bi ñu mën ko jot au 77 523 91 75 may remercier euh, Khadija moom moo indi coupe nigérienne bi ñaw ko di jeune styliste di euh, ñu mën ko jot au 77 597 25 84 di remercier Euh, Tabou Tabara euh, moom moo jàpp ci si lii ne ma moom koor gi moom maa ci engagé dangay ñëw taf rek di dindi. ñu mën ko jël waaw moo lay jox xef waaw gis nga. di dal kepp sa bërki dem ba bu tardé dugg ma la ko nettalee. mbaadu xefa ko ko yóbbee yàlla baax yàlla baax na yal na yàlla léegi mu jot suba laa koy nettali exclusivement ko jot rek au 77 743 70 56 et la boutique chez Aya Awa pour ses jolies euh, chaussures au 77 578 di wax Baye Cheikh et toute l'équipe un plaisir d'avoir partagé Mais plateau ba ba ba ba beneen yoon incha allah voilà la grande famille de quartier général merci Keps euh, Baye en tout cas tey ji euh, di ñaanal rek comme ni ko ñëpp defee maître Alioune Badara Cissé. di wax ni maître Cheikh Alioune Badara oh, Cissé maître Cheikh tax après daf muy indil ay problème bu yi <laughs> passé Cheikh Alioune Badara Cissé. et je demande aux journalistes bu ñu dee titré actualité bu ko bu ko soxal nañu bind <laughs> maître Cheikh Alioune Badara Cissé. voilà alors <laughs> maître Cheikh Alioune Badara Cissé donc Pape comme tu dis ah, di wax ni rek ba tey tax nañu xam ne ah, du ñu naan politicien ah, par exemple nit ñi dañu naan politicien am na yenn valeur yoo xam ne réeroon na waaye tey feeñal na ko mm-hmm. tax na ku bañoon politique nga bëgg ko yàlla na jàmmam yàgg yàlla suturaal ko ak mbooleem euh, doomu Sénégal yi mel ni moom mm-hmm. euh, ma lay gërëm yow itam di gërëm ñi ma àndaloon ñëpp ah, di mm-hmm. wax ne c'est toujours un plaisir mm. euh, ñëw ci plateau bi di QG mm. ma lay ñaanal jàmm ju sax taw dak di ko ñaanal mboolem ku ma bokkal plateau bi di wax nag ne damay remercier toute l'équipe bi nga xam ne damay remercier ñi nga xam ne ñooy àndandoog man mm. ci solo bi bokk na ci nag bijou yi laay njëkkee mhm. mu di laxaat xewal boo xoolee sama lam sama loxo bi rek tey xam ne mhm. waaw ay lam la génn nii te ba pare ah, di ko waxaale joyeux anniversaire à toi VIP gold ah, mu ngi nekk à Sacré Cœur mm. ah, donc téléphone di 77 906 18 42 77 906 18 42 bu loolu yëpp wéyee nag ku ma xool tey xam ne damaa dem ba Mauritanie wala Mauritanie mooy ñëw vers moi mhm. ci ki nga xam ne moom moo di borom le bon choix nekk foofule ca Mauritanie Nouakchott haute mu di Mouhamed Diallo moom laay remercier ci bijou de tête bi ak euh, li nga xam ne moom moo di mël fa beeg jiital beeg yëpp merci beaucoup euh, pap Cheikh di gërëm ñëpp nag di wax ne Awa Ndiaye dinañ ko tegal li nga xam ne moom la ñu jëloon ak joxaane jërë ngeen jëf. voilà parce qu'on n'a pas eu le temps euh, de préparer ça merci en tout cas Kebs ñu ngi lay gërëm bu baax yow bijou si. Euh, maa ngi lay gërëm Pape comme ñëpp rek c' était un énorme plaisir euh, partager ak plateau bi maitre Cheikh Alioune Badara Cissé noonu baax na. voilà merci. <laughs> man li ma gën a li mooy dëggu gi ci ay mhm. propos am. question bu ñu ko posé yaakaar ni dina ko daw wala mu wiri wiri ci digg bi lay jaar répondre et puis am nañu fi benn témoignage ki ko ko defal tudd euh, Rac Elimane Racine Kane. di wax moom moo ko tax mu dugg APR Saint-Louis di témoigner ci nangu liggéeyam ak dëggoom toujours euh, comme ni ko ñëpp xamee et puis wax ñu que l'homme aux bretelles et l'homme des consensus forts ah. loolu la terminé ma ne woon naa ko jàllaleel parce que moom vraiment kontaan na ci gis ko fii ci plateau bi mhm. comme ñun ni ñu amee mbégte partagé ko ak moom euh, di remercier team bi euh, Baye Modou ci tenue bi 77 218 0019 bijouterie la solution tey nag monsieur Niang laay remercier chéri sama sista di aji Khady Thiam moo choisir bijoux yi tey donc téléphone am 78 388 61 61 coiffure salon Ndella 77 037 52 28 et puis make-up pin-up glam by Dija 78 546 66 47 merci à toi merci ñi ma bokkaloon plateau bi yëpp ba ci kanam Pape. mu nga kon Sadbou Samb la ñuy bàyyi mu tëj guddi gi ñu Euh, équipe yëpp Sophie euh, ci ruq bi mu nekk moo tax ma koy fàtte tey sama xëdd bi kan laa koy jox ci xale yi sax Abdourahmane euh, voilà xëdd bi tey may naa ko Abdourahmane et puis je moom mon cousin Baye mu ngi fonk lool suñu waajur bi lay di maître Alioune Badara Cissé mm. moom waajuram bu jigéen sama bàjjan la Baye Cheikh merci mm. donc xëdd bi tey Ndoye dañ ko jox Abdourahmane Grawul ba suba ma jox la ma jox la xëdd ah ñu ngi gërëm euh, équipe yi nekk ci kaw euh, dañ leen di fàtte souvent waaye ñoom it ci liggéey bi la ñu bokk euh, ñoom yàgg Seydi Jamil sunu sang nga xam ne ëllëg maamam la ñuy waxtaanee ci quartier général bi Seydi Hadj Malick euh, gërëm tamit euh, euh, ñi maquillé ñoom Khadija maman Henriette madame Diallo technicien yi kenn amul seen fay ñoom Yacine ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm waa sécurité ils sont avec nous toute la nuit protocole Kamusek chauffeurs yi itam amuñu seen fay ñoom Raphaël ñu ngi leen di gërëm. Euh, fàttewuñu euh, kan am na ñeneen itam ñu ciy jàpp on ne les voit pas mais il font un travail remarquable pour qu'on puisse euh, vous proposer programme bi le Khadija Daffé madame Sakho ñu ngi koy gërëm Aïssata Sy moom it bëgg lool Seydi Hadj mu ngi ci liggéey bi ñu ngi koy gërëm bu baax ci jàppandalam ci quartier général bi Euh, Pape Maguette Diakhaté euh, càmmiñu Sophie Diakhaté bu Pape Mbaye étincelle Pape Maguette itam euh, mu ngi def liggéey bu am solo fàttewuñu waa administration ñoom Thérèse Da Silva madame Sarr gërëm tamit Julde madame Mbow gërëm tamit Babacar ban ci Babacar yi il faut préciser on a beaucoup de Babacar ici Babacar stagiaire ñu ngi koy gërëm à ne pas confondre ak El Hadj Babacar moom day nelaw ba 10 heures mu doog liggéey si Babacar Bey mais on a des Babacar quand même qui la nuit donc Babacar boobu euh, ñu ngi koy gërëm bu euh, baax euh, fàttewuñu waa Bouba TV c'est la concurrence mais ils sont là avec nous ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ça c'est les équipes de Bouba et nous en faisons partie ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax moo Mohamed Djibi Thioy merci ci jàppandalam gërëm tamit Bouba Ndour mi nga xamante ni mooy produire quartier général merci Sophie et à tout à l'heure merci beaucoup Baye Cheikh euh, merci à moom comme ni ko ñëpp waxee rek Baye Cheikh kontaanoon rek ci partager ak yéen plateau bi di remercier rek suñu kilifa bi nga xam ni moo fi teewoon tey euh, Baye Cheikh euh, di jaajëfal rek partenaires yi nga xamante ni ñoo may accompagner ak chaque fois fii ci sama biir waañ di remercier aussi rek waa Nindi Couture mi nga xamante ni Baye ñoo ma ñawal tuni bi tey 77 532 27 47 Baye Cheikh ak waa Xelcom Pizza ku leen bëgg a jot rek mën nga woote ci 77 545 50 24 97 Baye Cheikh di leen jox rendez-vous ci kanam tuuti rek ci beneen recette xëdd wala beneen recette ndogu Baye Cheikh incha allah Cheikh Saad bu ñu ngi lay gërëm bu baax nga nuyul ñu suñu soppee Chérif Alwali Mané Ndiaye waaw yal na yal na yal na ko fi yàlla bàyyi yal na ko yàlla euh, gën a dëgëral muy wéy di taxaw njaboot gi mu am fii ci Sénégal yow it ñu gërëm la euh, bu baax mu sax fi lool amiin ànd ak wér amiin amiin yi mu naanal naalal maamam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal maamam Cheikh na Cheikh Saad bu yàlla na ko yàlla mottali xeertu ak mboolem surafaaw yi mhm. ah, di ñaanal sunu baay eh, eh, Cheikh Alioune Badara fa tabaarakallaahu yàlla guddal fanam baay mhm. Cheikh mhm. bi ñu defee léegi dugg publicité daf ñu fekk fii ñu toog teral ñu ngir Cheikh na Cheikh Saad bu xeertu loolu nag dees na ko fesal bëggul woon mu feeñ waaye dinaa ko fesal ndax loolu la yàlla bëgg kon yàlla na yàlla guddal fanam bu teraanga gëjëti ci loxoom amiin eh, di ñaanal baax sunu bàjjan day Tabara Samb Mm-hmm. yàlla guddal fanam moo ñu wan rasulillahi mm-hmm. ak sama mama kumbali ak njabootu at xaana yëpp ndax cheikha euh, nday amilo waaw kay yaayu vitu ak nday mariem waaw euh, moom it bég na ci guddi ak soxna umul vattali doomam di sunu xarit uh-huh. waaye di ñaanal aja astu diouf uh-huh. ams yàlla guddal fanam amin mama ceeba ñu ngi koy jaale ak mboolem ams yi mm-hmm. di nuyu fans club yi di nuyu waa les de Sadbou ah di nuyu fépp fu soppe ne di ñaanal nag sunu soxna ndax bu ñuy génn ca kër ga lu ne lay daj ngir ñu kan ci ñoom kenn ki kenn rek la waaw ah. Baye kenn rek laa yor tey ma leeral ko ci quartier général ah ñu dañoo foogoon ni ñeent kenn rek <laughs> waaw ñuy wax ñett ñëpp dañoo jub benn kenn rek la Jaw la tudd macha allah <laughs> ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam di ñaan suñu wéyjur wu jigéen soxna uh-huh. Maguette uh-huh. yàlla guddal fanam uh-huh. Cheikh As Dio Gueye moo ma sañseel te nee ma des na yeneen buñ ne suba da ngay delluwaat quartier général As Diop de ma solalaat la Uh-huh. kon Cheikh As yal na yàlla guddal fanam. di sant groupe bi ma àndal muy groupe Tabala Nabi. ak Modou Mbaye di ñaanal uh, Youssou Ndour ci teraanga bi mu defal Modou Mbaye. Modou Mbaye waaw fan su Modou Mbaye tey dafa woote ci bëccëg. Uh-huh. ne Cheikh Saad bu na nga def tout. Mm. ba fexe indil ma Modou Mbaye. na Modou Mbaye ñëw moo tax Modou bi ma ko woowee jotuma ko dama taal oto bi ngir dem këram jëli ko. Mm-hmm. kon Modou yàlla na yàlla guddal si fan. Mm-hmm. ah bu ko defee rek ñu ngi jéggalu kàddu yi ñaanal sunu xarit Latir. Mhm. yal na yàlla guddal fanam di wax ne nag ñu ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah mhm. mardi mbuur guddi Cheikh Abdou Qadir Jeylaani mbaa bàyyi doon def ca mbuur mhm. beneen bi ci topp mooy après lendemain korité ñu ngi Kébémer incha allahu woo nañ julliti yàlla yëpp ñu ñëw seddeb subu Kébémer incha allah ñu béggalanteeg ñoom jeex na jërëjëf ñu bàyyi la nga tëj <laughs> Modou Mbaye nee na mi ngi gërëm cubb ndax moo ko sañseel cubboo ko habillé <laughs> Modou Mbaye mii di damay ragal bu déwénee waaw mu ñëw ak groupam toog jàkkaarloog ñun groupam moom xam naa fa la ñu mujjee ak moom rek <laughs> incha allah <laughs> incha allah jërëjëf ñëw alwali maane njaay doomi Cheikh Fadal nee nanu yawaa ndeysaan